bashiril muminina bi anna lahum min allahi fadlan kabiran yow yonant bi yónni nan la nun aji dund ji nga di aji seede ji seede sa xeet wi di seede xeet yi jiitu woon ak yonant yi yónni woon ci ñoom ñëpp nga di koo xam ne da ngay dëggal képp ku yàlla nar ci yow yiw di la dëggale xeewal ka ca àjjana ak daraje alaxira ngay xub képp koo xam ne sa xol yàlla duggagu ci di la yëgal la lay ñëpp dellu si ci sa borom wa daayin ilallahi bi idnihi aji woote joo xam ne da ngay woote jëme ci yàlla ci ndigalam wa siraajan muniiran ngay làmp buy leeral xol yi ci leeruk ngëneel ngir womat leen jëme ci borom bi tabaraka wa taala suñ borom ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama waxal jaam ñi ne leen man yutii rasula faqad afa allah képp ku topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp nga yàlla ndax yoonu yàlla mooy yoonu yonent bi lépp lu yonent bi wax suñ borom ko wax lépp lu mu noppi suñu borom a ca noppi ngir yërmande mu dellu ne waxal bindeef ne leen qul in kuntum tuhibbuna allaha yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum ne leen bindeef yi su fekkee ne bëgg ngeen yàlla na ngeen ma topp yàlla topp leen kon ku topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla topp la rawatina ku ko topp te ànd ak sopp ko sopp boobu nag nga xam ne moo dajale yiw àddina ko àllaaxira ngir xeeñtu ko ak ngir ci am ci cër bu moo waral ñuy daje ci guddi gi guddi gii di guddi gi mu ganee àddina yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge na ci ba am ñetti téeméer ak ñu doo koy tàmbalee sos bi ñu koy sosi defee buñ ko woon ñu koy defee nun borom xam-xam yi ak borom cër yi ci yàlla nga xam ne suñu borom xamal na leen nga ñëlal Muhammad alayhi salaatu wasalaam dañu daal dajale seen alal la ca gën a teey lañ ca gën a bëgg ñu di ko joxe ngir yàlla di ko jox borom xam-xam yi di ko jox way lott ñi di ko jox way ragal ñi yàlla dëgg baraa ñi ko ci ragal yàlla ñuy sàkku ay ngal di beer ndeel te noo ngi la ciy sant noo ngi la ciy sant ci suñu xol noo ngi la ciy sant ci suñu alal noo ngi la ciy sant ci suñu cër ak suñu kàttan loolu moo tax ñu ko def ku ñuy wax nag al malikul muzaffar muy abu saïd buur la woon mooy ki njëkk dajale nag nit ñi ci guddi gii di rey ay nag di toppatoo ay ñam di ko dégale nit ñi di seet mboolem lu xeet dëggal doomu aadama mu di ko def ba tey ci guddi gii kon guddi gi yi ñu ci wax dafa bari wala maam yi wax nañ ci wax ju rëy lépp luñ ci wax nag lu ko ëpp ngi ci ndax dafay seede jaam bi yowmal xiyaam ne soppoon nga Muhammad te bokk na ci ña ko wuyoo kon guddi gi ab jiwoo la kenn ku ci ëpp yoo def ci yiw bu keroog yomal xiyaamee yaay bokk ci ñu gën a jege yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gën a am ci cër yu mag yi kon bu ñu fas yéenee toog dajaloo di dundal guddi gi noo ngi torox lu jëm ci boobu mag bi di ko tàllal suñu loxoy miskin yi di seede suñu ñàkk kàttan ak suñu ñàkk mën ak suñu ñàkk xam ak suñu ñàkk am di ko ko seereel ngir tàllal ko suñuy loxo mu jox ñu ci xéewali guddi gi loo xam ne kenn ku nekk ci ñun dana la doy ba lambaale sa waa kër ak say xarit ak say mbokk ñoo ngi koy ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom defal sallallahu alayhi wa sallam lu mu daan dañ ci guddi gi jàngkat yu bari dañuy tàmbali di nettali fi mu jaaroon nettali fi mu jaaroon duñ ci jublu wala maaw yi xëy na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba xam bi mu nekkee ci àdduna keroog bis bañ ko yónnee ba ñu ci jógee na muy doxe na muy waxe na muy tooge na muy taxawe li ko yàlla dénkoon ci àdduna loolu lépp nag dafa am lu ne ca gannaaw lu mu war a xamal bu ñu xamee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne juróom-ñeenti xeej la amoon nangami jeeti la amoon nangami mbubbi koŋ la amoon nangami fet la amoon ko rek génn ci daf nu bëgg a xamal ne sallallahu alayhi wa sallam ndigal ñu ko borom ndigal ba mu ñëwee ci àdduna daf ko ittewoo ittewoo bu tax lépp lu mu amoon def ko ci luy tax woote bu ñuy woote jëmee ci yàlla antu jaam ñu wuyu ko mucc mu dellu fa boromam fekk matal na la mu ko santoon loolu moo waral ñuy lim bax la yim amoon di lim gëléem yim amoon gëléem bu ci nekk mu sàkkaloon ko tur mbuum ko mu ci nekk sàkkaloon na ko tur jaasi ji ci nekk sàkkaloon na ko tur ba mu daj bu la maa wuyu dee waxtaane ci bi yonante bi sallallahu alayhi wasallam xare yi ñuy nett li nett rek nam doxe woon ay nit ñu daje di xeex ba ñuy gañe du lañ ci jublu li ñu ci jublu mooy bu fekkee ne yow ci sa bopp sa xol xolu jullit la te li ñuy wax dugg na la mel nga ne ku seede woon xare boobee ndax ñeewante gi nga ñeewante lépp lu ci dal benn saxaaba wala kenn koo xam ne kii bokkoon na ca xare ba te gëm yàlla coono bi ci yonant bi sonn loolu leen nekk ci sa xol nga am ca ñeewant bu ñu demee ba féete kaw seeni noonu loola neex la bu ko defee da nga mel ne yaa nga àndoon ak ñooña ca fa ñu jaar fépp ak la ñu def loolu mooy maanaam li ñuy nettali nettali yooyu yëpp nag bu ñu ko defee da nga daal di xam jàmbaar yonent bi da nga xam ak muñu da nga xam bëggam yàlla da nga xam ak waccam àdduna da nga xam ni mu yéenee jaar ni mu mucc da nga xam ni mu sonne ci ñoom loolu lépp boo ko xamee njëriñ lay doon loo xam ne day raxas sa xol loolu moo tax borom xam-xam yi ne képp koo xam ne teewal nga guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga wacc say nelaw déglu ñu doon jàng wala ñuy waxtaane mbiram mel nga ne ku an ku bokk sa ña xare woon badar ma mel nga ne ku fekke xonel ni mel nga ne ku fekke oxol mel nga ne ku fekke xare yooyu yi mu xare woon yëpp xare yooyu xam ngeen lu tiis a tiis la daanu si bëgg a dugg léegi ci waxtaane ko bu nu tàmbalee waxtaane sallallahu taala alayhi wasallam kon nee ñu képp koo xam ne kii guddi gii far nga am ndox ñi doon jàng wala ñi doon nettali li ñu doon jàng suñ ko tax li ku naan ca ndox ma suñ borom dina la musal ci pexam say daan dina defal mu rafet képp koo xam ne benn gërëm yëkkati nga ko def ci gàmmu yow mel nga ne ku teewe xare yooyu te yow nga xayaam bu ñuy fay jaam ñi liggéeyoon da nga bokk si ñu si gën a ëpp cër sallallahu taala alayhi wa sallam daañu nettali ba mu ganeegul adduna di nettali ba bi mu ganee adduna ba ci ndawam ba ñu fi nekk xare yi xare ba ñu fi jógee loolu lépp waxoon naa li nga xam ne moom lañ ci jublu waxtaan moom lañ ci daaw waxtaan woo xam ne dafa am ci xew-xew yi ñu tànn noonu waxtaane ko la ko waral itam ñu xam ne woon ko ndax guddi gi ba jant sooyee ñu fekkoon dañoo tàmbali di waxtaane ay mbiram te bañ ci jël dana bëgg a nekk ni lépp jant dana fekk fekk te du xaaj loolu lépp nag mu xew ci ñaar fukki at ak ñett ndax bi ñu ko mënee mu am ñeen fukki at ba bi ñu fi jóge am juróom benn fukki at ak ñett ñaar fukki at ak ñett yooyu ci la def loolu lépp nga xam ne kenn mënu koo nekk li ci sax fukki guddi léegi li gën a gàtt ñuy tànn xew xew yi yi ci gën a xew yonent bi alayhi salaatu wasalaam juddoo kéemaan yu rëy rëy xew la ci buñ ko déglu dana bari lool loolu lépp lu ko yàlla terale ak lu mu bëgg a xamal bindee si ni leen kii nii la toll fi man tamuwaane ci lépp gannaaw yàlla daan xam ne bi mu ganee adduna arab yi dañoo amoon aada yi bu seen doom juddoo ci fu mel ne màkka ñu ne réewu teeru la boo xam ne fi juddoo salamiñ du set sa dégg arab du rafet na mu war a rafetee te arab yi ñu fonkoon wax lañu dañoo amoon ay waykat mu di doy ay shaa'ir mu di ay poète ñu am aaday kon bu ñu amee doom waa àll bi ñëw di jël seeni doom yi ñu di leen fay ñu di leen nampal di leen amee fa ñu nekk xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam baayam dafa teel a nelaw booba gën moom foofam ñëwagul ci àdduna yaayam itam yàgg fi waaye bi nga xam ne gane na àdduna te baayam nekk fii ñi nga xam ne dañu daan ñëw di jël si doom yi di leen yaay ñu di leen fay dañ ko faa jëloon loolu xista bu ñu waxtaanee ba tàyyi la soxlawul ma di ci yaatu waaye xam ngeen barke bi nga xam ne xalimatu saadi ñu ko jëleen di ko nampal moom ak borom këram bi mu koy jël si ak bi muy dellu kéemaan ya feeñ ca mbaam mañ waroon te mu doon mu loof mu lott ñi di ko raw te ba mu ko jëlee ba yonent bi tegu ci kaw mbaam mi mbaam mi daal di am kattan sawar gaaw ak ba mu demee itam lépp lu mu ñàkkoon suñ borom defal ko ko mu am barke ci biram am barke ci alali xaalisam am barke ci alali wurusam ak lépp lu mu amuloon mu am ko mbayam sàcc ba mu demee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alimatu sahbiya boole la ko woon ak beneen xaleel boo xam ne bokkul ci biir Quraysin xale booba itam mu ngi toll woon ci at yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toll ba nga xam ne dañ leen di nàmpal di leen nàmpal ba ñu toll ci ay ñetti at ak i ñeenti at nga xam ne dañ leen di sant ñuy sàmm xar yi ci gannaaw kër gi da ngeen xew-xew bu mag bi ci xewaan ñu bu njëkk a xew bu attiré attention nit ñi moo di ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad la tudd àndoon ak beneen mbokkam boo xam ne ñoo bokk di nàmp ci xalima bi ñu dee sàmm xar yi ci gannaaw kër ga benn bis digg njolloor waxtu wi di fi toll moromam moomee ak si di xeexat naan daw leen ca sama mbokkum xoroy sin ma ngeen seeti ko ndax am na lu xam ci moom dama dafa daan def waxtu wu nu dajee ñun xale yi moom day weddi ko toog moom dong fële ci alam def na ko daal di toog ci àllam ñaari góor bi sol buy weex ak si daal di koy daaneel ci suuf xotti biiram xotti dëndam ña nga noonee di jaxase di jaxase xolam ak biiram daw leen ngeen sori ko ba mu ko defee xalimatu saadiya ak borom këram daal di tiit lool ñu daal di aw yoon nga xam ne fan leen xala ba tekkal ñu daw ba àgg ak seeni xel fekk Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ñeenti atam yi mu toll mu toog ci benn tund bu ndaw calme nuruwul ku tiit nuruwul ku xewle dara waaye nag kanam bi soppiku na ba mel ne melaw suuf bi ñu agsee laaj yu bari lañ ko tàmbalee laaj ana lu xew mu ne man de damaa toogoon ba mu yàgg monsieur lu mel ne ñaari picc yu weex tàll ñuy naaw waaye bi ñu ma jegee dañoo gaaw lool ma daal di gis ne du ay picc ay nit la ñu amee ay laaf yu weex tàll ba kenn mënu leen a xool bi ñu wàccee ci suuf waax si jëm si ci man biñ ma jegee kenn kenn morom ji ndax kii la mu ne ko waaw kooku la ñu daal di may jàpp tëral ma ci suuf ubbi sama dënd bi daal di xar sama xol bi génne ci lu ñuul sànni ko fu sori ñu amee satala goo xam ne wurus la ndox mu weex tàll nekk ci ñu raxas sama xol bi raxas sama dënd ak li ci man lépp ba mu set ñu delloowaat kon na mu meloon ba mu ko defee fekk Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam moo Mikaayil ñu ñëwee def noonu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba noppi Seydina Jibril ne peese ko ak fukki jëmm ci xeetam wi ñu peese ko fukki jëmm ci xeetam wi mu gën leen a dis fopp mu ne kon na nga leen peese kon ak téeméeri nit ci xeetam wi ñu peese ko téeméer mu wat leen mu ne ko peese ko junni ci xeetam wi mu peese ko junni mu wat leen mu ne ko soo ko poosee woon ak waa adduna gépp dana leen gën a diis ñu daal ci naaw dellu fañ jóge ba bi nga xam ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk dina loolu xalimatu saadiya borom këru xalima daal ne ko léegi de li mu lay bëgg a xamal yow xalima moo di ñu delloo xale bi mooy li dal xel ndax ñaara mën a am benn nga xam ne ay jinne koy dugg mu amee ay rab te ko nit suñu responsabilité lu rëy la ci wala su borom dafa nam mu ci moom lu rëy loo xam ne waa adduna bépp dana ko yëg te lu ci mën a nekk ngaaj mën na ci juddoo mu kon mu bañ koo dalee ci sunuy loxo daal mooy li gën a dal xel ñu dal di gaawantu nag delloo ko ñu koy delloo bi xalima dikkee ba dugg màkk daje naan benn xew-xew ci xew-xew yi daan xew màkk fees dell ak i doomu aadama yonente bi sallallahu alayhi wasallam dal ci biir mbooloo mi dal di tàqli ko xalima réer ko xalima wër wër wër gisu ko mu woote ba tàyyi gisu ko jëggu ko mu daal di daw fekk abdul muttalib mi nga xam ne mooy maami yonente bi moo jur baayam ne ko muhammad de doon naa ko indi waaye réer na ma ci sanitu fan bi nga xamee ne dellu si nañu abu talib abdul muttalib daal di yebal mbooloo ñu di ko wër ba daal di koy gis bi mu agsee aminat bintu wax bi mi nga xam ne mooy yaayu muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal ne ko yow de ni nga xere woon ci xale bi léegi nga daal di koy delloo si xaar lu waral loolu mu ne ko du dara dama koo indi rek mu ne ko dédd bu mën a bu dara bu dee dafa am loo ragal ci moom nga nattali ma ko ndax kii kat man bi ma ëmbee gis naa kéemtaan yoo xam ne ak bi mu ganee àdduna leer dama ne suñu borom lu màgg la ko xaroo kon dara du ko jël fi ne da nga am loo gis ci moom bëti fee boo ne la wóor ne wóoral naa la ne dara dara dara dara loo xam ne li ñuy cible du dal ci moom kon fee ba nga yóbbuwaat ko mu dellu ci am mbég lool ndax xam ne ne tag bopp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak xéewal yi mu ko indil neexul ci moom mu delloo ko mu ko delloo mu nekk fa ba jamono yi nga xam ne nag mas naa dellu si ñu delloo si ko màkk mu nit koo xam ne lu tuuti waxu ca dara lu ñaaw waxu ca dara lu am am solo rek moo nekk si bëtam li muy xale xale abdul mutalib nit ku ñu fonkoon la dañ ko daan tegal lal ci buuru kaaba gi lalal ko takk yi gën a rafet lal ci malaani sooy kenn ñu meewu koo jege mohammed sallallahu alayhi wasallam jógee waaxu bu ñu ko njëkkee def waaxu ba ak si dal di yéeg ca lal ba ñim fa nekkoon dal di tiit tàmbali bu ko béytu béyte di ko génne abdul mutalib di ñëw seen ko dal di tiit ne leen bàyyi leen ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko sama doom ji lu rëy la ko yàlla xaroo da ngeen ko xamul waaye bàyyi leen ko mu dafa war a toog ci kaw sax ma toog ci suuf bu abdul mutalib waxtu mu toogee day fab mohammed set ci kawam mohammed ñaas foofu tuuti mu teg xale yépp ci wet bu nekk lu jëm ci caaxaan laal ko fenn du mbóoreent du wax mukk mukk lu dul la am du fekk mukk lu ñaaw ñu wóolu ko ba tuddee ko al amin lu waaye am te bañ mu sànq moom nga koy dénk xaafew bi njëkk nii booba dafa na bay bëgg a toll ci fanweeri at xam ngeen ne waa màkk dañoo fonkoon kaaba gi lool ak li ñu réeroon lépp ndax dañu ne woon ñoom ñu ngi ci diine ibrahima te ibrahima tabaxoon kaaba gi dañu su waaye dem bu ñëwee màkk bala ñuy dugg këram day jubal kaaba ga wër ko soog a toog ñu fonk lool kaaba gi ak mohammed sallallahu taala alayhi wa sallama moom it daan wër ci kaaba gi waaye bi xamee nga ne kaaba gi am na jamono tey dafa xaw a ràpp ba ñu di ko tabaxaat alxaajar rasmat ba li ñuy wax ne mën a jógee àjjana mooy lenn lu ñu mën ci kaw suuf laal ne lii mën a jógee àjjana bi ñu tabaxee ba jot fa ñu war a teg doj wi ñu ne nag yëkkati doj bi ci sa loxo teg ko palaasam teraanga la joo xam ne benn giir ci giiru arab yi du nangu kenn jël ko wàcc wàcc la mu jaaxal leen ba ñu àgg ci di bëgg a xeex di bëgg a xare ñu dem ba ne léegi day ñu ñuy yéwénale mbir mi moo di nanu ñëpp ñëpp nanu d'accord ci ku njëkk a génne ci bunt bii ñu àtte loola loo wax rek ñu wéy jëf ñoom ñëpp ñu ànd d'accord ci loolu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal ñu pël njëkk caa génne ñu ne ah rabbina bil amin gannaaw al amin ku ñu wóolu ki ñëpp nangul la ki ñëpp ki doy ñëpp la te ma ko xamaguñ ne yonent la lu mu wax nañ ca ànd ba mu ñëwee daal di ne nañu tànn ci biir arab yëpp biir bu ci nekk benn waay ñu tànn daal di lan lu malaan teg ca doj war ak xajaru la sot ne leen kenn ku nekk na jàpp ci wulaf ngeen yëkkati ba ba ba mu toll ci malaan ni toll place bi mu doon war a teye ba njëkkatee ba ak foofu mu fab ko ci loxom bu tedd boobu teg ko place am ñëpp daal di bëgg xeex amul xuloo amatul mbir ma daal di sotti ñëpp am mbég mu di benn xew xew bu njëkk xew yàlla defoon mu doon koo xam ne daf daan liggéeye sàmm ñu di ko xëy xam ngeen ne yonent yëpp ñu ci bari sàmm nañ càmm googu dafa am lu mu tekki ndax bari ba yi ngay amee di leen jubale di leen wàññi di leen jaarale li dafay wund ne ëllëg da nga jaarale nit ñi ci yoon woo xam ne yaa leen di jubal te da nga leen yërëm ni nga yërëmi bàyyi ba yi waaye waxtu boo xam ne xale yi nga xam ne ñu ngi dëkk màkka bu guddee seen daje yi ñu daan daje foo yi ñu daan foo yëpp yàlla mas na ko ci musal ba mus ci ànd lépp yoon woo xamee ne nit ñi wax nañ ko wax a wax a wax a wax ba dugal loolu ci boppam ba mu fas ko yéene suñu borom du ko nangu faaw am lu dox ci diggante bi ba du jot lool Muhammad alayhi salaatu salaam wéyee noonu ba keroog ba nga xamee ne yonent suñu borom yónni ne ko xam ngeen ne bi mu demee ba jege ñeent fukki at xol yonent day leer nañ ndax ngëm bi suñu borom bi def ci xol bi yonent amul beneen xol bu ko àttan ab yonent nee naa leen buñ ko jàppoon ray ko lakk ko ba muy doon bu ñu jëree doon ba ku am baatin da nga dégg yaxya ab doon ba naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu moom nag borom bu leer boobu xiir ko ci ni mu daan teqli ko nit ñi muy beru di xalaat boromam te gisagul malaaka alquran ñëwagul amagul loo xam ne bii tegtal na ne suñu borom teg na ci kaw ay mbëggam mi yerew jibal bi defi mu daan dem ci fi ñuy wax xaaru xiraat benn xunt daf daan yóbbulu di fa am ay fan yu bari di woor di julli di xalaat boromam ba keroog benn bi nga xam ne tàkku saan dem na ba gëmmentu bi mu ne gëm-gëm malaayka mi ñuy wax jibril ruuxallah alayhi salaam dikkal ko mu dikkee laal ko mu jóg mu njett ko naj ko ba mu xëj ba mu defee ne dee nag mu ne ko yaras ne ko etta jàngal mu ne ko man di musuma jàng xaw ma njàng mu dellu ko najati ba muy ñett yoon ni nga xam ne noonu ngeen ko faral a déggee booba defoon na ne seytaane moo ko jàpp bi mu dikkee tiitaane am dafa sàngu waaye suñu lu mu sàngu sàngu lu mu gëm mu gëm di seen malaaka may bi nga xamee ne jaax na te wax na ko sayyidatuna Xadija mi nga xam ne moo doonoon soxnaam mu ne ko waxtu bu ñëwatee yëgal ma ko bi nga xamee ne malaaka mi ñëw na mu xott ko mu daal di dindi musóor bi woon ci boppam ne ko gisati nga ko mu ne ko déedéet mu ne ko malaayika la bu ñëwee soo góor nga dëgër mu rek fas yéene wax ak moom daal di dem wax ko mu bëri nag ibnu nawfal mi nga xam ne doom bàyyi xadija la woon jàngoon ne téere yi njëkk yi nasaraan la woon ñu ko nekk la mu ne ko li nga ma wax de bu fekkee ne noonu la na la wóor ni malaaka ma daan dikkal Moussa moo ko dikkal ak a neexoon ma fekke waxtu wi ko mbokkam yi génne ak di xeex ak moom bu keroogee kon danaa ko dimbali mu ne ko ah ndax daañu ko génne màkka mu ne waaw amul benn jëm bu ma sa indi lu mel ne lim indi te nit ñi nooloo wuñ la fexee wuñ la génne wuñ la fa nga dëkkoon xeexuñoo ak yow waaye bu ma ko fekkee war naa ci def loo xam danaa ci am ngërëmal yàlla waaw bu ko defee nag Muhammad waxagul kenn dara mu wéy ci loolu am na ñetti at muy woote ndànk waaye biral ko ba keroog giir gi mu bokk muy di banu xaasim ak ab giir mu talib keroog moom leen woowee invité leen ñam te wax leen ko abu lahab mi nga xam ne moo bàyyi mu bokk nawet bàyyi saaga ko xas ko wax ko lu bon a bon a bon a bon waaye mu dellu wéy rek ci loolu mu nekkoon ba ñetti at yi mat suñu borom ne ko nag bas gar bi maa tuumaru mu tàmbali nag di woote di woo jaam ñi fépp fu ñu daje ne leen man kat man la yàlla yónni ci jaam yi ku bëgg a mucc na nga ñëw ma teg la ci yoonu yàlla loolu diis leen loolu diis leen loolu ndax xel yi ñu daan jaamu rek lañu gëmoon seen jaam yi amoon ñu leen liggéey jàpp na ñu ñoo leen gënoon nit ku ñëw bëgg na leen yéen ak jaam yi yéen a yem kenn gënul kenn lu nit gën a ragal yàlla te itam li nga li nga xam ne noonu lañ doon jaamu seen xelam yooyu ñi daan jaamu xelam ñëpp te dëkk ñu màkk bokkuñu ci Quraysh ñoom ñi amee loolu ci seen kër dañ leen a wormaaloon ñu di ci daan jëlee ay alal mu taxoon itam seen njaay ak jënd ñu daan def commerce bi woor lool nit ñëpp daw si leen ñu ne nag waa ju ñëw bëgg a jënd sunu aada yi bëgg aada yi ñuy jaamu sunu maam yi daa ko jaamu ak sunu baay yi bëgg noo yemaleeg sunu jaam yi li muy taxawal du taxaw duñ ko nangu mukk mukk mukk ah waa Màkka nag boole ci moom biir banu Haasim la bokk ñoom itam ku ci nekk ci am na biir boo bokk dañ daan rawante naka jekk di wujje ñu ne nag am yonent bu ñu nangoo mu génn ci biir banu Haasim kat daañu raw mboolem xeeti jiiri arab yi loolu nag du ma ko nangu kon yu bare bare tax nangu yoon Muhammad yemu itam ci gàntu gi ñu di ko lor lor ju mette mette mette mette ku di wax xooli na abi mualit benn bis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk na ci kuuru kaaba gi di julli mu nekk ba mu sujjoot mu wax ba agsi ci moom fa tànkam teg ci loof yi bés ko ba ñaari bëtam yi bëgg a génn mu daal di koy bàyyi bés waaw kon waxtaan bi danaa guddi la boo xam ne da ngeen ci am ay ziar yi ngeen di ziare ñu leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal ñooy di mën ngeen a def càngul maanaam mbàpp mbàpp bu ñu rendi ba mu lëpp ñu di fekk muy sujjóot ñu fab ko teg ko ci kaw ay bakkan waaye wëlbatiku ni mu këppee jëlam siggiwul ba sayyidatuna Fatima doomam moo jóge fa mu nekk ba mu déggee coow li ñëw dindi ko xas leen wax leen lu nekk benn bis itam am na sallallahu alayhi wa sallam di wax Abu Jahlin mooy Amar bin Hisham moom nga xam ne mbañeel gi mu bañ Muhammad moo gënoon a fés ci ñi ko bañ ñëpp nee na moom ne daal sonal na lu jot boo xam ne Abu Talib mi nga xam ne moo koy làq wet bu ne jaar nañ ko nangu wuru koo jébbal ñu sàkkal ko pexe man nag léegi na ngeen toog nopplu danaa leen ko fegal gis nga waxtu wu ñëwee ci kaaba gi di julli bu soobee yàlla ëllëg damay ne ba mu sujjoot ma fab doj bii muy doj moo xam ne kattanu ko bu baax peese na loolu juróom-benn fukki kilo ma dóor ko ci boppam benn yoon waa ak ñu bari talib ak jiir xaalis ñu seet lu ñuy def ñu def ko fekk na rek nii na ba nga xamee ne ëllëg sa jot na man na sallallahu alayhi wa sallam daal di dugg ci kuur kaaba gi daal di kàbbar ñu jullee ba këpp jëm Abu Jahlin daal di waaxu ba yëkkati doon ba parce que mu ko bu baax mu ngi sakk sakki bu dikkee ba jub ko daal di sànni doj wa daal di daw xel woo xam ne bu mu accès dafay xiir ñi nga xam ne ñoo toogoon te mu jóge woon ci ñoom ñu ne ko mooy yow lu xew yow daal yaa doy waar yow daal ni nga amee woon aw fit ak ni nga façon yéenee jëf-jëf ci ba yëgal ko ñëpp ak ni nga yenoo dog yi ba jub ko ak xel mi nga daw ana lu xew mu ne leen man de bu ngeen gisoon fuuy la ko tiim daal ak bëñam ya bu ma ko jëlee woon rek du ma négal ci saa si damay daal di lekk Omar ibn Hisham nag loolu mooy ñaareel yoram ci Seydina Jibril di ko tiital ci lu mel noonu am na benn jaaykat boo xam ne mu ngi dëkk bokk ci Bani Hiraas mas na jaay Omar ibn Hisham moomu di Abu Jahlin ay gëléem di ko fayal ba nga xamee ne xaalis ba bari na waxtu mu ñëwee di ko fay mu bañ di ko laaj laaj laaj benn bis bu mu ñëwee jaaxle nag ak waa Màkka ngir toog ci seen penc mu ne leen man day damaa ñëwoon ngir ku tumuraankaa amu fi kenn ku ma taxaw kon boo demee nga wax ko mu ne fekk mu toog mu nuyoo moom ne ko man day Omar ibn Hisham dafa maa amee alal ju bari te nag bu maa fay ba ma dikkee fekk ñeetoo yonent bi salaaw dañu ne bërëb ni ko ñëwal dem topp ci moom ba mu demee ba àgg kër Abu Jahil daal di dóor bunt ba rek Abu Jahil ne ana kooku mu ne ko Muhammad mu daal di ne bërëb ak tiitaange bi mu agsee mu ne ko fayal waa ji borom mu daal di ko taxawal léegi ma fay ko daal di dem wàññi alal ji nam toll woon mu jikk daal di koy fay fekk nag bi nga xamee ne Muhammad jóg na ànd ak arachi bi jëm kër Abu Jahlin ñoom daal ñu ñu toogoon yebal nañu benn waaye ne ko topp leen waaye ba xam luy xew waaye daal di ñëw fekk mbir ma bi loolu xewee waaye daal di daw si gal bi ñu ne ko loo gis mu ne kéemaan ci kaw kéemaan ñu ne ko am nga mu demee ñu ne moom daal Muhammad daal dafa àgg rek jóor bunt ba Omar ibn Hisham ne kooku mu ne Muhammad mu daal di ne bërëb ak si ne ko lan la mu ne ko fayal kii mu daal di ne ko taxawal léegi daal di dikk wàññi xaalisam jox ko mu toll mu ne ko xaa loolu mën naa am mu ne waaw noonu rek ñu seen Abu Jahl di ñëw maag se ñu ne ko ah yow maa war a àgg na lu xew mu ne kéemaan ci kéemaan moo xew mu ne ah mu ne man daal bi mu dóoree bunt bi rek sama sib yëpp naaw bi ma jógee jëm si ci moom itam la taxaw tiim ko daal ak bëñam ya musuma gis mukk bopp bu toll noonu bu ma yéexoon ni lay gis mu lekk ma bu ma doon yéex rek mu di ma lekk ah loolu da waaye doy na waar mu ne waaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yërëm gi mu leen yërëm léeg-léeg mu feeñal leen kéemaan di leen muñal itam yu tiis yi ñu koy def yu naqari amoon na benn waay boo xam ne yàlla daf ko joxoon kàttan mu mën a bëri lool ni daan ko wax rukaanu nga xam ne kenn mënu koo daan ci adduna ndax daan sàmm Muhammad alayhi salaatu wasalaam ni mu daan beddi koo nekk ci àll bi rek di tudd yàlla ak di xalaat di gëm ak boromam rek ak di xalaat nga muy jubalee bindee yi dañuy rukaanante bis loolu moom ne ko mooy mu ne ko waaw waaw waaw su ma la daanee nag mu ne ko ma tuub ah waaw kon baax na kon sumikul sumikul bëri na kerfal bëri na ñu nag ba njëkk la kaam sa mu yëkkati ko fete kaw mu dóor ko ci suuf téye ko nag mu ba mu léewal benn cër mu ne ko waaw bàyyi ma daan ba bàyyi ko bu jógee mu ne ko aywa nag mu ne ko yow nag daal yaa gën a doy waar waaye sax mën nga maa jéggaay yoon bi mu delluwaat ba rek ko ba tey bu la neexee mu delluwaat mu demati ko nam ko defoon téye ko ba mënu la jóg mu ne ko wër na leen daan naa mu ne ko waaw bàyyi ko kon nag tuugal mu ne ko gis nga ba tey daal da nga bëgg nga jéggal ma rek beneen yoon boo ma daalee ñetti yoon nag mu xam ne dëgg-dëgg li nga wax dëgg la ñu delluwaat mu dellu ko daana ci Rukaat ne ko yow daal dëgg dëgg dëgg xam naa ne njabar moom yaa ko ndax ci àdduna waaye nag mën nga maa am beneen kéemaan mu ne ko waaw waaw mu ne ko loo bëgg mu ne ko garab gi ndax mën nga ko jëlee fi mu nekk mu ne ko waaw taxaw woo ko Rukaat nag daal di woo garab gi garab gi daal di jógee di dox ak reen yi di ko ba ak ci kanam Rukaat tax mu ne ko ni yow de yow dëgg yàlla man de yàlla nga ma nag waaye yow nag lii foo ko xamee mu ne ko yàlla ma yónni bëgg ngeen mucc te ngeen bañ donc am ko waaw danaa seet daal ba xam na may def daal di wan ñëpp wan ci càmm ga delloo ci kër daal di woo ne leen dëgg dëgg doomu Abdoulaye jii daal su ngeen yeboo ngeen ñeme yéen waa màkk na ngeen ñemee adduna bépp dajale yi ñu xawoon ci njabar bu ñu ñëwee dana leen def dana leen def ci mel ni benn kii daal li mu def man day waar man de daaneel na ma ñetti yoon ñu ne ko déedéet loolu mun la def mu ne leen ëpp loolu garab la woo garab bi ñëw fekk sunu ñu ne kon ne waa ji de waaw waaye teewul rek waa Makka fuñ toll rek di ko ñaawal bu ay alxuraan wàccee ñu di ko foye bu toogee di woote bu ko jógee waa ji wax nga def ibnu xaaris bu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jógee mu daal di toog fa mu toogoon ñëw leen ma nettali leen nettali yu gën a kéemaane li Muhammad di wax ñëw leen ma wax leen lu gën a neex xisa yu gën a neex li Muhammad di wax daal di tàmm di nettali histoire ak Kisra ak Kaysara yu nekk benn bis Adri ibnu Xarak ak Muxira ibnu Walid Walid ibnu Muxira toog Adri ibnu Xarak toog ci wetam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw toog ci seen diggante bi mu tàmbalee di woote Nadir ibnu Xaaris dox ko ndax bu ñu dugg leen teg moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam féete ko ko ci wax ba xamatul lu muy wax naka mu génn rek Abdoulaye ibnu Zubar raa agsi mu agsee alwala ibnu Muxira ne ko yow de fekkee woo dara xam nga nag dañu xaalis nit jàpp wax ci adduna gën a am xel gën a mën a layoo gën a mën a werante bi moo nag jàpp na ko sànq ba xamante lu muy wax mu ne ko xaa mu ne ko waaw wala naa ko fekk man kon bu soobee yàlla dinaa ko jaaxal mu ne ko xaa na nga koy jaaxale mu ne ko Muhammad nee na leen innakum wa ma taabuduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha wariduna yéen ak li ngeen di jaamu lépp këru yàlla mattum safara ngeen ëllëg waaw mu ne ko ni leen ko kon nasaraan yi jaamu nañu Isa ba ca ndax Isa kon moo ñi ko doon jaamu safara lañ jëm yow di jaamu nañu Husayru ni leen ko laaj leen ko ndax kon Husayru nga xam ne nitu yàlla la woon suñu borom ko yónni woon ci ñoom ndax dana ànd ak ñoom dem safara nun itam malaaka yi la ñuy jaamu ndax ëllëg malaaka yi dañuy dem safara wax leen ko loolu laaj leen ko ba xam lu mu leen di wax ñoom it wax ji yéem leen lool ñu ne loolu de buñ gisee moom nag buñ ko waxee xaw ma ñu wax ëllëg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw toog comme toogoon ñu daal di koy wax wax jooju mu daal di ne leen képp ku ñu jaamu ci lu dul yàlla nga nangu yàgg loola mattum safara ngeen doon ëllëg nasaraan yi jaamu ñu Isa ci bànneex Isa dañu réer yahood yi jaamu ñu Useyru ci ndigal Useyru Useyru wala lu ko neex yéen itam jaamu leen malaaka yi xeet yi ngeen di jaamu képp ku ñu jaamu ci lu dul yàlla nag jaamu nga neex la wala nga yëpp ko bàyyi ko ca yaa nga la jaamu yëpp ëllëg la mattum safara ngeen di doon continue rek di ko ñaawal rek di ko def lu gën a naqari di ko def lu gën a bon ba benn bis suñu borom ne ko fasdax bi maa tumur waaru anil mushrikina inna taxaynaaka al mustahziina juróom nit ñi nga xam ne ñoo gënoon a ñoo gënoon a mën a ñaawal muy al aswad ibnu mutalib al aswad ibnu yaxuus nadri ibnu xaaris ak al aswad gannaaw al aswad ibnu mutalib aswad ibnu abdi yaxuus am na beneen waay boo xam ne moom lañ tudde al aas ibnu waa'il bokk na ci ñi daan gën a xas yonente bi ak di ko yëjji umay ibnu xaraf bokk na ci ñi ci rawoon bu ma saan dajeeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy yóbbi di tàllal laminam bu ko rombee mu daal ne xoolin waa jii di woote ne yonente bi yàlla la te amul sax lu mu sol amul dara teewal si borom boole boog malaaka mu koy xamal ne mu ngi xamal ne kii yonente la lu nekk rek lu mu xam ci loo xam ne lii dana ko suufee lu mu di dañu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw toog ci kanam kaaba gi Seydina Jibril daal di jóg jàpp ci mbaggam ñu taxaw ñoom ñaar rek dafa ñu taxaw tuuti al aswad ibnu mutalib romb Seydina Jibril sab xob bu wert sànni ko ci bët yi mu daal di gumba fi saasi al aswad ibnu abdul yaxuus aksi Seydina Jibril daal di joxañ biir bi biir bi daal di ñëw fi saasi ñoom ñaar ñëpp ñu daal di dee ba mu ko defee yo al walid ibnu mughira romb moom it bokk na ci ñi daan ñaawal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sidna jibril daal di joxañ suufu tànkam dégg jam ko dégg daal di koy rey bi mu ko defee nga xam ne ñoom ñeent ñooñu ñëpp alxaaj ibnu tulaat la moo ci def bi mu agsee sidna jibril daal di joxañ bopp bi bopp bi def ay góom ba daal di ko yëgal jëmmi bopp bépp ba am ca yax ba ba góom yi àgg ca yuur ba mu daal di dee juróom ñi ñëpp dee bi ñu xamee ni nag waa Makka bi ñu delloo gannaaw mukk te ñoom daal yemalee nañu Muhammad lii muy woote arab yëpp ànd ci ak ku leen rey ñu daal di daje ñoom ñëpp nag ne léegi daal gannaaw mënul Muhammad dara ndax Abu Talib du ko bàyyi mukk naw xasante nañu bind ak téere boo xam ne dañ koy aj ci kaaba gi ñett képp ku ànd ak Muhammad muy diir banu Hashim ak diir diir Muttalib kenn du leen jaay ñam kenn du jënd ci ñoom ñam kenn du leen jaay ndox kenn du wax ak ñoom kenn du sëy ak ñoom te képp koo xam ne kii def nga ak ñoom dara daana ko seet ak yow nañ leen génn beddi leen bu kenn joteet leen ñoom dara bu ñam ak ci ñoom bu ndox ak ci ñoom bu yére ak ci ñoom ñu daal dem génn leen ba ñu dugg ca benn xur ci xur bu ñuy wax saab ñu ne am nañ fa ñetti at kenn du leen jaay ñam kenn du leen jaay dara kenn du leen jaay ndox ñu xiif fa ba lekk xobi garab jaaxle nañ jaaxle boo xam ne du ñu woon ak lu doon alali sayyidatuna Xadija jeex na lu doon alali Abu Talib jeex na am na nag benn jëmm boo xam ne ñu ngi ko daan tuddee al Hisham ibnu Amr ibnu Rabia nekkoon na ku laa biir te nekk ku baax daana ne ba guddi ba mu lëndëm mu sëf gëleem ba mu diis ak ñam mu womat ko ba nga xam ne jub na xurwa mu daax ko daal di dellu bu gëleem nga duggee ca xurwa ñu daal di koy seetoo jàppoo ba benn yoon mu seet ne daal li ñuy def daal ñii tiis na ci kaw koo xam ne dafa ne yàllaa ko yónni rek te nun mën nay dëgg mën nay leneen waaye lu mu ci doon ñii ñu ci woore wax dëgg amuñu benn tooñ bu ñu def bu waral lii kon daal lu ñu war a seetaat la fekk benn bis ci waxtu muy waxe loolu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal dina Abu Talib léegi gis nga laaj kayit ma ni bindoon ne bu kenn def ak nun dara denc ko ne kaaba ga suñu borom yebal na max lekk na ko ba mu des turu yàlla war rek bismika allahumma ja rek li ci def lépp gis nañ ko Abu Talib daal di ñëw woo waa Màkka ni leen léegi dama leen bëgg a woo ci mel ni mbir Muhammad mi ngi ma daan laaj ne leen naa leen ko jébbal tey jii kat am na lu ma nettali nee wax na ma loo xam ne mbirum kumpa la moo xam ne yàlla rek a ko xam léegi su fekkee ne gannaaw moom musul wax mukk lu dul dëgg bu ñu seetee loolu na mu wax muy mu demee noonu ngeen bàyyi mu dellu si bu fekkee ne seet nañ ko la mu wax amul ma jox leen ko ñu ne ko waaw loolu nangu nañ ko ñu dajaloo bi nga xamee ne dugal nañ seen loxo ci biir kaaba gi xotti ba ak génne kayit wa seet ko nam ko waxee woon rek bu dul turu yàlla bismillah moo rek max gi lekk na ko ñu ne la ko waaw ba tey waaye daanu seet suñu mbir daanu gisee daanu gis suñu bopp ba xam lu mu mujjee daal di delluwaat sa loola rek daal di bañ ah xisaab moomu xisaab ibnu amr ibnu rabiata moomu daal di jóg nag daal di dem seeti zuhair ibnu abdul hakam ibnu zuhair yéen a ngi seetaan loo xam ne gàcce lay doon ci ñun ëllëg gis nga ñii nga xam ne suñuy mbokk lañu bu fekkoon ne mbokki abu jahlin lañu buñ leen nee nañ leen def nii duñ ko nangu mukk yow nag ñii say mbokki nay lañu bu fekkee ne ànd nga ci lii da nga xeeb da nga xeebu te it da nga def loo xam ne lii ëllëg luy ñaaw la te lu metti la te daañu xam ne topp lu am ngox mu ne ko waaw nooy def man kenn mu ne ko man maa ngi ànd yow danaa la ñaare mu ne ko ngeen wut ku nu ñetteel mu ne ko danaa am ku nu ñetteel taxawal tuuti daal di dem seeti Mut'im ibn Adi Mut'im ibn Adi bokk na ci ñi nga xam ne ñu daan laa biir lañu woon ñoo xam ne ñoo ñoo modèle lañu daal ci loru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari la ñu ko lool ba mu demee waxtaan ak Mut'im ibn Adi mu ne ko am nga dëgg waaye nag maa yow rek néew nañu ci ndax waa Màkka ñëpp a dogu te mbir mi teel na leen mu ne ko am naa keneen mu ne ko kan mu ne ko Zuhayr mu ne ko waaw waaye dana am ku ñu ñeenteel mu ne ko danaa ko am daal di dem fekk Abul Bakhtari nettali ko mbir mi ni mu demee mu ne ko waaw kan ak kan ndax am nga am nga ci ñeneen ñoo àndal mu limal ko Zuhayr limal ko Hisham limal ko Abul Bakhtari mu ne ko nanu am bopp ku du ñeenteel ku du juróomeel mu dem ci Zama wax ko Zama yi daal di d'accord ñu ànd nag ñoom it dem ba ci gën jàkkaroy màkk guddi daal di daje ne bu subaa jàmm lu mën a xew naw fexe ba mbir mi daal di dañ ñu ànd ci na nga seet suba sa arab yi mi ñu daan xëyee rek di ñëw di wër kaaba gi ah Hisham ibnu Amr ibnu Rabia daal di njëkk ne waaw yéen wax koy sin def nañu lu ñaaw loo xam ne lii rëccu nañ ko te bu buñ fi jógee duñu dañ di ko rëccu ba ci sunuy sët ak sunuy sëtaat waa gir bani muxtalib ak banu xaasim ni ñuy def nii kat mbir la moo xam ne mu ñaaw la man fas naa yéene taxaw ak ku ànd ak man mu dañ amar ibnu Hisham ni ko fen nga loolu nga wax mbir la moo xam ne du dañ mukk te mënuloo koo dindi ba mu waxee loolu Zam'a ne ko ah kay wax na dëgg yow yaa fen yow amar ibnu Hisham yaa fen ba mu waxee di wax loolu itam ah Zuhayr dal di jóg ne ah kay amar ibnu Hisham mi moo fen mbir mi day dañ Zam'a dal di jóg wax loolu Abul Baxtari dal di wax loolu ah Abu Jahl dal di wax ne ah lii day mbir la moo xam ne guddi lañ ko fexe da ngeen cee d'accord waaye mënuma ci dara kon nag def leen ni ngeen def ñu daal dem génn leen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génn lool ji metti ba ñenn ci saxaaba yi mu ne leen ñëw leen ngeen génn dem Éthiopie ndax bu war nga fa boo xam ne kenn du tooñ kenn fi moom fukki góor ak benn ak ñeent jigéen dem génn leen moomu ndax lool ji metti ji ndax booba ñi nga xam ne amuñu ku leen aar ci Makka ñu ngi leen di def jëf joo xam ne kenn mënu koo nettali Amar ibnu Yaasir ak Yaasir baayam ak Sumayata ndeyam natt nañ leen ci ndox futti nañ leen ba ñu set ñu dikk ba ci doji màkka yu tàng yooyu ñu tëral leen fab ay doj yu gën a gis ay bërëb teg ko ci seen kaw naan leen saaga leen Muhammad weddi leen diineem ñu naan ahad ahad ba su mayee ci boppam Abu Jahl ibn Hisham moomu dam ko bët dam ko xeej bëtt biir bi Yaasir itam ñu ne ko Ammaar ñu di ko mbugal di ko mbugal di ko mbugal ba benn bis xeram tàggoog moom mu wax tuuti ca lañ ko doon wax loo ba mu ko waxee ñu bàyyi ko mu tiit lool dal di tam ko xelam fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog mu ne ko alkuna mu ne ko loola alak mu ne ko gaa ñi mbugal nañ ma ba am nañ ci ma man loo xam ne lii neexuma mu ne ko ana fu sa xol nekk mu ne ko fam nekkoon ci ngëm mu ne ko kon buñ delluwaatee di la mbugal waxati la nga waxoon rek ci borom dal di wàccee aaya ji ngir dal amaar من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شهد بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله képp koo xam ne gëm nga yàlla ba mu wér ci yow nga dellu weddi ko waaye kat boobu ma ki nga xam ne dañ koo fitnaal ba teg loo fitam mu wax la mu wax te xolam nekk fa mu nekkoon wax kooku waxuma ko waaye képp koo xam ne gëm nga ba wóor na gëm nga ba dellu sawar ba ci lislaam merum yàlla dal la ci sa kaw te du fekk ku ba abadan balaa ibnu rabaax mu ngi dëkk kono coppi jambu umayat ibn xalaf moomu moomoon la daf ko daan génne ba ci àllu makka ba ci tàng yooyu mu tëral ko ci sëf ko ba mu diis ne ko da ngay wax muhammad du yonent wax ko lu ñaaw wala du wala bàyyi ba ba ngay dee dëkke ko dëkke ko sayiduna bilal naan ahad ahad suñu borom kenn la suñu borom kenn la rek lu mu gën di gën a metti mu sax ci wax ba benn bis sayiduna abubakar romb ko ne ko ay umayat ibn xalaf ragalal yàlla jaam bii ngay def nii te waxul lu dul ne yàlla sama borom rek mu ne ko yow mii yaa ko yóbbe li nga nekk yow yaa ko sa xarit Muhammad bu la naqaree sax ko ci baxe mu ne ko am naa jaam bu ko ëpp doole te nekk ci sa diine ji nga nekk yow ñëwal ma jox la ko nga bàyyi ko mu ne ko aywa moo ma gënal ndax ma nopp lu ci ayu bii Seydina Bakr ni Siddiq dal di indil ko xale bu ëpp doole Seydina Bilal bu dal ne ko waaw fii laa mën a nekkal dal di bàyyi Seydina Bilal Seydina Abubakar dal di goreel Seydina Bilal naka noonu rey nañu kon yaasir rey nañu sumayya def nañu noonu bilaal ko kii abbas ibnu larata sulay bunu ruumi képp koo xam ne amuloo ku la set ku la aar ci màkka fitnaal nañu ne fitnaal joo xam ne kenn mënu koo wax ba tax ñenn ñi suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu digal leen ñu gàddaay dem Éthiopie ngir ñu noppalu foofa Muhammad sallallahu alayhi wasallam génn ca xuntuma lor yi gën a metti lu nekk ci àdduna ñu def ko di ko naqaral di ko ñaawal baayam bi ñu daan wax Abu Lahab bokk ci ki nga xam ne moo gën a bañ gën koo mën a lor fu mu rajo moom rek wax ko loo xam ne kenn du ko mën a dégg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk nit koo xam ne moo gën a muñ ñëpp rek nit koo xam ne kii waxtu bu seen gën lor gën a métti rek mu gën leen a wan na muj na muñ bu rafet gën a sottee suñu borom naan ko rek fas gën ne waa dalay xaqul mu ne rek nga la wóor na li yàlla dérale du dañ mukk mukk mukk mukk te dana ñëw kon ni ma ko waxee rek Muhammad ak saabaam yi ñu mel noo xam ne rek mooy ndum gi nga xam ne mooy ndum gën a mat ci ngëm yi looloo ci gën a mett du tax seen xol jeng jeng lu gën a néew ba nga xamee ne lor ji mi ngi gën a mett rek dëkk ci dëkk ci dëkk ci dëkk ci ne sax du dañ mukk du wàññi ko am ci ñoo xam ne rek yàlla daf leen a xattal rek nandal seen xol ba mu fees dell ak bañ Muhammad ak bañ saaba yi Seydina Abu Bakr bi Siddiq bokk ci ñi gën a lor Omar ibn Khattab bokk ci ñi ñuy lor Seydina Hamzata Sayyidu Shuhada yi bokk ci ñi ñuy lor lor ji metti metti metti yàlla suñu borom digal leen mukk ñu fayu aw dóor wala saaga wala xas lu ne ak saadu naa bi waxas ca cheab ba bi mu dóoree benn waaye ngaamu gëleen ba xaañ ko ci yéefar yi mooy dara di ñu njëkk a tuur ci lislaam lu dul lool amul benn saaba boo xam ne bi am nga ndigalal yàlla ci nga fayu wala nga yëkkati jaasi bocc ko wala nga yëkkati xeet wala nga yëkkati dara loo xam ne dana tuur dara ñu féete woon muñ rek ak xam ne yàlla kenn la te lim déele du dañ mukk mukk mukk mukk te dana ñëw yonent bi bi nga xam ne yàllaa ko yónni nee na ko bu soobee yàlla yaay féete kaw mukk te wa kalimatullahi hiya al-ulya baatu bi yàlla yu yàgg yàgg mooy féete kaw rek te lii ñuy def lépp du mujj fenn dana mu dana la dong loo kaw suuf ak ñi nga àndal da ngeen moom ma nguur nguuru kisa am nguuru qaysar am nguuru rajas yi yëpp dana mujj ci seen loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ki gën a wóolu ci nit ñi saxaaba yi di ñu gën a wóolu ci nit ñi lu muy ci melo woowu rek li gaa ñi gën a soxal ñu gën a wone rek mu gën a mu gën a rafet rek loolu muy loolu muy loolu muy nga xam ne génn ñi nga xam ne dem nañu xaras ba ñu demee fekk najas yi nit koo xam ne am nasaraan la te nasaraan yi booba jàngoon nañu téere yi njëkk yi gisoon nañu melo Muhammad alayhi salatu wasalaam Jaafar ibnu Abi Talib nga xam ne Abu Talib mu bokk ak Abdullahi bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nawet bàyyi moo ko jur Jaafar moo jiite woon ñu nekk gàddaay nga xam ne gàddaay gi ñu jógee ci marché ba nga xam ne dem nañu yoon ñu gisee najaas yi dañ def leen a laaj ne leen seen waa ji ndax mën ngeen maa nekk ne lenn lu jógee ci moom ñu ne ko xaakay bu ko defee Seydina Jaafar ibnu Abi Talib dal di tari ko alquran najas yi dal di sujjoot xol bi dal di yëngu mu daal di ne wallaahi wax ji fa mu jógee ci la naamus mi lam dikkal Moussa fa la wax ji wax ji wax ji si jigéen fa la fa la wax ji Moussa jooju jógee ki ngeen wax day ab yonent la waaw na mu mel fekk na bi nga xam ne waa Makka itam yën nañ ne ñenn ci saxaaba yi gàddaay nañu ngir tiis wi ñu daal di yebal gaa yi yoo xam ne dañoo yóbbaale lu najjaas yi gën a bëgg ngir neexale ko ko ndax mu delloo leen ñooñu ñu ñëw mu gën leen wala ñu rëy leen ba ñu demee moom waxtaan ak najjaas yi indil ko xaj yi ñu ko indil daal ne ko yow day ay gaa yi ñëw ci yow ñoo xam ne dañoo jaxate suñu réew jaxate digg teqale diggante bàyyi doom teqale leen lu nu xamul jaamu leen lu nu xamul bàyyi loolu li ñu bëggoon sunu maam yeeg sunu bàyyi li ñu lekkoon lépp ñu bonal ko dal di jaxase réew mi ba noppi ñëw bëgg a yàq sa réew dañu waxee loolu najaas yi najaas yi dal di woo Seydina Jaafar ñu dikkee ba mu daan woo Jaafar sax dafa ne amul ñu aat wala amul su fiyaan damaa bëgg a laaj tuuti ci seen waa jooju mu ne ko waaw mu ne ko nag dëgg rek laa laaj de mu ne ko waaw mu ne ko kooku ngeen di wax nga xam ne moo jaxase seen réew mi lu mu woote mu ne ko da mu ngay dafa ne jenn yàlla dong nga am moo bind mbindeef yi te leneen du moo waruñu koo jaamu du dara ah yonent yi de loolu lañ daan woote naka la askanam demee ci yéen ñu ne mu ne leen kooku de ci askan yu gën a diggu la bokk mu ne naka noonu la yonent yi itam daan mel waaw ndax ba mu wooteegul loolu mas ngeen a dégg ci mu ay fen ñu ne ko déedéet amin lañ ko tuddee woon ne wax dëgg yàlla kenn mosu leen gis fu mu fenee mu ne leen kon nag du bañ a fenal nit ñi ba noppi dem di fenal yàlla kon ba tey kooku yonent la waaw lan mooy jikkoom ñu ne la jikkoom day mooy lu gën a jàpp ne rek yërmande lim lim ñu muy digle itam mooy kenn ku nekk nga topp sa kilifa topp sa waajur jaamu jenn yàlla la lay def nga baal ko ah loolu itam la yonent yi daan yéen daal li ngeen ma ci ngeen ma dikkee daal man xam naa ne bu ma ko gisee danaa tuub te fii mu nekk ki nga xam ne mooy kilifa mi mu yónni na ñëw ma def sama jaayante léegi naa jàppar ñëw mu dal di jaayante moom léegi ñoo ngi dal di dellu xam ne mbir moomu daal mënu la sotti am na xew-xew bu ñuy nettali ci diggante waaye nañu zanaa de tey ñi nga xam ne dañoo wane ne tuub nañu te duñu nit ñoo xam ne ñu gëm yàlla lañu dañuy fexeel yonent bi ñoo ko nekk muy hadisul quran rek hadisul quran nag soxlawul ma di ci dugg ndax ay fen la ci kaw ay fen dañoo nettali ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn bis Sidna Jibril wàcce na suuratul nañ mi bi mu dee jàng suuratul nañ mi ba mu jeex mu dem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng suuratul nañ mi ba agsi ci أفتمارون على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جرس المأوى إذا في سدرة ما أوتى ما شاء البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى أفرأيتم الله والعزى ومناة الثالثة الأخرى نافقي دال ندخ تكن تلك الغرابة العلى وإن شفاعتها لمرتجع mais daf cee teg nag ba mu tuddee laata ak usa muy xelam yoo xam ne moom la waa Màkka daan jaamu daal di teg nag sang yu koy yooyu de seenum ramu daañu ko yaakaar ëllëg naa ko dal di suggeer yéefari Màkk yëpp dal di suggeer ne ko léegi nag gannaaw jox nga cër ci sa diine ji soo yàlla yi daawaan rek ba ba mu ko defee nag ñu ne waa ña gàddaa yi demoon Éthiopie dégg ne waa Màkka jubóo nañu Mouhamed ñu daal di dellu si naafiq yi loolu lañ wax ñu ne nag ca ëllëg sa bi Seydina Jibril dellu si daal ne Mouhamed taral ma suurat nañ mi mu tari baax ci tilka alquran laqad ula wa inna shafaata la turja mu ne ko lii maa la ko wax mu ne ko déedéet maa maa waxal yàlla lu mu waxul ne ngeen naafiq yi wax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي تكرر ñaari aaya ci alquran yoo xam ne dara amu ca war ma woon tax nettali dafa fekk na dafa jaar ci diggante bi rek mun ma koo tëb waaye li xew waa Éthiopie bi ñu déggee ne xam nga tamit Abdul Mutalib tuub na Omar ibn Xattaab Xattaab tuub na te ñu doonoon nit ñu ñu xam ci Màkka ñu amoon njàmbaar am fit te kenn yabu leen booba la ñu dellu si waat waaye ba ñu dikkee itam ak suñu bu ñu xamee ne xabaar bi nii la demee Hamza ak Omar teewul lor ji gën a metti te ñoom seen bopp yi dañ leen daan lor dañoo delluwaat Éthiopie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toujours ca Tiswa saxaaba yi ca Tiswa ba benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xëy suba teel mu ngi fanaan ci nekk Ummu Hani Ummu Hani Abu Talib ko jur bàyyi Seydina Ali nga xam ne moom bàyyi yonent bi ko daal di nekk Ummu Hani ne man de suñu borom rañaan naag man ci guddi gi jullee naa naag leen gee dellu si jullee ndoo bu ngeen fajar suñu borom yóbbu na ma baytul muqaddas yóbbu na ma ci asamaan yi juróom-ñaar ba ci xadiratul kursi la gisee moom deeyaaleeg moom mu xam ne ko loolu dafa ko wax mukk mukk mukk sa nit ñi daañu gën a dolli seenu weddi daañu gën a fooye te daañu la gën a lool mu ne wallahi danaa ko wax bi mu ne ba rek sayyidatuna mu xam ne daal di tëyee ci mbubbam xëcc ko ba biir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy fépp daal di wuti kaaba ga ba mu àggee daal ñett li yéen xabaar bi ñëpp dal di wëlbati ku nag wër ko ne koy ajamal yow nag di wax nga kéemaan dëgg dëgg dëgg nag ñun fii ak baytul muqaddas weer lañu koy dox bu ñuy dem bu ñuy dellu si weer nga dox ko ci guddi gi waxuma laa nag dem asamaan dellu si yow nag sa mbir maa ngi bëgg a doy waar ñu di ko ree ba am na ci ñi tuuboon ñoo xam ne dellu nañu gannaaw tubbi ne daal wóolatuñu lool nga di fekk si naa bu bëgg mi nga xam ne moo gën a gëm yonent bi ñëkk koo gëm ñu ne ko yow de sawaa ji toujours nag bu dem di gën a indi kéemaan rek moom ne waaye nee na bi ñu reeree ba noppi dem na dëkk mu xaddas dem na itam asamaan mu ne leen da ngeen koy waxal lu ma ko ñu ne ko ah kay nu ma nga ne ci ca ca jàkka ji di ko wax demal ñu di fekk mu ray moom sallallahu alayhi wa sallam toog di ko nettali mu ne ko ndax li ñu wax yaa ko wax mu ne ko waaw waaw wóor na ni mu ne ko na mu demee mu ne ko suñu borom tabaraka wa taala damay nelaw ci mbestalum kaaba gi jibril alayhi salaam ñëw que dama tànkam ma ne bërëb bëgg di ju xool gisuma dara ma dellu tëddaat mu dikkati laal ma tànkam ma yewu ne bërëb bëgg di ju xool gisuma dara ba ci ñetteelu yoon mu tey sama mbagg ba ma jóg taxaw mu indi daaba joo xam ne diggante bax la ak mbaam la tollu ci diggante boobu maanaam fas naa góor wu yem weex tàll amee ñaari laaf yoo xam ne dafa mel ni muus buy dox tànk yi di laal laaf yi ba mu dikkee taxawal ko fas bi di tëb ak a dal mu ne ko teggiinu mel ni mbindéef mus laa war mu tedd ci yàlla ni gën ji taxaw tedd ci yàlla yarul mu war la si mu ne daal alburax daal di ruus ba ñaq yi sotti ko mu ne ñoo waral mu war ci kawam ma dem baytul muqaddas si naa ko xam ne ko ndax man nga maa nga dem naa baytul muqaddas man nga naa war na mu ne suñu borom dal di yabal sidna jibril mu yëkkati baytul muqaddas ba mu ba mu nekk ci kanamu yonent bi nit ñi gisuñu ko yonent bi mel baytul muqaddas na mu mel abu bakar ne ko noonu wax ne dëgg la ñi fa nekkoon ñëpp ne ah dëgg ñu ko mel la moom noonu la ñu ne ko nag mën nga ma jox beneen tegtal la mu ne ah kay bi may dem bi nga xamee ne yëngu alburaax am na njëg mu doon dem tiital na leen bëgg leen rëcc réer leen man maa leen tegtal xurma ga leen ga nekk ba ñu jàpp ko gannaaw loolu itam bi ñu leen lee ko fekk leen meneen njëgg muy law suufu garab am ndox la ñu amee muur nañ ko muuri naa ndox ma naan ko muuraat ko bu ngeen la laajee daañu leen wax loolu ne leen nag fii ñu toll ci xur wii bu ngeen génnee jant bi fenk da ngeen gis njëgg mi ma mi ma mi ma waxoon gëlee boo xam ne gii dafa doomu taal moo jiitu la mu sëf nii la mel nii la mel ñu daal di jóg daal di dogale njëgg ma daal di seen gëlee nga danga ko waxee woon ak la mu sëfoon ñu daal dañu ñëw laaj leen ni leen waaw dañu ne lu ne
dafa xool ci coow yi boo ko di def da ngay gis ku génnee ci ndox la dafa mel ne que taw bi day toog ndox ak ndox kanam bi dafa bàyyi xel moom yàlla lool loolu la wala ci saa saa bu ñu leen jiite julli ba noppi ñeent xam ngeen xabaar yi bari ñu nekk ci asamaan su ñoroon rek bu nga xamee ne mbir mi daal di mën rañam boobu boobu waar ba tax na am na ci moom tudd ak mala gi ñu gis yëpp am ñoo xam ne seen mbir dafa gën a biddal moom la saa saa ñu leen yéen la wax bu xëy rek bu gën a biddal li wax ci biir boobu nag foofu la ñu boo joxe julli xam nga taw diggante ñëwta ak yonent bi mu dox diggante ñëwta ak suñu borom mu ko wàññi juróom fukki julli yi ko ñu ko la fara taal ba ak juróom loolu fekk na gàddaayeegul loolu di nekk nekk nekk ba gis na bu gàddaaye gàddaay ji dem ci soo xamoon ngeen ko bu ñu jógee rek ñu jógee naa ko ndax ko ñu dab ko Madina ndax ko ñu dab ko dafa dugg ci xol bi ñu wax abu xaar suur moo si dinaa bu bëkkat nekk na war naa daaw li nga xam ne noonu la yëkkër ñu jógee ak ni ñu xamoon ci ne gën a nekk ko ñëw jox la ko ak ni ko suraaka def ni mbaay dare ak bi nga xam ne suraaka bu ma déggee ku ñu ñett yi na daje naan ñaari gaay ñi ne nangam ñuy def ci takk géej gi mën a jëm Madina suraaka bañ su njëkkanteeg moom ci ne gën a ne dafa gën yow dafa jëm ñaari gaay ñoo xam ne mooy maa leen mbir mi ñu jëm bërëb sàngam ngir bañ ku jëm ci ne gën yi daal di dellu ci leen ci nëbb daal di nëbb gannaaw yi dañuy wax ci jant bi daal di toog moom la sallallahu alayhi wa sallam mu demee ba jur ginnaaw bu ko moom mu ngi jeex rek suraaka ndax xam nga ñoom lay bëgg a jël si moom la sallallahu alayhi wa sallam moom la jeex pour bu nekk nii bu nga xam ne moom jël na leen fekk na suraaka xam nga ñoom arab yi li ñu bëgg a def am nañu seet ñuy seet ñetti bant di bant dafay teg tele na defal ñi naan bu def ñu ne mu ne waxtu woo xamee rek suraaka seet na rek dawale ko yoon wu ñaan boo xam ne musiba rek ci ñun bu nga xamee ne war na fas yi dawale rek bu mu rek di jóg rek fas yi daal di fas tamit mu daal di jaar ci nopp fas yi daal bu mu jógee yi doon daal di xëy dem ci téeméeri gërëm rek mu topp leen topp leen ba séenu leen bu mu leen jugee fas yi mel ne suuf si dafa nooy ñaari tànk tëral ñu daal di suuf ñaari tànk gannaaw di suuf lu mel ne calameer boo xam ne dafay yëkkati doom génn ci biir suuf si ba mel ne dañu toog boo xam ne daf koo mën mu daal di tiit ba jaaxle waxtu woo xam ne ne dem na fas rek mu mu gën a guddi ko mu gën a suuf rek mu daal di yëkkati baatam ne mu am nag xet li ma danaa wàññi ko yonent bi daal di fekk daal di ne suñu borom bu fekkee ne li wax dëgg la ci moom xet ni ko bu fekkee ne du noonu am na ko de fas wi daal di guddi ko mu daal di xalaat ci téeméeri gërëm rek ba muy ñett yoon bu mu agsee nag xam ne xëy na amatul fexe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy dundal ci aw xam nga woon ne ko waxtu woo xamee ne jullit ñi am nañu doole bu ñu la def dara mu daal ni ko man itam bu ma demee képp ku ma gis mu fexee jëm ci yow danaa fexe ba mu réere ko ba mu jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àdduma di def dama koy fekk ni ma dina di dëkk boo xam ne ñaari xeet fa nekk awut ak yëfrit ay yow dafa nekk awut ak yëfrit dem nañu ba awut ak sëf rek demoon nañu waa ji naan Abdoulaye ibn Ubay ibn Sulul dem nañu ba koo sol bu wóor yow ji fa nekkoon itam di ahli kitab di borom xam-xam waa Madina wegoon nañ leen lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee dana rek bayatul aqaba aqaba ñu laa aqaba ñu saani yëpp tëb naa ko ndax xamuñ ci guddi bi nga xam ne daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam agsi na daal leen jël bindal tee boo xam ne mooy li dox seen diggante ñoom ak li dox seen diggante arab yi xam ngeen ne xeex bu ñu njëkk a xeex mooy xare badar xam ngeen ne xare badar lu doy waar la kii fukki fan ak juróom ñaar la xew ci weeru koor xam ngeen ne xeex yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu ñu àndaloon bañ woon bu ñu jógee itam dugg noonu ngir xare ndax li taxoon mu jot moo doon tax mooy sa sa sa jiyat nga xamee ne xare ba def yàlla nangu na nangu na mu am te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ànd ak moom ci xare bi bu ñu jógee dugg ñëwoon ngir xare dafa fekkoon ne waa Màkka ñii daan jaay jënd la ndam tax bu ñuy wax caravane boo xam ne dañuy dem Sudan di dem Yaman waxtu sedd ak waxtu tàngaay bu ñuy dem kenn ku nekk loo amoon ci alal dañ ko yëkkati ci xaalis ne boo demee nañ ma jëndal ndàngam bu ko defee da ngay fay ci lay jëndal dañuy fay itam mbooloo moo xam ne ñooy ànd ak ñoom di leen aar bu ñu demee ba jënd màgg nit ñi bu ñu nit ñi ñëw ku nekk ñu jox la la nga jënd loo nga jaay am alal bi nga xam ne nag waa màgg génn na ñu leen di leen saaba yi mën na seen alal des fa ñu rey ci ñoom mbooloo wàññi ci ñoom seen nga am na seen mbokk yu bari yoo xam ne def nañ màgg te mu ñu leen amit ñu bari ñoo xam ne ci woon nañu waaye ñu ko ñu leen mu leen a bàyyi ñu dem màgg loolu tax nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam suñu borom xamal na ko ne ñëpp ñoo jëlee ci yéefar màkka yi lu dagal la ndax li ñu leen def ak li ñu leen amel ñu dégg nañ nit moo nga xam ne Abu Sufyaan moo ko jiite ne jóge nañ saam yemu alal di bare bare bay jëm màkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jóg nag ànd ak ñetti téeméeri nit rek ndax booba dugg woon ngir xare ji ñu ne dañuy dogale njëkk na nangoo aar jëm loolu lañ taxee la jóg ñu jógee itam ñu ànd ak moom itam def nañ seen xel ci alal ji nga xam ne alal ju bay la ba amul day day ñu jógee jëm ca Abu Sufyaan itam xamal ne ko ndax moom day toll da daan laaj ak bu yónnee ay ndaw ñu ni ko nekk ne xabaar yi Muhammad bi mu déggee ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jóg na te moom lay ko dale ci ngir jëm li nga xam ne moom la ñu amee mu daal di seet ñuy wax gam gam mu am nañu mu xëy ko ne ko nga daw dem màkk mu léegi loolu ñu leen seen arab jaay sànq moo amee dara ko jël te ka fi wax aadika ba jël na ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam am na gént mu géntoon dafa yeewu ne loo abbaas mi nga xam ne ñoo bokk bàyyi mu ko man de gént naa gént bu ma jaaxal mu ne ko gént bi ko ne mu ne ko man daa doon gis benn waay boo xam ne dafa war beneen dikk ba ci xur màkk yi daal di yëtal beneen bi daal di taxaw daal di yóbbu baatam gati mais ñu leen warkati màkk yi gannaaw ñetti fan na ngeen xëy dem bu ngeen di jaay ji mbooloo mu di jeex wër ko mu daal di wax dugg ci jàkka bi ci kaaba bi daal di yóbbu fu baatam gati ci kaw kaaba bi daal di waxaat li mu waxoon mbooloo mu topp ko mu daal di génn dem ba ci ba nii naan aboo ko way ci yéeg ba ca kaw daal di yëkkati baatam ñu gën a kawe yi yéen warkati màkk yi bu ñu fi amee ñetti fan na ngeen génn leen ñëpp dem fekk seen dee daal di fab benn bërëb aw bët sànni ko ba bii di bii di ba ak ci suufu ba daal di tëb tasaaroo amul benn kër ñu ne ko gis ci bëgg dugal de lii dañ ko nekk abat ne kon nag mu doy waar nga dem soo dee gis mu jël day wax waaye bu ko wax kenn bu ko wax bu ko wax kenn ah abat dañ la di nag ñu ay xaritam yoon nekk li ko ko dee dee dee sëñ bi mu rabi at sëñ bi daal di dem nekk li ko wax ba dama tëli walit gënd bi daal di siiw ci makka dañu waxtaane ko ci grand grand yi dañu gis abat ak si abu jahil ne ko waaw yow waaye ne xew na jënd aati dara ñu mu ne ko aati si jënd aati si jënd dara mu ne ko ñu ne lenn laa xam ñett fan ñu wax bu amee te dara xew daal bind téere boo xam dañ koy ak ci kaaba yi wala ñu yéem jiir ab ba ba mu xaasim yéene ñi dàq fen ci arab ñu ne loolu abbas boobu dara daal di jënd rek wax jooju nag abu jahil wax jigéen bi ba mu xaasim dégg ko mu naqari leen lool ñu dajee daal ne xa waaw day am daal indi nga mu gàcce xam nga ni sam li mu wax ak ñun ñëpp ci kanam ñun ñëpp waxu la dara mu ne wax nopp leen suba jàmm te te ñaari fan yéen bu ñu bu suba jàmm danaa daje moom danaa ko wax lu sol xalam ci la lekk abbas daal di xëy rek daal di wuti gàttale ba mu dikkee seen amar mu sam daal di wax mu ko rek ne daa wax daal rek bu demee wax dinaa ko wax ñu ne loolu amar mu sam daal di tëb ñu ko ñëpp ko ñu ne ah kii moom dafa rew rek mu tax ko léegi ñoo li mu jéggal da ko dam dam ñoom moom abu sufyan ñoom ñoo fay ko dafa agsi dal di ñoo ko ca fa baax ak dafi ñu ne leen waa màkk ñàkk ngeen seen alal ja daw leen lu waay amoon nga xam ne ñàkk na ko muhammad ba bari na abu sufyan lu leen gaaw gaaw moom ne dana leen jigi taalal de ah mu xam ne jël afrika xew na dam dam dal di bu ci kaaba gi ñoo ko fa baax ak dafi wax la waroon yëg ci xabu xubay wax la waroon waa màkk ñëpp képp koo xam ne góor la génn la ak sa gànnaay ak loo amoon te mooy dem mu xaraf rek moo génnul ndax dafa amoon waa ji ko ameeloon ak ji mu ameeloon alal te koo fay mu ne koo fay ñëwal nga dem sama place nga dem ca sa dogale ci alal yow fayal ma loolu bokk na loolu dañu la leen ñëpp di ko Abu Sufyaan moom tam yónni na ndaw ne ko nga dem rëdd mu moom ne seetal mu moom ne ba xam ñu ngeen ak fu mu toll dafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génne moom dégg na ne waa Quraysh kat dégg nañu ak juróom ba ñoom itam dajale nañu war ñu amoon ci gànnaay ak ci ay góor ñu ngi jëm si ci ñoom di ko dogale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara di juróom yooru Makka mu juróom yoor Makka ba ci diggante bi mu àggee fu ñu wax Dafraan mu daal di wàcc tuuti ma fu mu tuuti jógee Dafraan daal di romb Sanayaa romb ba ñu ñuy wax ak xarnaan bàyyi ko ci lay joram dikk ba jub seen yooyu mu tuddee badal mu daal di wàcc bu wàccee mooy ñëpp wàcc mu war a saxam ànd ak Abu Bakar dong waa ko fekk jenn góor di bokk ci arab yi toog mu ngi yor moom laaj ko mbirum waa Quraysh laaj ko mbirum Muhammad ko am lu xam góor ga ne ko du ma leen a waxal dara ci moom nag wala ci xool ci lu ngeen wax la yéen ñaa ñi yéen a ñaan ak ñeen dëgg yàlla dina ko bala ñu laa wax dara nga wax mu mu ne ah da ngeen koy jëndee mu ne ko waaw mu ne waaw kon nag li ma leen di wax man de nee nga daal mu xam ne génn na bi sàngam wax na ñaari fan bu fekkee ki ma wax li ma wax dëgg la tey jii wax naa toll ci bërëb sàngam muy gis ba leen di jëndee yi itam xam nga loolu mu ne waa ci itam ñoo ngi man génn nañu bëgg nàkk ci bi sàngam ñu ngi dox jëm ci fii bu fekkee ne ki ma wax day lim ma wax dëgg la say jiw ñu ngi toll ci bërëb sàngam te fa mu wax itam fa la waa Quraysh toll Abu Sufyaan moom bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu àggee ci diggante boobu yéen na ku ñu wax bés bés ak adi ñu am ni ñu leen ngeen dem topp tool na xabaar yi xew yi mu xew ci waa Quraysh ak mu xew ci biir Badar fee ci Abu Sufyaan Abu Sufyaan itam moom itam ba mu yónnee dikk na ba agsi ci teeri barat mu tax ku wax nag bii mu amee fekk ñaar ñu wax ci salaat sama ñu ñëwoon ñu dikkee ba agsi ñoom itam ci teen yi ñu ngi def seen gëlëm dégg nañu ñaari xale yu jigéen yi waxante kenn ku di fay waroon mu bor ci mu fay ne ko ñu ne bu ëllëgee ndig ñuy jógee Cham daañu agsi danaa ca liggéey fay la ba may def nag di mag moom nga xam ne moo jóge bokk ci projet bi kan nekkal leen ko dañ waaw waaw dëgg la noonu la gisuma daal ñëw bàyyi ko rek danaa xëy ma teg ak at yi dégg wax jooju daal di fab mu ne ko am na daal ñaari weer ñoo xam ne yëpp ñu ci dund nii di ko ne guur ci seen ndox ba dem abu di jàpp wax ba sa ngeen jëlee mu rey fat ci seen biir bi daal di koy toppal ni gis xooxi tànnalo daal ne lii day yëpp waa yëpp la wala nga gis mu naaw ñu nga dina leen jóge daal ñëwoon waa di ñun jóge nañu daal di am nañ nit ni wëcc bagat ci càmmoñ daal di doon sàkkal jëj ga daal di ci màkka daal di raw Muhammad sallallahu alaihi wasallam yéen Ali ibn Abi Talib ak Sa'd ibn Abi Waqqas ak Juhayr ibn Awwab ñu dikk ñoom ak bi ñu jógee teen yi jàpp ñaari gaay ñoo xam ne ci waa Quraysh la ñu leen ñu woon ñu ngi ci lox ñu daal leen di jàpp indi leen yonent bi sat yonent bi sallallahu alaihi wasallam di julli ñu daal tàmbali di leen laaj ne leen yéen yi waa ñan ngeen ñu ne loolu waa Quraysh la ñu ne leen jëri wax leen dafa tàmbali di leen dóor di leen dóor ba yàgg ñu ne ñun njëgg na ci lañu bokk ñoom amul ci jaana ànd ñu daal leen di bàyyi yonent bi sëñ ñu ne li leen bañ leen waxee di leen dóor leen bañ sax leen ngeen bàyyi ñii wax Quraysh la toog leen toog ñu daal di leen di wax leen yéen waa Quraysh ñaata lañu ana ñu def ñu ñu ñu ko ñu ngi ci gannaaw ci mbir yi ñaata lañu ah bari nañu lool ñaata gëlëm la ñëwee bis bu nekk ñu ne léeg-léeg juróom ñeen léeg-léeg fukk ñu ne kon diggante junni ak juróom ñeen di téere lañu kon ñu soxla ko léegi waaw ñu ngi ci gannaaw ci mbir yi ñu ne waaw wala ñu soxla rek rek dañ gën ko ñu ne màkkaandoo lu amoon ci gànnaay ak lu amoon ci góor parce que ñu daje yéen ba nga xam ne nag waa Madina dañ ko war a bëri ku ne am na nit ñuy génn kat ñu ànd ak ñoom ñëpp ñuy génn génn ñoo ngir waaj xeex te xëy na buñ xamoon ne xeex la xamul danañ ànd ak moom ñu génn dañu génn rek ñu bëgg a jëgul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñim ni yum daal jiw ngeen leen ñëpp te ñoo ko ko daal di ko yow yaa ngi ci yàlla bi woote nga mu dëggal la ànd menoo ak yow waxtu woo xam ne doon nga pousse jéggi sax daanu ko pousse ànd ak yow waxtu woo xam ne dara laax sab noonu daanu ànd ak yow xeer jaayant menoo ak yow ci sunu deret ak sunu alal ak sunu kàttan damaa def si daaw ma dëkk daal di wax loolu ñëpp daal ibnu xaalid daal di jëkk wax loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal waxaat waxam te waxoon sax ñu ma kenn ko ñu kenn ko yow yaram ci yàlla bi ñu ma ma dina wax mu ne ko waaw yéen laay wax yéen tax may wax mu ne ko mun day yéen dinañ leen gëm ne bu ma dikkee ànd ak yow jaayant na loolu yow ba ñu jaayante yow ci àq ba booba dem ne woon daana la aar ñu ñuy aar suñuy doom ak suñuy soxna léegi nag jóge nañ ca loola yokk nañ ci ne boo xuusoon géej gi ñu xuus ko ànd ak yow bu fekkee ne xeex rek la ñu mën a xeex yow te tabaroon ci suñuy bakkan ak suñu alal ñoo ngi ànd ak yow foo mën a jëm duñ la wax mukk li nga xam ne noonu la nit Moussa waxoon Moussa ànd ak sa borom ngeen doon xeex ñoom ngeen dund fii dañ naan la ànd ak sa borom ngeen xeexi ñu ànd ak ñoom di xeex yonte bi sallallahu alayhi wasallam daal di bëgg ñu xam ne nag léegi ñu àndoon ak moom kat pour na liggéey nangu nañoo xeex yonte bi sallallahu alayhi wasallam leen suñu borom kon gis na leen ne dana yor benn mu def leen ndëgg ma wala mu def leen waa Quraysh ak li ñu amee waaye xam nañ ne ndëgg ma raw na léegi xeex a def ñu daal di fagaru mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na kat ñu war ci gannaaw ñoo xam ne bu ñu xamoon ne daan xeex kon duñu des gannaaw parce que boobu ci waxtaan bu ñu maari ànd na cat ah li daal di defal nag bi nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañu leen nag mu ci bara bu ñu dikkee ba ci teen yi daal di wàcc foofu bu ñu wax xibaar ak mu mu jur daal di yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax fii nga wàcc ndigal la ko yàlla digal nga xam ne sañ nga ko bàyyi wala sa xel rek ak xalaat la mu ne dama xel xalaat rek la mu ne fii nag jubul nanu wàcc ba àcc ci ndox mi ñu njëkk a jot mu laata def te ñu xëttale ko def kanam boo xam ne ndox ñëpp def ci benn suñu kanam mu am ndox suñu noor bi ñu am ndox mu ne boo xam ne dëgg mu def mu daal def noonu nga xam ne def nañ noonu fekk na bi ñu duggee bëlal waa kon suñu tam di bëlal ñu war a def amul kenn ci ñoom ku xam su boromam toll su borom da fekk nag ci naaj yi ak tàngaay yi suuf si ñuy jaar di suuf su nooy ndox di yéex suñ borom mënul waa màkk jiitu yonent bi ca badal mu sotti taw boo xam ne dëgëral na suuf si ba nga xam ne seen jéego yooyu ndox ma teral leen ba seen doole di soit ñoom ak seen kàttan ñu taaral si ñoom taatal itam ba seen muus fees ñu atte itam daal di def noonu ndox mi féete seen ñoom neefal màkk yi ñoom seen ca ubbeeku ëppaate diggante ak ak ak badal ci suñu wax yàlla dina dawee foofu ndaw bi ñëpp moom moom itam kat Abu Sufyaan yi nee na ndaw nee na njëgg mi raw na ba dem na Màkka am ci ñoom kon ñu ne léegi dañoo juróom rek ngir aar suñu alal léegi raw na nan woon ñu ko Abu Jalil ma gënoon a bañ yonent bi ba tey topp ak mbañam nga rek ne déedéet du dem ba ni dale naan nag rey ko ñu jeex tàkk wala ñu daw ñu toog ci ndox mi rey suñu gëléem du noor wala tamit yéen arab yëpp dégg ko xam ni jàmbaar yi mu ragal ñu kenn du ñu dem di ñu ragal ba faw wala la ñuy def waaye duñ dem bu ko defee ah juróom bu réer ñun da dañu jëm rek ànd ak ñoom ngir aar suñu alal dimbali na leen tam léegi daal gannaaw raw na ñun dañuy dellu amul jur ba woon def kenn ko xam ne fekk na ba dañu dellu ñoom màkk ah bi nga xamee ne nag waa waa waa màkk jóge nañ ci xur ba yéeg tur li nga xam ne moo def seen diggante ak badal ma ne tam xar moo war gëleem bu xonk jiitu yonente bi salaatu ba mu ko séenee daal di ne bu fekkee gaay ñi ñëw am na ñu mu nekk ci kenn ci ñoom ci gëleem gëleem bu xonk rek dana gën a am di jiitu xëy dañu xas ne léegi ñëw dellu suñu alal yàlla rëcceel na ko bu ñu xeex nañ dellu jógu na woon ngir xeex dal di yónnee ne mën na ñëw ñëw ñëpp bu dal di dellu xam nga ñu sam dañ ne déedéet dafa ragal daw gis ne moom da rek ci ginnaaw ñun loolu wax duñ ci def lenn yaa kon xeex ñu ne kon nañ xeex bi nga xamee ne nag dikk nañ ba gaa ñu jàkkaarloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu kenn yëkkati jaaj wala xeet wala set lu mu ne wax naa leen gaa ñi avancé rek di jëm si ci ñoom am na ku ñu wax lasat ku ñu ab lasat ku ñaawoon jikko te ku soxar ku bëgg ay la mu daal di génne moom rek mbark nii wala ku ko wax dana ca naan wala dana ko màgg wala mu dana ca àtti daal di wax rek di bàgg na am ko dina bu ñu kay daal di koy warale caw ko jaay di dagg tàng ba mu daal ci suuf di raam mu ci bàgg na ba di lu am am ko benn ko jekkee le benn moo daal ci dina omar ñu jàpp ko wéy ci ñëpp ci islam mu ko defee omar ya tam ñu xaram omar ñu rabi ah daal di génn ànd ak soobal ñu rabi ah mbokkam ànd ak wéy ñu ko tugal boobu daal di ñëw ne ñoom Mouhamad dana bëgg nga génne ñëpp ñoo xam ne suñu nawle nañ ñu xeex ak ñoom ba mu ko defee am ñu ko ci lam saa génn loolu wax ñu ñu suñu mbokk yi nga xam ne dañoo gàddaaye màkk ànd ak yow wax yow ci daal kon am ko suñu abdul mutalib ak ñu ñu abdul talib ak sey bakat ñu xaarit ñu génn ndaye orbatu ñu rab ya dal daje xam ko suñu abdul mutalib am ko ñëgal ko dal ko ne sey bakat ñu rab ya itam ak ci ak ñu abdul talib ba nga yàlla ba di ñu ko dal ko ne ci saatir sey bakat nag nga xam ne bàyyi la ci yaram ci dafa nekkoon ku mag ba amul kattan mu daan daje sey ko ñu ragal kenn ku ci nekk dóor ko ñoom jaay ñaari jaay ci yeesaloo dara moo ko su dee tànkam dagg Seydina Ali na Seydina Hamza dal di ak sey la ko sey ko ñu ragal ak dal di koy jekkal ba mu ko defee nag waa Makka dal di gëdd saaba yi nag yonent bi ne leen bu ngeen gëddee rek sat leen waaye bu seen xeex bu sat leen dal di jënd gannaaw yonent bi dal di tibb ci suuf ba loxoom foofu mu xam ne dañ ko musaa ak ñu juum seen bi daal di naaw ñoom nag daa ñu sonn ñoom ñoom daal di daj kon ñoom ñetti téeméer lañu daal di sonn junni daal di daje ñoom boobu suñu borom daal di yónni malaayika yi ñetti junni ci malaayika malaayika yi loolu la ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari yoon ñu ne ñett waaye amu ci yoon mënoo xeex dañoo di kër ñun ay yi di dugg badal badal nag bu nga xamee nag ak ci nañu dina ñu jullit ñi lekk jullit ñi dañu yéefal ñi nekk bi nga xam ne moom la ñu nekk li wala malaayika itam am na ay seede am na ñaari gaay yoo xam ne ñaari doom bàyyi lañ leen ñëw doon ba dafa ko ko ñoom ba ci seetaan rek ba am fan la fi ñu ne ñu seede ak kanay gaay ñu yéegee ñeen ñu seene ay góor yoo xam ne seen meeteer yi weex la yàq si dafa seede gannaaw ci leen jiite moom meeteer gis yoon la ay mu seede ñaar ji biir yàq si seede gannaaw ñu leen gis lu mel ne aw ñii ñu dégg ko naan xay zuumum aqdim xay zuumum aqdim mu ne sama mbokk ma dana la moom càngum xolam daal di fatt ci saa si mu dee man dem naa ba bëgg a dee waaye yàlla dogal sama aatu mag mu ne li mu gis mu ngi ko nettali bi nga xamee ne niir wa wàcc na jege suuf borom fas yooyu jóge ca nee na ku ñu romb rek bala mu gis neexati jaas yi ndax dafa lëndëm ba mel ne guddi seen poussière bi nga xam ne seen jaas yi ak xeet yi mel ne ay guddi ñu dal di faagaal ak ñoom waa makk bi ñu delloo ci nettali nee na ñun day amul lenn lu mu def lu dul dajee ñett téeméer ñoom ñu rëy ñi jàpp ñi jëm ñi defuñu lenn waaye nag yëgguñu suñu bopp ndax gis na koo xam ne kenn xamul lu mu doon xamul nit lañu xamul ay jinne lañu boole jàmbaar waa madina ñi nga xam ne kenn ku ci nekk dugg na ngul dee nga xam ne kenn ku ci nekk sax bu leen dara wal ñu wóor kenn ku ci nekk bu reyee kenn ci ñun dund bee bu neex ñun waa màkka bu ko defee dañu wax xabaar ibnu laaj te daf daan nekk ay sat di ko jaay su fekkee kaala bi mu daan ñëw ñoom malaayka yi bu ko defee ah abu lahab daan ci mer loolu naqari ko ba mu daan di koy talaata daane ko toog dënnam safiya ibn abdul tay moo fab ak xeer door ko xaañ ko bi nga xamee nag kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xeex bi metti na ba nga xam ne daañu nañu noonu yàlla bi nga xam ne mooy bi gën a rëy bi abu jahlin fekk na gént gu mel ne da aatika géntoon ñu wax juhayl ibn salt ibn muhammad ibn mutalib moom gént na gént boo xam ne bi nga xam ne suba la ñuy xeex nee na man day gaañ gis naa loo xam ne mu ne mu doon loolu yàlla mu ne man de dama gis waa joo xam ne dafa wàcc dafa wàcc fasam wam na gëleem ba àgg ci biir kàmp yi daal di jam gëleem ga garab gi fekk amul benn tànk ci tànk yi dugub am na soxte garab yi ca dugg mu daal ne amar ibn hisam xëy dee maanaam mooy abu jahil daal di ne wala nag bi ma nag bi ma xëy def na rabia xëy dee xotuma ibn rabia xëy dee wala ibn xotuma xëy dee ne amar ibn xalaf xëy dee ba lim ñu bari ci gaañu ñoo bari ko abu jahil ñu dee daal di ne xam benn yonente gabat gi bokk ci biir abu tay waaye boo liggéey da ngeen xam kuy dee dal na suñu borom képp ki nga xam ne ci ci ñun ñaar muy ñaar wala mu moo gën a dogu bokk ci ñun bu gën a indi ñu kenn xamul yal nañ ko lay ëllëg dakate moo kon yow ñaanal sax yëngu su ëllëg saa bi ñu dajee sax boobu dal di doxe noonu ñu dajee sax na amul ñu sàmm nga xam ne mooy abu jahil yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ne abdoulaye abdoulaye bin masud su gàtt la woon ci tuuti parce que mu woon a am doole ci xeex ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne wala nga jekk li ñu def da nga seetal moo amar bin bisar mën a abu jahil ndax rey nañ ko wala dé te kon abu jahil muaas ibnu amrin mu boray fekk na ko mu nekk ci biir garab yoo xam ne yi naqari naa àgg mu fekk garab yi ba àgg ci moom fekk ko mu taxaw moo fekkoon na ko mu abi jahrin doomam bu mu accès jël ji mu dóor abu jahrin nee na yeel bi dafa naaw mel na xooxu ñëw boobu nga xam ne dañ ciy dóor safara ka mu mu sens ko mu ngi naawee waaye ba mu ko defee écran yi nga xam ne mooy doon abu jahrin dóor na jaas ci diggante sama baat bi ak sama mbëgg mi ba sama loxo bi dëgg ba nga xam ne ren soo mu sew wala la ko def ci may buri loxo bi ba xeex bi jeex ma dëgg ci loxo bi sama tànk xëcc ko mu tàggal ko ma dem wacc fa abu jahil mu daan ci suuf ñu yokku ma ko defee mu awal ibnu afra aksi jekk ni ko bu nga xamee ne nag xeex bi dem na ba nga xam ne léegi daje nañ leen ba dañuy jàpp nag ñi nga xam ne ñoom la ñu daje o mu itam ñu xarit nekkoon na xaritu sayidina abdurahman ibnu awf bi nga xam sayidina abdurahman ibnu awf bi ñuy wécc mbubbi kom yi ak gànnaay yi waa mag ak nga xam ne kenn ku ci nekk loo ci mën a xam rek da nga koy fab bëroo ba loxoom seet mu la jëkk mooy itam xalat mooy itam mu xalat nag xaritam la woon waaye ba tey ci ñëfari màkk la bokk mooy itam mu xalat ni ko yow rek mooy itam sayidina abou abdourahman tuddul woon noonu bi mu tuubagul murit bon abd amrin bi mu tuubee rek yonente bi soppi turam ne ko abdourahman ibnu awf mooy itam xat bu ko wooyee turam ñu woon yaa abd amrin bu ko wuy mu ne ko nag yow léegi gannaaw sama xarit nga dama lay woo te ni ma la xamee bu ma la ko woowee doo ma wuyu te yow tur la tudd abdourahman man xamul luy rahman bu ma la woowee lu ma xamul ndam wut tur woo xam ne dañ koy jaale suñu diggante ma di la ko woowee kon yow abdulilahi laa lay wax abdulilahi jooju nag am ko daan ko ko woowee nag ba boobu mu ne ko yow abdulilahi ndax bu guloo soow mu bare bare bare bare jàpp ma def ma jàmm bu ko defee ma jàpp gërëm yi bari laa lay def moo gën bu ñuy mu di ko ñu nga amee bu ñu ci jaat yi dinaa def man naw daal di wacc ram amee woon daal di sëyyee umay tam xalat mu ànd ak doom noonu Seydina Bilal daal di jóge teer te comme yéen nga xam moom moo daan ñu bëgg Seydina Bilal bu ko Seydina Bilal séenee daal ne xaxa umay dem ñu xalam boole yàlla naa dee ah umay dem xalam daal ne Seydina Abdourahmane naa ko doom doom doom ji mu di wax mu ne ko waaw dama ne foorale yàlla naa dee laa foorale yàlla naa faal mu daal ne ko Seydina Abdourahmane ibn Awf ne Bilal wax dëgg yàlla bu ma xaj ma nga fi naan bu ko ni nga xam ne woon ndax ci mu ne ko dama ne bu rawee yàlla naa faatu laa wax daal di yokk baatam gën a jofi ñu leen noonu yàlla bu mag baa ngi nii leen sopp yàlla yi ñëwul ñu ak si wër ko ba ndombo dañ na waaye moo njëkk a dóor doomu umar dañu xalaf kooku bu ñu daanoo umar dañu xalaf daal di ñëw ko ñëw boo xam ne kenn mënu la gis bu mel noonu jërës yi daal di koy subbante ba mu dagg too moo tax sidna abdourahman ne aw ne yàlla suñu borom yërëm sidna bilal yàlla ko yërëm ne yàlla dal xaj na ma sama di koom yaa jàpp ya xaj na ma itam sama jaam boobu ma naroon a jàpp yaa ngi sallallahu alayhi wa sallam ab leen ma ko bu mu accès fekk abu jeex ñu di xarxarle mu sax tànk fekk ci dëndam ne ko yow moom yàlla bi xam nga ñu yàlla toroxal na mu ne ko lu ma toroxale kenn laa ko bokk suñu leen rey doom waaye yow teg nga sa tànk bi yow tàmmkatu xale yi teg nga sa tànk bi ci boobu sedd mu ne ko bërëb bu sedd yow noonu yàlla toroxal la bu mu fab sama tànk bi teg ko da ngay dee dem safara kon nag wax déggatu la mu ne ko aw nag ngir li ngay jaamu dama la bëgg a laaj tuuti ku bañ a sa xar yi ñoo ñoo bàyyi bañ a nëmoo jàpp na fan yu màkk yi yëpp ñu leen may ngeen leen mu ne ko xanaa loolu am mu daal di koy jekkali dagg bopp ba ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bopp bu jeex ñu nii mu ne ah yow sëñ bi daal daal daal ak yàlla mi xam ne ci moom kenn bu ci moom di ñaan ci yàlla mi xam ne kenn bu ci moom ñu daal di leen di soxal ci benn kàmb bu ñëwee ba bëgg yéen di faral di dikk ci ñëw di leen waxaat kenn yaa bëgg mu rajaa yow kay bëgg mu rajaa yow la nii yow abu jahl ni mu ñëw ndax nga leen yàlla déwénoo di ngeen ko ñu ne leen yàlla di ngeen di ko ñun saa day ne ko mu ndax ñii nga xam ne tey fekk nañu ñu commencé xeeñ nga wax ak ñoom mais ñoom gënu leen leen a dikk li may wax waaye da ngeen mun la tënk ndax yéen bi saa ko yéen fu rek kenn ci li ñu amee rek mu xalaat ba tànn nañ ko sa tànn ndax moom ba ñu liggéey fekk nañ buñ ko laalee yaram bi tax ci ko ndax mën na ñu yaa di koy topp ci suuf ak bët yoo xam ne mun na ko yaram bi sallallahu alayhi wa sallam daal di xat naa tànk bi leen bi ñu daan war ñoom ñu gis waay ngir mu dem Medina ñu taal leen xabaar bi ba ko àndee naa fekk daal ñu tax beneen bi leen gënal Muhammad daa ngi ñu rey nañ ko daa daal di si xabaar boobu ci Makka waaw yaram bi sallallahu alayhi wa sallam bokkul ci bagal ba àggale junne denc loo xam ne bàyyi nañ ci saxaaba yi daal di ñibbi ci Makka bu ko defee nag waa Makka ñoom mer mer mer mer moo xam ne xaroog lañ ko xëyee xar lu tan guddi na metti na moo gën a metti ci xare yi mooy xare boo xam ne bii yëfar yi gën a nañ ci dund ko metti naa ko ci daaw wax la dimbali ci jaaraat waaye fekk na jullit ñi ñëpp ñu leen dal yeneen ko yóbbu dem nañ ba gis ko ci biir xare taxut muy weddi ndigal muy bëgg loo xam ne lii li jëm ci àdduna loolu moo tax ñu gañe leen xarut waaye bu ñu génn ci itam waa yahoot yi gañe li nga xam ne gañe nañ ko waa naq ci barab naqari leen la nga gis ñu tàmbali téeméer wax naan moo am nag dafa topp ndax nga daal di mu gañe waa naq li nga xam ne xamuñu xeex ñu ngi yahoot nag bis bu dajee ñu dana xam ne moom mooy nit nit loolu itam sallallahu alayhi wa sallam suñu borom séen ko ci ñoom mu daal di dal ci seen kaw bu nga xamee ne di ba mu tere di xaybar ak dañu koy def xaar ak xatasaan ay diir yahut la ñu woon yu wër madina ñoom ñëpp dana ko ci nekk léent bi jëf léente ñoom àgg fàtti na waaye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ñu gën a màgg ci ay noonam di waa Makka xam ngeen ne waa Makka ñoo ànd ak yahut yi xare xare bi ñuy wax ànda ànda mooy tekki waadoo seulement bu faris yi moo digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nga xamee ne ñëw fa yëpp muy yahut muy Quraysin muy yeneen gardi arab daje nañu ne dañuy faagaagal léegi nag Muhammad noppul ci moom mooy xaret xandam xam nga moom ji li ma wax gannaaw bu xaret weesoo bu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu na fekk na di banu maanaam Abu Sufyaan am na lépp moo xam ne nee ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu xare bi àggee benn yoon fay na ñu ko benn yoon daaw dañu ngeen ñu dañu nañ ñu ren bu réew dajee badar déwén yonent bi ne ko waaw li xew yëpp ba amut jeex ak xare yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xew na ko ci yëpp ba bi ñuy dikk ci sulxul xudaybiya sulxul xudaybiya moom itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gént woon gént bu kéemaane gént na dugg màkka ci jàmm wër kaaba gi dem mu am yaakaar nag ci suñu borom dëggal gént boobu la mu dal di woo saaba yi dajale juróom ñaari téeméeri nit yoo xam ne dañoo génn ngir umra ji màkka ñu génnee ngir umra ji màkka ñu ngi fàtt seeni ba dana mooy li nga xam ne ak neere ca kaaba ga mu tolloo la ñu amee juróom ñaar bu ci déwén bi ñu génnee màkka nga xam ne dugguñu bi ñu génnee madina bu guddi waa màkka yëpp leen dañoo bëgg a waaxu ba àgsi ak jàmm rek wër kaaba gi jaamu suñu borom am si ñetti fan dellu fekk na dégg nañu màkka namay ko waa màkka itam dégg nañu ne ñu jóge fii dem madina nii nañu madina dem wuñu baaxul ci ñoom ba dañoo sibru dañoo soogoon am nañu kattan ak li ñu gañe lépp teewul mbir ma naqari na ci ñoom yéen bi sallallahu alayhi wasallam génne nañ ngir fas yéene umra si bu ñu génne nag de xabaaram bi mu daataan ak si waa koy si dégg nañ ko bu ñu ko déggee ñoom ñu daal dina kat nan daj defal ndaxte arab yi duñu dégg mukk ñu ne Muhammad dugg na Makka mu neex mu mën a xaru loolu moom bu mu am nanu dajale loolu ñu ngi loolu ñu ngi gànnaay bu ñu ko may mukk ñu dugg Makka nañ ko dogale ñu daal di jóg ñoom itam ak xaalis bu mu mari ak mboolem ku doon jàmbaar koo xam ne dox nañ la drapeau ñu jóg fa seeni daje ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom itam dégg na ci li nga xam ne ñoo ngi ñu may yebal ak diine aar yi muy yomb di leen laaj dégg nañu ne waa Quraysh itam jëm nañu ba fas yéene daje moom te duñ ko bàyyi mukk mu umra ci màkk yoon woo xam ne mu yàqu la dañu dugg màkk umra am benn waaye bu ne ko nañ ma topp ma wan leen yoon yi ñu daal di jàdd wëcc yoonu màkk ci seen càmmoon ñu diggante takkal jéeg de nit ko bu nga xamee ne dox na leen ba ak bi ci benn bërëb boo xam ne xale muy dégg ñu ne waa koy ci kat jege nañu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñemal wàcc bu ñu wàccee ci xuru xam nga fa nekk amul ndox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di fab xeejal jox ko benn waaye ne ko demal nga seet benn kàmb ci kàmb yi amul ndox nga samp ko ci bi mu agsee ba samp ko ci kàmb gi mu tàmbalee nàcc ba fees dell daa ñuy dal di naan bu suñu ñu seeni nguur wala ndox li ñu amoon mu feesal ko am ndox bu toogee ba nga xam ne nag waa Màkka dal di nangu yebal aw rek woo xam ni dana leen xamal ci loxo fekk ku ñu wax bis bu sufiyaan mu ngi ko dajeeg yonent bi xamal ko ne ko waa Màkka soxla na mboolem li ñu amoon ci gànnaay dinañ ci fas ñu yéenee dajeeg yow te bu fekkee ne da ngaa fas yéene dugg Màkka te wañu ko daañu xeex ak yow luñ mën daañu la ko def gannaaw bis waa Màkka itam ci yonent bi ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ñu wax bu doy lu mu war a mu bokk jimbanu xusaa jimbanu xusaa ci biir waa Màkka bokk nañ ci ñi xam ne ñoo xaw a gën a jàng tum ci yoon bi ci woyofal rek teewul nekk ca lañ nekkoon ci teewal bu dee dal di waaxu ba ñëw ak ci yoon bi salaat ne ko yow da ngaa ñëw fekk réew mi nga juddoo nga jógee feneen ànd ak jaabu parce que yéene toj mu ne ko déedéet loolu yëkkati ma li ma yëkkati daal mooy kaaba ak yàlla gi laa fi yéene jaamu jaamu yàlla wër wër ko ah bu dee ko xaa dal di xool gis ne amuñu ci gànnaay amuñu lu dul rek gànnaay kuy tukki mu dellu si ne waa Màkka man da ngeen a gaaw fekk mu am na jógul ngir xeex dafa ñu rek ngir wër si kaaba bi mu ne ko nag yow nekk sàmm koo xam ne ci xamuloo dara nga mu am nag daf laa nax rek waaye loolu yow da nga xamul dara loolu du ñu nax de loolu yëpp wuñu mu am nag daal soobee yàlla du dugg Màkka mukk mooy leen amul nag benn jëmm bu am sañ-sañ di dem ci kaaba yi kaaba yàlla gi di jaamu yàlla ni loolu di gën seen moom te bu ngeen fekkee ne yéen dog ngeen ci loolu man man ak diin ban xusaa gi ma bokk daan def mun lu man ñu daal di xuloo moom ba nga xamee ne xuloo na ñoom moom ñu daal di daal di yebal waa ji wax mukkar ne ko demal yow nga seetal ñu ba xam lu la fa Muhammad bu nga xamee ne yow ngi seen na mukkar bu mu ñëw mu ne war ko te ngi ñëw bu ñu kër ba accès ne Muhammad am na loolu loo wut si dañ ne ko noonu day bu ko bëggul jàmm rek dina ko ci yére taabal ñu ko daal dellu nekk li leen li mu gis ñu ne ko da day yow day bañ loolu léegi sabatu mu ko ñu nekk ci biir sàq yi di nit ko am xel di nit ko am fulla pour nit ko fekkee bu ñu doy loo ñu ne ko ñoo yow ñun la ci Mohamed yow da nga mën a xam la fa xew mu ne daan gis naa kat bu bu léegi demee ba génn si ak micro mu ngeen leen wax man kat dama leen di xamal ne dama leen a mën a bay wala duñu ma leen waaye du ma dem dikk mukk ngeen di am sikk sàkk ci li nga xam ne moom laa gis wala li ma leen di wax ñu ne ko may mënu demal bu nga xamee ne Quraan di ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ne ñi amee woon xaj ñi maanaam ñi war a rey ca Makka ci umra bi wàcce leen ci xum ñi romb leen ko ngeen def ko ishaar maanaam bay ñuy xaj ñi ñu ko ñuy xottee jëgal mu gërëm bi takkal ko jirlande bi mu jaar boo ko defee mu jàllal moom xam ne li mu indi mooy wëkkaal bu bu dee gisee loolu ma da xamal bu bu gisee loolu daal di dellu mu leen daal li ma leen di xamal mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad daal léegi li ma ci gis mooy nañ ko bàyyee arab bu ko arab yi reyee loolu ngeen na moom bu fekkee ne itam not na arab yi ba ñëpp topp ko ñaanga ji dina dellu ci noonu mu am jàmm bu dul lii nag xaw ma ko ñu ne ko déedéet loolu nag buñ ci ànd wax nga loolu loolu wax dëgg la ko daanu seet koo xam ne kii bu demee mooy wax kaanam moom dañu fasante ci lenn bu defee daal dañuy jàppoo ci loo xam ne day dellu ñu sàttal ko at moo xam ne dana ñëw tëralee ko ay sàpp yoo xam ne itam bu ñëwee ca lay dox bu ko defee ñun daanu génn màkka wa teg ko ñetti fan bu ñett fan jeexee du dellu ñu dàq ci loolu bu daal yéen yéen nit rek ñu am li nga xam ne nit ku mën a wax la woon te mën a xutba léegi ñoom bu ma accès tàmbali ñu moom nag di wax ak moom arab yi amoon nañu aada yi bu ñuy wax ak yow te miinante yow dañuy téye ci fukki ci lu bëri bi su leen accès dañ lu jëlee yonent bi salaa sallam bay laa ante téye ci këm nii ci këm nii ñuy wax mu ngay tur mu soxla bu nga amee woon xel wëkkati gannaaw xel bi bu ñaaree ci ki yonent bi rek mu ne picc ci loxo ni ko téye sa loxo ci ki yonent yàlla bi bu ko laal ci sa loxo waaye bu ko defee itam su leen amul soxla bu ko def rek ba muy ñett yoon wax fay lu lu dal ne waaw mu am rek kii kan la yéen bi mu ne ñu ko kii de sa doom la ñu ko ah bu dee mu soo ba yow bëgg ci jël yaa mujj raxas taxaw la raxas xaw na mu ci dund bu dee mu soo ba dafa yoon fukki nit ak benn su rëy say cër dee ñu ñëpp ba bu ci mën a am jàmm kenn nga rey bu ne ko bëgg ci jël rek laa la defal loolu te lii la ñu nit aw jël ñu am dañ daal di xool ne yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bu jàppee ñu ñu njëkkante ñàkk ni fàtte loolu bu tax nit bay tax li ngay tax nit ngay laal ko ñu njëkkante ko bu watoo saawam du laal ko te awuñu ko loolu bu ko bu dee gisee ba mu dee dafa ne dem naa ba gis kisra ci muuram gis naa xaytara ci muuram gis naa najaasi dem naa gis naa nguur bu nekk waaye nguur Muhammad moo gën a mag seen nguur yooyu ñoom ñëpp li leen di leer moo di gaañee duñ ko woon dem naa mukk mukk mukk te jaral na leen day jaral ñu leen lu nekk na ngeen seetal li ngeen seet loolu mu ngi dañu léegi Muhammad dama bëgg ak ñu yaay bu leen mën a dugg màkka ndax gàcce lay doon ci ñun ñu ngi tëral ay sàkk yoo xam ne dañ ci ànd yow ñu ne ko waaw daal di wax aliment bi tari ko ñu leen nga bind ñu d'accord léegi ñu nga bind ne bii nga bind Muhammad yonent yàlla bi moo ko d'accord pour ñu amul fële ñu ko jéem yonent yàlla bi nangu ko ndax bu ma nangoo woon ne yow ndax dama xeex ak yow waaye na nga bind Muhammad ibn Abdullah rek dinaa bind hada ma sala ali Muhammad ibn Abdullah wa fële ñu amul lii mooy Muhammad ibn Abdullah rek yonent bi salaatu junne sidna Aliyu wan na rasulullahi ji ma far ko ndax yonent bi mënu la jàng mënu la bind sidna Aliyu attan la far rasulullahi ji mu ne ko yonent bi ne ko wan na ko mu teg si naa lim teg ci loxoom yonent bi daal di far rasulullah daal di ne ko bindee ci kawam muhammad ibn abdullah mu daal di bind muhammad muhammad ibn abdullah ak sulayh ibn amr ñoo d'accord ci biir ba gënal mu ne ko mu fekk bu si naa lim bindee bismillah rahman rahim loolu am na dafa yonent bi nangu ma rahman rahim ndax xaw na ko na nga bind bismillahuma moom la nga xam yonent bi ne ay leen bindee bismillahuma ma bind bismillahuma lay na léegi li ñu dàq ñu ñu ànd daal moo di ne muhammad na dellu ak nii bu umar jërëm lay ñëw bu dee du ñëw bu amee ci gànnaay du ci gànnaay ay tukki mooy jeex ci biir mbaam bu ñëwee dana am ñett fan ci màkka bu ñett fan ni ma dee ñu génn màkka léegi bokk na ci li nga xam ne dañ koy signé mooy képp koo xam ne borom ci nga nga jógee màkka fekk Mouhamed wala Mouhamed delloo ji waaye képp koo xam ne jóge nga ci Mouhamed ñëw fekk fi yéefari màkka yi waa màkka dañ lay téye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw d' accord ci loolu ñu ne nag te fukki at dañuy tëral gànnaay yi diggante Quraysh ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu xeex Seydina Omar daal di mer saxaaba yëpp loolu naqari leen Seydina Omar daal di wax ba ci Abu Bakr ne ko waaw ndax bu ñun ñoo nekk ci dëgg mu ne ko xantaay ndax bu ñun yépp rek ñoo nekk ci seen mu ne ko xantaay lu tax ñi dañu jox leen bu gën a sëgg ci dëgg di gën a bu gën a kawe Seydina Abu Bakr ne ko seede naa la yonente bi yàlla mu ne man tam tay seede naa la yonente bi yàlla dañ ko fay def ci dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw du ñu nekk ci dëgg ne ko xantaay du ñu nekk ci ay caaxaan ne ko xantaay mu ne ko lu tax nag mu ne mu di leen nangoo féete ko ñii si ngeen teg mun loo xam ne ñoom ñoo ñu féete ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Omar ndax yàlla ak yonentam bu ñu dogoo ci dara am nga sañ sañu wal ba dugg seen fank ko na Omar nee na ma tiit ci saa yoo xam ne ñàkk sedd dugg na sama yaram ne boo ba léegi ma ko fàttali ko musuma dem bu bàyyi samay sarat ak samay tuub ngir yàlla baal ko yonente bi moom ci boppam xelam dal amul jaaxle amul naqar ci li xew amul ci lenn lu dul dëgg saxaaba yi nag ñoom ñëpp seen xel dem na am nañu naqar am nañu jaaxle te ñu ne ñu wax dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dalal bi ne daal di rey daal di ne saxaaba yi rey leen seen i addu te ngeen watu kenn faalewu ko mu jóg ne rey leen seen i addu te ngeen watu kenn faalewu ko mu wax ko ñetti yoon kenn jóg ndax jaaxle bi jaaxle ak naqar bi ak gént gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam géntoon dugg Makka wóoru wër kaaba bi loolu itam ñu ne amul loolu yëpp jaaxal leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël ci Muhammad ne ko jullit ñaar ko noonu dugal naa leen ñu bañ soxna sa ne ko da ngay rey yow sa xëb yu wattu rek bu ko defee daal di la daal di ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di rey xëb yooyu daal di wattu saxaaba yi ñoom daal ñoom ñoom daal di njëkkante rey seen i at yi ñu waxu ñuy fekk seen wàññi seen karaw yonente bi salaa sallam yàlla na yàlla yërëm ñu waxu ñu ne ko ak ñu wàññi seen karaw mu ne yàlla na yàlla yërëm ñu waxu ñu ne ko ak ñu wàññi seen karaw mu ne yàlla na yàlla yërëm ñu waxu ak ñu wàññi seen karaw ñu ne ko lu tax ngeen njëkk a ñaanal ñu wàññi seen mu ne dama sikki sàkko yi ah ñu daal di dellu bu waxee ni ñu dellu yonente bi salaa sallam wàcc ko naa yaa ngi suñu borom wàcce صارت إنا فتحنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وين ko ne jox nan la maanaam mu mel lu lay maanaam ngañaay bu am am solo te suñu borom jéggal na la say bàkkaar la jiitu ak la mujj matal na yërmandeem jëpp ak xéewalam jëpp ci sa kaw jaaral la ci yoonu jub saaba yi jaaxle li ñu jógee ak waa ak saar bi mel ne dañoo gañe ak xare bu ñu waxee yonent bi mu ne leen waaw li ma ànd ak moom fukki at ñi nga xam ne wéer ñu ko jaar ci sama diggante moom dana ma may ma mën a xare yi ci àll bi te du ma ragal ñu joxal gannaaw li ñu wax ne ku jógee ci ñoom bu ñëwee naa ko delloo bu ma ko delloo it yàlla du ko bàyyi ku jógee ci ñun nag nga xam ne da ngaa mën a sax ba sama diine bi islam dellu te ñoom am nañu ci soxla kon yàlla noppal na ci moom ñu daal di xam nag yéen di wax bu fi yéen di jógee léegi léegi wóor na waa Quraysh seet fukki at bi mu xare mu daal ci kaw xaybar xaybar di ay yëwat yoo xam ne yu teew waale dañoo def woon nag li ay wax zaxna ñu jënd ak noone rek ndax lii mu woon ne ne yéen bi ñu feeñ ci ñoom lay feeñe mu feeñe ci arab ñu gis ne woon arab yi ñu ko ko feeñ ñoo leen gisee foofu loolu gën leen a xel ñu feeñe seen noone ci biir ak ci zaxna yéen bi sallallahu alayhi wa sallam dakk na jëlee na ci sunna ak ndéngee bi ñu tuddee loolu mu dal ci kaw xaybar xaybar ay tatay tatay tata la yonent bi suñ borom dafa foog jàpp ni dañ ubbi kata yooyu yëpp la ca nekkoon lépp mu jël ko ba mu def ñaari kata bu ñuy wax wasiix ak sulaari wasiix nag di kata joo xam ne ci naqaree fab la ay jàmbaar ca nekk benn yow bi ñuy wax mirab dañ jàmbaar joo xam ne bii dafa bari doole am na ci sahaaba yi ñoo xam ne bii ci bëgg ànd nañoo moom suuf gëleem boo xam ne juróom nit wala ñeent wala juróom ñett ko yëkkati da ko daan yëkkati moom kenn teg ko ci kaw bëréew bi ba xam dal di génn mbooloo nekk ci gannaaw mu dal di sànni jëleteen ba ci kaw awu ko dal di yuuxu ne anak mën a ñëw naw boppam xeex ak man gannaaw yéen nee ngeen ku ñu rëcc suñu jees yi nga dem àjjana ku ñëw ma yóbbu ko àjjana léegi arab yi dañu nekkoon ñoo xam ne li ñuy wax rajen mooy seen bàpp ñu seen xarit waxtu ñu bëggee def njàmbaar wala ñu def njàmbaar dañ koy def rajab wala basit wala woo xam ne rek dañuy tagg seen bopp di wane seenu njàmbaar ak seenu fit moo doon seen aada ñi amul njàmbaar ñi am ñi amul njàmbaar ñi soo raw yëpp day ko def te na xataa ñu saari ci saaba yi woon ne ko ne ko doy waar waaye nag yàlla def moom joxe ko ak njàmbaar bu demee noonu ak fit waaye teewul ci wayam daana def loolu noonu am na tamit rek bu wax naan وقد غدوا أمام القوم منتفقا بسالم مثل لون المرء الطائر فاحتفالي وجاد السيف صادقة قد صارت مثل لون الطائر dikkat bu boppam wane ne yàgg naa jiw ci këram mbooloo kon bu ñu toog moo xam ne dañuy fekk jeet ci kaw jeet ci bu ko boccee mu mel ana melaw xorom mbugum ko mu sol mel ne jéeg boo xam ne dafa tàng di ko jant bi màkk ci ci melam yonente bi salaa sallam romb ko dégg mu xaru mu lee xam ne ne waayam ji day mën nga wax wax nit ñi waaye tax mu koy jàmbaar te xale ba rek mu daal di jàng jëf léegi bi nga xam génnee daal dala jëf ne fat ali nag xaybaru ak naa marxabu shaari silaahi batarun mujarrabu عقعوا احيانا وحينا اضرب وثاني حماية الحمار لا يقرب ولن من ذلك حيث يبقى من المرحب لنا كل دم ايام نولا لنا كل خمس خيلة كلا بنك ci xew xew bu mën a xew rek ndax mu waxtu woo xam ne xale jublu rek dana def njàmbaar waxtu mu day ne xale yi jublu fee dana dugal seen jaay si ñoom jàpp seen i deret te moom nekk na nit koo xam ne lépp lu mu aar kaaraange la loo xam ne kenn du ko jege ñu ne Mouhamed bu Masal rek mu jóg jàmbaar la woon ñu ne Kaab bu Malik moo jóg tontu ko ñu ne Ali ibn Abi Talib waaye Kaab bu Malik moom it nekk na rajo bi nga xam ne moom la rajo ngir tontu Mahab ñu koy daal dina xam Ali mag xaybaru anna Kaabu mu xam mu kan maa fay ci pour xaar ibn Abbadu اشتدت الحرب تلفها الحرب معي حمام ذكر وعبد أطعمهم نبأهم أنتم أتارين الصعب بيد حازم ليس عنده عبد محمد بن مسلمة muy Kaab bin Malik muy Sidna Ali mu ci doon ba nga jógee ak garab bu xaw a gàtt moo dox sa diggante ak naxar ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk làqatu ngir bëgg a nax sa morom wax loo xam ne kenn ci ñoom xaj ci na jaay seen bu doolee kooku làqoo garab gi mu dëgg ak car ba garab gi des lu muy ëkk gi rek mel ne nit ku taxaw seen diggante bu ko defee naxar dal di loolu dañ koo boole rek xaj ci dóor jaay seen dóor boo xam ne bu ko sëgg doon tukki nit ñëpp dee waaye mu am mu masalaka mu ka abdul malik mu alim na bi tari kam ci doon sok kam la dal di dox jaa ci jëm sok la wala di wax moom la arab di wax al mujjan wala zaraqa wala waa di ko wax buuka yéew ba nga xam ne jaa ci na xat daal na ca fakk ba ub bi ca ba demal alim na bi tari wala mu xam mu masalaka mu ci doon xam na ne jaay bi laxat dugg na ci fakk bi may ko temps mu bocc ko mu daal di fay moom it mu dataay dóor ko ci bopp bi ba jaay bi xaar bopp bi dataare yuur bi xaar bakkan bi ak kur yi ba ci bañ yi nga xam daal di jaaxaat saxaaba yëpp daal di kàbbar ah ñi nga xam ne neen alim naa di taalib la neen alim naa di taalib bi nga xam génne na ak xalimat xaybar anna marhabu شاف الشراع بطل مجرب إذ الحروب أقبلت تلتهب ألم دمك أن الذي سمت من أمي حيدر فليت غابات كريم منظر أوحيهم بالساحل كيد تنظر من ما إلا خمي كما لا يمكن تدعو مدائر بما تدعو aji ñaaw ji gànnaay laa ku jàmbaar laa jàmbaar bu ñëpp xam kenn du ma nattalee kenn musuma daje kenn lu dul daje naa ko beeram dama leen di natt ci jaasi ji ni andaar di nattee jubub tàndarma ba ngeen jeex li ñu dem ak ku la ñu xam ci gën a ci mooy Aliou waaye gis na Aliou ci boppam jaral na jim dem ci bisu xaybar boobu way na gis na Abou Bakar leneen bi sallallahu alayhi wasallam jox raaya ji mooy drapeau mu jéem a dem ci taxe jooju ñuy wax wasiya xeex xeex xeex ba dellu ci mu la fexe ba ubbi buntu ba yonte bi xam drapeau la jox ko Sidna Omar mu dem xeex xeex lépp lépp lu noon ànd ak saxaaba yi mu ñëw fexe ba ubbi taxe ji bi ñu déggante yàlla bi salaa sallam dal di génn ci mborom ne bu ëllëgee dana jox raay ji jëm joo xam ne dana topp yàlla yonent bi te yàlla yonent bi danañ ko topp jëm joo jëlee ci njàmbaaram dana ubbi taxa ji ba ñu delloo muy Omar muy Abubakar muy kenn ku ci nekk yaa ngi xalaat kan la yonent bi salaa sallam nag di jagleel teraanga jooju ak taglee mu ko teg ba ëllëg bu ñu xëyee mu dal di wooru Aliou yaa Aliou yonent bi mu ngi wàññeent moom lim ba xamul fu muy teg tànkam buy dox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di fab jëm si naa yi fekk ci moomam bi daal di jàng tax ko ci baaraam bi raay ko ci bët bi naa yi fekk booba xet mbay ba yaa ngi neri ba ci suñu bët bi mu daal di summi meeteelam meeteele ko fa mbaxanaan ko ne ko demal nga ubbi taxe ji ci ndimalal yàlla sidna aliyun leen keroog xeex na ba ñetti pakk yu amoon yëpp daggatu na ci jaasi yi keroog laay omar ibn abdou muddin omar ibn abdou muddin moom itam yow ak yowoon boo xam ne kattanam yi mu sànn ñun ñëpp dañ ko daan ragal ba mu jëndee am na yeneen xeer yoo xam ne bu Omar ibn Abdul Mudim samee jaasi ji ne kenn ku bëgg a dem àjjana ci yéen ñu ne mu yóbbu ko léegi li yonente bi sallallahu alayhi wasallam sidna Ali tàggu ko ne ko day dem ci Omar mu ne ko toogal innahu la amrun toogal kooku de Omar Omar ibn Abdul Mudim nag mu toogaat Omar ibn Abdul Mudim day na ci yëkkati def la ko defoon kenn ñu wuli Ali day na dama ciy dem yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko toogal kooku Omar la ba ci ñetteel mu ne ko feeboo di Omar yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne daal demal nga demee Omar naa dugub bi daal di agsi Alioune daal di jàkkaarloo moom Omar naa dugub bi ne ko eh yow day sama doom nga bëgg mu laale mu ne ko man nag maa la gën a bëgg rey Omar naa dugub bi daal di mer wàcc fas wi daal di cor daal di fas wi daal di talaata kanamam ndax mer daal di bëcc jaaseem daal di songoo Alioune bu nga xamee ne jaaseem xacc na ko bët doo Alioune sànni ko fakk bi mu dal ci fakk bi ba mu ko dóoree moom itam jaasi jaa ngi agsi ci dënn bi xar ko ñaar ñu xam daal di jaaxaan ne laaj bi wàllu féete fii wàllu féete fii julli nekk daal di kabar moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna qatla aliyin li omar ibn abdi wudin afdal min ibadati saqale yi rey gi sidina aliyun rey omar ibn abdi wudin moo gën jaamu nit ak jinne ndax nit boobu mu leen dëkkoon te kenn wala dem aliyin di xale bu ndaw dem def ko jëf jooju ñëpp jan lool daal di joxaat ci nit ñi kàttan ak wóolute ak fit keroog sidina aliyin bi mu xeexee ba tokk yi amee woon yëpp dem benn bunt la fekk ci bunti xaybar bi mu yëngal ko mu tàggal ko boobu yi mu yëkkati ko def ko fab xeex ba xeex bi jeexee sam ko sànnee juróom ñetti boo la ko jéem a yëkkati mënuñ ko wàllati su naalin daal di ubbi wàtt yeex ubbi salaalim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di nopp ci xaybar li ñu jëlee ci xaybar ci alal kenn xamul mu toll loolu fekk na xare bi nga xam ne maanaam maanaam gudd nga bi nga xam ne nekk na diggante yonente bi ak waa Quraysh ba nga xam ne yonente bi tànn naa mën a xeex ak ñeneen te Quraysh di ñëw mu ngi lay fukki at yi matagul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di song xaret tabu te bu xare woon boo xam ne bu mettee mettee metti la ndax ñi ngi woon ci ñoom nit ñi ñu ragal lañu muy waar woon seen kattan seen alal seen jumtuwaay xare ak seen dem kenn xamul mu mel fu ñu jëm dafa sore sore sore sori te booba arab yi ñu ngi toll ci diggante ñàkk waxtu tàngaay mu mettee metti ñàkk boo xam ne amuñu lu ñu waaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa woote ne jullit ñi ni ngeen waaje xare bi waaye amoon na ko indi keroog la sidina Ousmane ibn Affan indi yoo xam ne jaaxal na jullit ñëpp keroog la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bég ci moom ba ne sidina ba ne suñu borom tabaraka wa taala gërëmal Ousmane gërëm naa ko ba ne Ousmane mënatu la def tey gannaaw tey lu ko lor saxaaba yëpp kenn ku nekk di génn loo amoon di génn loo amoon taw la si nga Omar indi lu mu indi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko loo ko bàyyi mu ne ko lu toll na lii ma indi Abu Bakar si biir ba mu indee nit indi yonente bi ne ko loo ko bàyyi mu ne ko yàlla ak yonentam mais yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ne ni seen ñaar wax ñu demee ngeen demee yéen ñaar ci yàlla bu nga xamee ne sallallahu alayhi wasallam waajal ñu leen ba noppi nekk ci jamono ji ak sori fa ñu jëm ak tàngaay wi ak ñàkk bi ak ragal bi ñu ragal ne ñu ñuy dajee ni tax na naa fekk yëpp dal di sakku lay ñu nëbbu pour wax sedd mu xëy si dañu dee day ak ridwaan mooy ki nga xam ne mooy njëkk lay lay wu ñaaw mu dellu lay lay wu ñaaw ngir bañ a dem am ci naafeq yi ñu bare bari ñoo xam ne lay yu ñaaw lañu lay lenn ñi far nëbbu am na sax ci ñoo xam ne ñi ñi seen gëm wóor la boo xam ne amul kenn si ci sakka ci ñoom ñett ñoo xam ne sax jëmu dañoo def arab di wax talaku yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnee am nañu bari ñu des saxaaba yi nga xam ne seen ngëm lat na am na ci ñoo xam ne dañoo toog jamono jot la meññet mi tàmbalee ñor ñu seet meññet mi seen ndox yu sedd yi ñu teg seen kër yi gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jaar ci tàngaay yi jaar ci naaj bi jëm ci xare bi dox bu metti bu sori bi nga xam ne amuñu waruwaay yu bay am na keroog ñoo xam ne dañu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg a dem ci xare la dañoo bëgg lu mu war yonent bi amul lu mu war mu ne leen amul lu ma leen jox de lu ngeen mën a war ñu seen la leen ko ndax am na xar ndax mënu ñoo dem ci xare ba am ci ñoo xam ne bi ñu gisee loolu dañu ne ñun du nekk ci ker di naan ndox mu sedd di lekk meññet nekk ci jàmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci loo xam ne kenn xamul ñu doon ci métti dal di dal di xare ba Abu Zar bokk na ci sahaaba yi gënoon a jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ko gisatul fekk na booba gëreemam dafa tëdd yàlla ñu ne si yàlla bi sallallahu alayhi wasallam Abu Zarr gisuñu ko mu ne su fekkee ne yiw ngi ci moom suñu borom dana def mu jot lu su fekkee ne yiw newul ci moom yàlla noppal mu ci moom bu nga xamee Abu Zarr jéem na jéem na bu gënee bi mu daan mu daan fa nga ci gënee nga yem teg ga daal di daw bu ñu yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne am na ku ñu yàlla bi xool bi mu nga xam mu dem ne pour ala gën a nekkal Abu Zarr mu dikk di Abu Zarr waaye fekk na ñi nga xam ne def nañu ne jënd na ci ñoom seen bakkan ak seen der gaa yi ko ajal ak seen alal tey jii ñu def ñu ne dañu wax nañu yàlla ci ñi nga xam ne ñoom ñoom ñu loolu nekk seen xol fi nekk di sax lay war lay yonent bi lay daal bu ma ak seen naafeq yi ba wala boog kenn ku nekk di lay lay li nga xam ne moo la fee dem te am na maay sax bilaa di moo may bi ñëwee daa di mu moom ne bi mu la dem bi sallallahu alayhi wa sallam mu moom mu ku mel lool yonent bi kaat ne ko man day yow yow yàlla bi bu ma taxawoon ci keneen pour yow am naa ci xel ak ci lay yi loo xam ne bu may sàggoon moom gën a ma gërëm te dem nangu sama lay waaye bu may waxee loo xam ne du dëgg xam naa ne borom dana ma baaxal ci sama ci sa kanam te dana ma xamal ne ñëpp mu ci dëgg te dana ma lay bu ma waxee dëgg neexul itam xam naa ne suñu borom ci dëgg boobu dana la wan lu la dëgloo iman li xew daal moo di aw ma wenn lay seytaane mën na ma beddi ku naa la ci waxtu mu gën a nettee xam naa ne def naa lu gën a rëy yàlla dina ko li nga wax ne moom dëgg la waaye da nga dem dama seet lu yàlla dogal ci sa mbir bu mu géewee ay mbokkam ne ko tey jii dem nga njuum dala mag yow lan bi sara sara boo ko layoo dañ gën a tey ñaanal bi la ñaanal déglu la yàlla rek danaa lay moo dem ci yow léegi ñu di ko wax di ko wax ba mu fas yéene dem di yore bi salaa sama kenn loo bopp ci la waxoon ngir lay ko danaa ñu waaw ndax am na keneen ci ñu woon woon tëra na nag mu ne ko waaw dama yëg mu daal di xam ne ñooñu ñu ñu doon waar lañu mu daal ne ñooñu dañ jaar nangu naa faa jaar duma dem daal di toog yonente bi salaa sama daal di yónni ndaw ne ñett ñooñu bu kenn waxatee ñoom bu kenn nañ kenn jaay kenn jëndee ñoom bu kenn ànd ak ñoom bu kenn digaalee ñoom dara ba yàlla doon ngeen ci ñoom ñu ne yow kenn ku ci nekk ñu ne nee na bu sa soxna wax ak yow te na nga ko sore na nga sore moom saa bu mu naay daal ci yebal soxnaa ne ko nañu gis kër ba yàlla dogal ñu mu dogal ñoo ñëpp ñoomu ñu jaaxle tuuraanke kenn du wax ñoom saa nee na ñaar ci def ñoom kenn ku ci nekk torax lu la ci nga jaaxle la ba benn da ngaa yeewu sa bopp wala nga sëkkal rek waxtu bi jëlee la julli foofa kenn ñu ko wax ak yow nee na man nag ma nekkoon ki ci gën a dëgër dañ cee bàyyi solo di dem ci marché bi wax mu julli jot la dem julli ji bu ma ñëwee bu weer bi xalaat la jigéen maa ngi ñëw ci julli bi bu ma xoolee bu ma war a bëgg mu dumóoyu nee na bu ma xoolee sama julli rek dégg bu ma dikkee ci marché bi kenn du ma julli ku ma dem ci moom du ma xaar nee na ba suuf si xat ci man ba xëjee tuuti sama bopp sama bopp xat ci man suuf si mel ne du suuf si ma xamoon sama gis mel ne du ko ma xamoon man sama bopp xajatuma ci àddina xamatuma leen mais nag benn bis ma jóge ci jàkka ja dal di yéeg kër diw nga xam ne sama mbokk la moo ci ma gënoon bëgg ci nit ñi ma yéeg mii nga ma wàcc ne ko diw mu ñëw la ma ne ko seede nga ne ku bëgg yàlla ak yonent bi mu ne fatt wuyu ma ma ne ko diw seede nga leer na la ne ku bëgg yàlla ak yonent bi laa mu ne fatt ba naw ma dal ne ko diw ci digg ak yàlla seedeel na ku bëgg yàlla ak yonent bi laa nee na ma ah yàlla ko jëriñ sama xam dana ma dal di dellu gën a jaaxle ma jàpp dana jàpp lool dama daal di yéegaat ñëw ba daal di dem maintenant am naa kër bu nekk ca gannaaw rek ñëw ca salwa ma dem tudd ko man ci moom gën a dëgg ma toog ñu ne daal ñun ñëpp daal bokkatuñu ci adduna lépp lu nga xamoon fakk nañ ko képp ku nga xamoon fakk nañ ko kenn dootu wax ak ñun ñu ne ba mu am juróom fukki bis di juróom ci guddi yi ci suba ji ma xëyee ma dégg jëmm ji taxaw ci kaw montaan bu kawe ne yaa kaabu ni maalik aw ci yow yow kaabu ni maalik dëggal mais fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu julee turam la aaya wàcce لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كانت تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه هو الرؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوه حتى اذا ضاقت عليهم ولدنا رغبة وضاقت عليهم وانفسهم وظنوا ان لا مجال من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من العرب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرحموا بانفسهم عن نفسهم ذلك بانهم لا يسلمون دمهم ولا نسبهم ولا مخلصهم في سبيل الله ولا يقعون موقع يديه الكفار ولا ينالون من عدو الناس الا كتب لهم في امر صالح ان الله لا يجوز المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليسوا ولا احسن ما قبلهم الآية دي وكيلة المرور في قوم جدا من المهاجرين جدا من الانصار daañu nga xam ne topp nañ la ci jamono jëm gën a ñor fi gannaaw bi nga xamee ne xoolu daañu gën a bari ci ñoom jàng na jëm ci leneen ndax naqari jamono ji ak sii fa gën ko suñu jëm gannaaw bi mu dellu jéggal leen baal leen seen lépp ndax ñoom di leen ñëw ak ñoom di leen ñëw mu dellu jéggal ñett ñi nga xam ne nit ñi bàyyi nañ leen woon leen gannaaw ba seen xat ci ñoom am na lu yaatoor ba seen bakkan xat ci ñoom ba nga dem ko wóor ne amul boo dayee jóge ci yàlla fenn koo del wax mu jëm ci yàlla mu dal li ñëw leen bàlle bu dee rek maanaam tax laa waxul ma tarixi yéen gaa ñi gëm yàlla ragal leen te ngeen di ànd ak muy dëgg ñu toujours mu daal di génn kaab bi ñaar dëgg wax yoon leen mu ne muy waa Madina mu ngi leen ñëpp amul ci kenn koo xam ne am nga kan-kan yonent bi yàlla bi lu bërëb tiis tiis lu ngir jëm jëm day nga nga nga def ko bu bëgg seen bakkan dafa seen bopp gënal ko yoon maanaam gënal seen bopp ci nga ko ci yàlla ci yoon xay loolu ko waral mooy bu ñu màcc ci yoonu yàlla bu ñu song ci yoonu yàlla bu ñu daw ci yoonu yàlla bu ñu dëgg dëgg waaye boo xam ne naqari na yéefa yi lu ñu dundal na ñëw ko mu ñuul bu ñu dundee bu ñu yëkkati seen alal def ko ci yàlla muy lu néew muy bari dugub soo ko aw xul muy yeebu dundal lu dundal na ñëw dina di ñëw ba nga xamee wax na loolu yéen bi sallallahu alayhi wa sallam dal di ñëw nee na ñu jëgal nekk na bu dañ waa tekk ko tam dawal jëm ci kaw mu naan mu ne waaye waaja taxaw ca kaw montaan boo baaxam jiitu na ci nee ba mu agsee yéen ma sonal aw ma lu moom ma suñu ko jox ko ngir dëgg ma daal di waaxu wuti jàkka la parce que yéen bi sallallahu alayhi wa sallam mu toog mu ne nag mu agsee fekk mu dëkk ba ndax daana dafa xamoon ne sa xarkaraw waxtu mu jógee day mel ne dag yëpp weer bi mu ne ko mu dëgg mu ne ne dëggal ci ne bis bu gën ci mu jaar ci yow dama ci gën a wéy mooy tey saa yi daal di gën a delloo ko ci dëgg lu mu nekk nekk saa bu dinaa di ñaan day mel ne wax dëgg rek mu ne dëgg boobu mu kay kaw laa xamante ak yàlla ci saa yow ñu ne dëgg moom wax day lu dëgg day wax ko ci dëgg مالك بن خمسة شاعر لون بالبيع وكل شيء خمسة كل دين الرسول صلى الله عليه وسلم شيء كان غني من شاعر لون كان جاد لكن كان خريبا من الخط بقى اللي في المول سبب خمسة يوم كان خريب ولا جد مثل سيدنا عثمان بن عفان صلى الله عليه وسلم في دينه رجل سيدنا عثمان شيء سوى الحديبية بعد دينه في الحديبية ولكن صلى الله عليه وسلم ndaw mu dikk ñoom ni jox ko jëloon ba mu demee rek waree jëloon la faraxal waale bu mu dikkee dañ demee ci laaj la waaye teew bi nga xamee ne yéefar yi da ngeen ñoom ne juróom fukki loolu da ngeen fexe ba bu ngeen demee bu ngeen leen tolloo ngeen fexe ba toqal ci ay nit indi ñu ci ñuy ànd ak Mouhamed kenn ñu rey ko wala ñaar ñu rey ko wala ñett wala ñu mën a toll ba ñu leen seen bopp par xaar yu jàpp leen yow ci la dañ leen jégal waaye ñu jégal ñoom dañu ne ko jàpp mu ngi la dem du la ñu yéeme ci xot bi nga xamee ne dama leen dama leen doon xaaj ko daw kan mun ko wam daanu def doo ak ñu ñëpp ak ak ñoo yëkkati mais teewul bu nga xamee ne neen ko ñaan yàlla leen dafa ne déedéet mais mais suñu borom yëm ñu ma ngir may yóbbu la ngay ñaane kenn lu def ma yëm ñu may yëmba leen ci biir biir suñu borom jéggal leen dañoo xam rek ba ñu yëm ci jéggal leen rek waaye mu ñaanal ci jéggal yàlla di jikko yoo xam ne bokk na ci li yàlla yi wala yi ñëpp war ko ci yàlla ñu ci defal rek te boobu doy na waar loolu xale xam nga ñu gën a di ko doy waar kon xale xam nga waxoon naa ne wax ko ci ñëpp ak jiir arab yi ak mboolem ñu yëru fekk na jiir ba mu koy dañoo dañoo defoon xaaxat ak yéen ci biir dañoo sant wala bu ñu xeex dañ ne dañoo su ne xëy ñu wax benn yow la mu ngi dafa defaan daal di sakk si ki nga xam ne mooy kilifa boobu koy la ba mu fëggee dundam mu la xam ne xooy la mu ne ko yow jëmm ju bari gaaf nga du yow yow mu ne mu jël bu dina ko bu mu rek mu la ko mu wax lépp lu xamal li ko mu diido mu ne ko lay daal yow da ngaa sis rek bu mu ne dana bokk ak dama nga am nga naw ko fi yow la tax mu ko diido bu mu dikkee ko léegi daal mboolem ñuy xeetu arab am na xeetu yow ba mu def ñun ñëpp ànd nañ ci léegi dañuy wax ñu saagaagal moo nekk nopp ci moom léegi nag yow donc boo bañee bu noppee itam daal nga xeetu moom moom moom moom moom moom nga xam ne am naa nga d' accord léegi nag léegi su loolu leen def xalaat ne mboolem ñuy xeetu yow mboolem ñuy xeetu arab ànd bi ñoo koy din di dama koy sax ni mu àndaloon sax woon nañ ko léegi dañu la àndal ñu mu tiit di ko jullit ñi xam ne xel ñoom ñu ngi leen di war nañ la nekk ñoom ñoom ñoo la di lekk sa maam Farid yi mooy xamal yàlla bi salaatu la loo xam ne arab yi xamul ko woon moo di nekk Madina gannaaw ay xeer yi kenn mënu leen ñëw bu fekkee bu nekk ba mu def benn rek gisee rek ci maam mu ne def kon moo xam ne nii day sukki ca bëgg wala sukki ca bëgg wala xóot yaatu ba kenn du ko mën a jël xam nga ne bu ñu koy def liggéey bu nekkee nekk la naafeq yi nga xam ne bëgg ñu woon ndugul am benn fursa ci yonent bi beddi ko ko wala ñu ànd ak ñu koy xeex daal di tàmbali ñu di daw ñu di ko tàmb naan ko suñu kër amul dara ko aar te yëpp yéen koy jaar dañoo bëgg dañoo jël ñu ñu dal su ko def jullit bi nag kenn koy xam ne kii moom am na lu mun nekk nga tàmb ko bu la nee ñu doon ñu daal di génn léegi ñoom ñu néew jaaxle nañu mbooleem adduna ñëpp ay noon la ñoo xam ne jóg nañu dajaloo fas yéene bala ñoo dal rek kenn ñu def ci ñoom ولا تنجح إن جاءكم من فوق ما يقال منكم وإن جاءت الأبطال ضيعت الغروب الأناجر ويؤمنون بالله هنا هنا تكفيهم منه وجد من رسالة خالدا وجعل الناس كما يجب أن يكون المرض أو أن لا يرجو إلا هو وقال قال من يأتي بلا ما قبل أن تفجعوا وقال المؤمنون بأن يقول إنه هو ابن عوام وما لي يدعوكم من دون إلا أسرارا ويقول علم من أكتاب أكون في لا أتوا وما طلبت الجاه إلا يجيب وقد كانوا أعد الله من فوق يوم الشباب وقال أعد الله يسرا بأس الله يحمل بل خمينة يبني جنبه من تقوى jëmaleen ci seen jëmaleen ci nag bu nekk wër leen ba nga xam ne xol yi ndax ci tëb na ba àgg ci tuut yi ñu daal di sa jokk ci yàlla ay wor dañu naan yàlla ko yonent mu ci doon ñu woon dul ay wor nga xam ne ñu ngi daal di daw moom naa fekk yi di leen fëcc ñu nekk ci liggéey bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di liggéey ci jëmbam ak ci loxo yëpp di di encouragé saaba yi soxla ay kéemtaan yu bari xel mu saw soxla ñu ko nekk di waaye bi nga xamee ne ñoom ñu amul yem foofu leen ak seen dikk dal di gis kan ni mu dem ne di lay arab xam ko nit dana ko gis mënu ñoo jéggi kan ni mën ñu ko tëb ñoom ñëpp dañu daal di campé ñu campé ñu ne léegi daal mën ci ñu di set di ko jënd ñële waaye di set di ko jënd ñële léeg-léeg am yéefa boo xam ne dafa fexe ba dëkk ci jamono joojee rek la amoon na ak dugub bi ñu ma nekk yoon sànq am na mbooloo ñu war ba gis ko xaw a xam ñu soxla seen ñaari góor ñu tëpp baax si teel leen ak ñu dalalee ba xeex ak ñoom ba rey leen ñu ne fekk léeg-léeg kenn bët jullit ñëre leen jullit ñi tam suñu daje di seenante yéefar yi di ñu néew yéefar yi duñu bari jigéen ñi ñoom tata yi nga xam ne moo amoon ci ñoom ñu fegal leen lu ci nekk nekk ci tata di seen ba am ñu la lay dogal ñu wax mu ay bokkoon ci biir bari ko wax ba xam ba ci biir tay ba ci biir dëgg boobu ba mu dikkee yéen bi sax man de tour naa sama ay mbokk ak jiw gi ma bokk yëpp ñu xam ci dara dama bëgg nga sant man lu ma mën a dundalee ci am mu ne benn benn waay rek nga am nga bàttal waaye naka fexe fexe ceqale rek mu leen ceqale xol yi daal di am mu ay daal di am xalaatu dal dem ca biir tay ba mu leen yéen day xam ngeen ne maa ngi bokk ci yéen ñu yàgg ci yéen laa ñu ci leen a dugg ci lu mu dugg nekk dañ leen a dugg nit laa biir ndax waa koy si muy def dafa tasaan muy yàgg di yàgg ñoom bu ñoom benn furte ci Mouhamed dañuy yàgg te ñoom ñu ñoom leen mënu leen a dégg Mouhamed léegi nag pour ngeen fexe ba téye leen ba mu xeex ba jeexal leen ñu soog a dem ndax ñeen ngeen mënoon ci ëllëg da ngeen leen di laaj fukk téeméeri góor wala fukk ñoo xam ne dañu nekk tey la mu téye leen bu bu waree ba gërëm ñu ñu ay leen bu waree duñu dal bu leen ànd ak ñoom xeex mukk te jox ñu leen ak tey la daal di koy jógee dañ ñu koy ñu wax koy si yéen day xam ngeen ne ni ma demee yéen ba ma yéen a bëgg a digal leer waaye dañ ko koy tamit xam nañ ne bu ngeen demee bis bu xam ne mu ngi leen ci moo xam ne doo ko dellu gannaaw ah ñoom bi ma jëf moo nekk dañu leen doy daañu leen laaj léegi juróom yi moom balaa ñu leen laaj ay góor ngir tayle ngir xam ne da ngeen toog def seen ànd ak ñoom ba fekk liggéey waaye bu ngeen leen joxee da ngeen leen koy neexal ko moom ndax d'accord ngeen moom mu ne moom ñu dem jox ñu dem joxal xam wax ne loolu ah ci saa si ba bi ba la koy di yónnee ci presse ne leen léegi du mën a ànd ak yéen di xeex ak moom it lu ngeen joxul tayle bu ngeen leen laaj fukki góor ñoo xam ne dañ leen di bàyyi ci ñun ba ngeen ànd ak ñun sax bakkat bi jeex mu mel noonu ñu ne ah lu ngay waxoon nga ñu ne la ñu bëri daal di gis ne ne leen bu ñu leen def dara xam nañ ne sax lépp waaye bu ñu ci leen dem donc ñu am xaritam bi man bi ñu yónnee ci ñoom laaj leen maanaam ni mu tay moom la ñuy wax ne waaye bi ñu ay waxoon nga ñu daal di ci yóbbu la kàtt yoo ñu ne leen dañu ànd ak yéen léegi daal wax koy ba dañ ñoo war bu ñu leen def kenn ñu di war a di ko neexale bu ñu ñu leen toog rek bu ñu toogee rek borom dem indi la leen dimbale muy fekk bu nekk ci dafay wax am na ndaw loo xam ne ci limal muy daaneel seen i ko gis di laaj tànn yi kenn mënu la jóg moom nag ci nekk pour pour kanam ndax sedd bu nekk de ak ngelaw li génn réew am na sufiyaan ñu ko joxoon ne mbir mi it nag kenn ku nekk na nga xam ku dem ak yow ba xam kan ndax aw rek mën na dugg suñu biir ba tey bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ana ku ñëw mën nga ñu ko mu ceexali ma mbirum xoray bi te gannaaw Allah bi kenn demul ba ki mu seet boo woo ko nee na sa limaa ban mu ne ma danaa la war loolu dara ànd ak man ca àjjal bu ko xamee seet bi Abu Sufyaan wax loolu mu dugg na ci seen biir dégg wax seen waxtaan mu daal di ki mu doon jàngale daan na ko ci sëyal la dana yaay tam ndax bëgg ñu xam ne mu ne def ci jom la moom Abu Sufyaan daal di jóg ne leen daañu ko ñu ma ñoon ci jur dee ñu ñu ñëw ñu ñëw ñu ñu leen sedd bu nekk na koy sa war nañu daf na ñu léegi kenn ku nekk ñu la ko do war ko dina ko dem dañu dina daal di war do ñu dem ñu daal di dem su mo man daal di xamal ne julli ne julli ne dañu yoonati tey bu nga xamee ne jàppoon nañu ba amuñu menn pexe dara dëcc ñu leen ñu ñëw fekk leen fa nekk rey leen suñu borom dimbalee dañu leen yeneen dimbale bi bari na lu leen dimbale léegi nag yàlla dogal fekk na boobu waa adduna bi waa xundaa yi nga xam ne dañoo defal muwaahada ak yonent bi benn bëkkrin def muwaahada ak waa koy bi fekk bokkoon nañu topp dañ ci ñëwoon nekk kenn ci ñoom du xeex ak kenn ku kii lii ba nga xam ne benn bëkkrin dal na ci xundaa ba tool ñun ba rëy ñun dañu làq ci ci kaaba gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di xam ne koy ci léegi xëpp nañu loo xam ne moom la ñu déggante woon léegi xeex ak ñoom dagan na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di xam ne léegi tey xeex ak koy ci na def te ñëw na def doole léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooloom bari na ba nga xam ne ko ñu ci koy ci mu daal di jóg nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajale mbooloom ko ci sonn parce que léegi nag ne day nokkat léegi nokka jël ci nokka nag nok ko daal di koy boole Medina ak yeneen réew yi arab yi nga xam ne nag yeneen ngi liggéey waaw nag koy dégg loolu daal di jaaxle bu mu déggee loolu mu daal di génn ñoom itam mu leen dajeeg moom waxtaan ak moom ah Abu Sufyaan ibn Xaaris nga xam ne doom bàyyi yonent bi la bon no am na Abu Xaar Abu Sufyaan Xaaris mi ko jur ba koy Abu Abu Sufyaan ibn Xamre Abu Sufyaan ibn Xaaris la ndax bi mu kenn dafa jur dama ci biir dama xas ñeeloo bu mu jógee gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na bu dee lu mën a xam ne moo jóge woon ca Makka ci bi nga xam ne dafay ëmb ci tawar Makka ñëw wuñu su mu ko waxante gannaaw bichri la bu mu dikkee gis safar yi taal yi nga xam ne ñi ànd ak yonent bi moom la mu bare bare bare bare mu montagne yi mu lii dafa xam ne bare na lool mu daal ni Mouhamed day kenn mënu ko jekku léegi na mu seet na mu jàmmoon moom nga xam ne Abdaat ibn Abi Mutalib nga xam ne baay tax na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na seet ñu xaalis moomu bu mu àggee ci yonent bi am na doomam day dem ci Umu Haani ne ko bopp ñu ne yonent bi Umu Haani ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa baay tax ak sa doomu baay ñu lay nuyu mu ne sama baay tax boobu lay la mu ma def ca Makka li mu xam ngeen ko sama doomu baay tax boobu itam la mu wax dégg naa ko ngeen dégg ko soxla ko réew ah ñu waa ab abbas xamal ko ne ko moom dafa ñëw ngir tuub ñu di koy yonent bi jéggal leen ñu daal di tuub mu def nag abou sufyan ibn xarbin ma ànd ak budey la doom ñamit ñoom lu xew bi ñu dajee abbas abbas ne ko léegi gis nga li xewoon mu xam ne day kenn ko def mu ñu tuub ñu tuubal nga mucc mu ne ko léegi ma bëgg moom yëpp am nag mu toog ma toog ma waxtaan ak moom abbas ne ko abou sufyan léegi day war nga xam ne moom nag yonent la parce que nag yonent gi mu doon moom yàlla daf koo jural ba mu leer ndax am na ñaat moom ba mu demee Éthiopie ca na gàddaayu gàddaayu ñaari ga la mu wax ak Najaasi muy booba foofale tuuro noonu ndax leer na ko ne moom ak yonent la dafa xalaat fi ñu jaar ak moom képp ak mu ngeen di jógee ak mu mu demee mu lay ne léegi tuur na fas na yéene fekk yoon bi bu Madina fekk xaalis bu lay jëm moom itam moo jógee Makka fekk lu mbir mi mu demee daal xolam daal di leer mu wër ne daal yonent la bu la dee amoon ñaar lan ñu wax xaalis ne ko ñu xaalis ne ko ñu nga am lu xew mu ne ko mu leer mu ne ko waaye yonent la de man day damay tudd man lay ñëw am na ñu ko dama jëloon ma xamal ñu ma la tudd ñu ànd ak ñu noo ma xam ne itam noo ma noo gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ne Abu Sufyan ko amul xel la jaaxal na ko mu teel ba tey tuub te xam na ne dama tuub ak jëf ji mu def moom ak soxnaam si wax hind bi ca Uhud ñu xam ne ne hind bi noonu la def bi ñu waree bi wax ci rey Seydina Hamza ak ni mu ko def nopp yi Seydina Hamza ni mu déggee xóote ay kinam ni mu xóote ba kanam ni mu fàtte diinam ak ni mu génnee rey Seydina Hamza ba ñu ko napp loolu lépp fekk na moom ak Abu Sufyaan bi nga xam ne mooy jëkkëram sallallahu alayhi wa sallam gis na ko xam ne bu ñu suñu waaye ba léegi rek jeex na Abu Sufyaan ñu ne ñu ubbee Makka ci kawam ñu ne déedéet ba nga xam ne dikk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Sufyaan ni ko léegi yow mbokk mu kese kenn nga gis ku kese ne yow ku mën a jébbale la ku bari yu mën la ku mën a jox ku mbokk la mu ne ko waa ba tey ndax mu ne guma di yonent bi yàlla laa mu ne ko am li nga yonent bi ba tey am na dikk ci sama xol xalaat ni ko wala yow Abu Sufyaan tuubal dee ci dee rek loolu Abu Sufyaan daal di xalaat moom delloo ci xelam xam ne fi mu jaar daal ak Muhammad ba ci mujj te wóor na ko ni mbir day taxaw rek li nga xam ne noonu la yahud yi daan wax ak bi nga xam ne noonu la nasaraan yi doon wax ak majaas yi li nga xam ne yéen yëpp gis na ko ci moom mu daal ci solo yéen bi sallallahu alayhi wa sallam daal di fas ay raay jox ko ba ñu xaalis ci bëri wax ne ay yéen may taxaw kenn ci nekk wala buntu bi ngay duggee makka amul ci ñoom kenn koo xam ne dañu war benn xeex mu ngi xeex bu wér mu daje xeex bu ñëw waaye teewul mu soxla xeex ba bu ñu dugg makka rek fekk na ah abbas ñëwoon yonent bi abu sufyan day ku bëgg daraja la ñëw ko dogal dara loo xam ne dañ ko liggéeyoo dañ ko sallallahu alayhi wa sallam ne bu ñu duggee makka képp ku dugg xeex rek musu la daañu la bàyyi kenn mu rek képp ku dugg kër abu sufyan kenn mu rek képp ku dugg sa kër képp sa kenn mu rek abu sufyan dañ ci tere loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne mu ngi xam naa koy duggee na makka mu ak si makka daal di dugg la kaaba ba daal di toog ci mbettam ni gannaaw bi nga xamee ne mu liggéey ci biir kaaba bi fekk na dese yi nga xam ne waa makka dessiné woon nañ ko yooyu dessiné muy ibrahima dessiné ay malaayika mu xalul lépp dañ fa ko mu daaneel xeet yi ci nekkoon yépp daal di toog nag waa makka toog mu ne yéen waa makka lu ngeen defe ne lu ngeen toog ne moom laay def mu ne quoi mbokk mu tedd ko doomu mbokk mu tedd ko li ngeen ngay def mu ne in xamu ko am tubu tuwaqa daal di tàmm leen di leen jàngal daal di woo jigéen ñi daal di daal di jàng yaaye nabiyu ida jaaka almuminat muhajiratin fansaxiduhunna allahu alam bi imanihinna fain alimtumuhunna muminat falatarjiuna ila alkufari la huna xillu walam yaxillu lahunna ولكن من تقول جمال من ذلك من وجودهن ضعفت ولا يزقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن. ليه بلين بلين تك هند dafa abu sufyan ne ko man kat danaa tàcc alal abu sufyan ndax ku may la maanaam jëkkëram yonent bi ne ko wax baax na yonent bi yow ñu ne bu ngeen mooy yàlla mu ne ko ah boo gën a mooy yàlla mu ne ni wala yàq suñu aw yaada mu ne du ngeen rey seeni doom mu ne ko ñu ko suñu doom ñoo ñaaw yéen a leen rey ca mbagal sax wax nga ko ci ñaaw ma rey ko jaaxaan ñettoo nag li nga xam ne mooy li ñuy tuddee nit koo xam ne balay reyee am lu dal nit boo xam ne noonu la loolu ci wax ne seen doom yow mi leen rey yi leen yow nga xam ne yaa ngi say ànd mooy ñu leen rey ñoo ma dal di ree loolu bi sallallahu alayhi wa sallam dal di waaj nag léegi ñu ne jëm xonin xonin sa fi yéen bi dajale bi léegi daanaka ji aar bi ñu ci gën a bari sa fi def na fee waaw taay def na fee ñoom tuuma bu ñu te ñu war a dajale ñu tuuma lool te nekk ci suuf ma dal yéen bi ñëpp ànd ak moom mu dajale lim boo xam ne yonent bi mënul ñëw dajale ñu toll noonu mukk ak gànnaay yu toll noonu mbooloo mu toll noonu ba ci ñaaw bi ba tam ne tey day kenn du mu mokk ngir néew su borom di ko woon ne yéen jullit ñi li ngeen di ñafe ñeneen mu mën yàlla bu ngeen gëm ak ngir wala ngeen dina waaye du mbooloo bëgg boo woon loolu da ko fi wax Malik ibn Awf xale la bu toll ci fanweeri at wax ba ne ñu dajale ñu jox ko seen ci seet mu war a jiite xale bi bu ñu wax góor bu si mati mag loolu mu am téeméeri at loolu kat la mu rëy xel mu ne ko na ngay jiitoo moom Malik ibn Awf daal di organisé xale bu kenn mu gën a gis daal di ne mu ngeen jiite seeni alal muy jur gi muy jigéen bi muy xale yi ndax bañ kenn daw ba mu dikkee góor bu si mati ne ko loolu di xel delloo leen ngeen dikkee waaye Malik bañ ah daañu ànd ak nag moom la ñu joxoon bopp mu daal di dajale ci ay soppikat yoo xam ne kenn xamul ko toll nëbb leen nag ci yoon yoon bi sallallahu alayhi wa sallam di nga aar ba xam ne xunti nga xam ne bi gën a ñaari montaane ko fépp boo xam ne yoon bi sallallahu alayhi wa sallam génn na ak mbon ba musa bi fenn ñu jëlee la jóge makka di kër ba jum ko yeneen waxtu nga xam ne ñu ngi bokkoon ci diggante ñaari bët mi Malik ibn Awf daal di def soppikat yi soppi daal di mel ne njëriñ loolu naaw dal ci ko saxaaba yi ñu daal di wàññi seen laam sax dal ne ko kat daal di daw ñu daw ñu àndoon ak ñoom te ñëwoon nañ Mouhamad ndax seen mbir loolu ñu daal di ndokk am ku leen bu ñu ak mukk te ak ñu ci déggee ñu leen ñaan jaloon moom it yokk na tey moom it salaa sallam di déglu lépp bu ñuy daw nag moom it salaa sallam mu ngi taxaw ak ku beneen ku leen bu néew mu daal di yàlla Abu Sufyaan ibnu Xaaris ku amoon baat la mu nekk di baaxoon ca kër ñeen ñu jaayoon ci yoon ak yaram ci bitti bay ak rudwaa te karam jaar gi ñu wax sama kanam bërëb bu ngeen def ñeen ñi nga xam ne yéen a xaroon bare ñoom ca kaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ana nabi la tabit man maa yonente bi maa ngi nii de aw bisam maa ngi nii de ma buuma dara bu dama moo ko abu sufyaan bu mu yuuxoo nga xam ne ko amoon baat la baatam aw ci xul yi ak ci tuur yi saxaaba yi daal di wënnu ko rek seen doom daal di leen di jiini mu dellu fee song mel ñu song dal di jàpp maat ibnu aw dal di dajale wax yëpp rey leen ñooñu dal di dal di tàllal seen loxo li ko di dara boobu nga ñu jàpp ci ñoom loolu xamul seen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog xam naa ba mu yedd leen de bu nga xamee ne dem dem de saa yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem ko waaye bi yonente bi delloo mu teg ci ay sam jël ci ak yéene ubbi saa yi bi mu dikkee saa yi nekk ay tata yoo xam ne yu doy waar la bi mu dikkee ñoom ñëpp ñu daal di daje dugg ci bi yàgg yàgg yàlla ci saa ba benn mu xëy na man de man jéem jiw mu jox ma benn bopp boo xam ne daxa ci nekk duñ ko indee ba teg ci cent grammes génn sepp daal di koy jox tuur ko ci naaw ba xam ne ko comme day yaakaar naa ne jënd gi li mu tekki mooy li ma dund ci nii xëy na du soppi parce que nag am na seen soxna soo xam ne dafa ñëw ne yéen ci saa ba sonn mu ne ko mais kaka yi maa ngi bëgg bu la sàggam di nekk ci xanaa bi ak buur sàggam seen soxna takkaay yi amee woon nga jox ko ko ndax mu saaxal ci yëbët yéen ci saa ba ne ko am na loo xamante ne suñu borom digal na mu xakkate yi da nga leen nekk ñoom dina am rek dina am rek di ñëw nekk laaj yoon bi di salaam salaam mi soxna si wax ndax moom rek mu ne ko waaw ah kon nag la suñu borom digal ñu nga li tax ji lu fi def seen dëkk rek dina mel nam dëkk rek di yàgg jeexu waaye biñ ci tegee ab diir rek la am ko ñu xëy nga xam ne moo doon kii bu ñu soom soom soom loolu nag man kay jógee bàyyi jógee ci juróomi at yi ñëw moom ànd ak benn délégation ñu ñëw seet si yonent bi mu yor moom waxtaan ak moom moom na mu tuub bu mu demee yonent bi foofu bu ma demee danaa woote tasaare lislaam ca xeet ba yonent bi ne ko dama ragal mu rey la mu ne ko déedéet ku tedd laa ci ñoom koo xam ne kii ku mu moom la ku mu sant la laa ci ñoom bu mu demee bu mu rek dara daal di ko wuyu ba mu demee woote ba mbooloo mi daje mu taxaw ci kaw montagne woo leen ci lislaam ñu daal di koy fekk fekk yi diggante ko ak xaar yi bàyyi ko waaye teew bi ñu toogee diir waa kaay ci seen bopp jënd si nañu daje mbooloo bari ñëw tuub yoon bi sama la la xam ne woon ne suñ borom da leen ko kaay ci dem kaay ñoom léegi bi nga xamee am na sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne waa àdduna bépp muy moom kenn ànd la kenn da mun a àndee ñaar da mun a àndee ñeent ci nit da mun a xamee ne jóge na Makka dem Madina bu mu dikkee xay bare bu mu xalee xale ak ni ko ni ko dañee li ngeen def ba loolu weesu mu xay xay bare ak xam nga mu daga yëpp ñu dajee nga xam ne léegi atum juróom ñeenteel ak ñu am ci Madina ba xam ne dund na ay lekk dina ko ci buuri àdduna yëpp di leen woo ci islam nga xam ne diggante ba la ay musul yu bari maanaam ay délégation yu jóge ci yeneen réew yu bari ñëw seet si ko nasaraan yi ñëw seet si ko bari ci ñoom ñoo xam ne bu ñu ñëwee bu ñu déggee alquran dañoo jooy dafa déggee ci tout xam ne lii mooy dëgg bu jóge ci yàlla nga xam ne ak moom dañ ko tuddee amu musul maanaam ak ñoom délégation yooyu yooyu bi sallallahu alayhi wa sallam daal di def umra fekk dem umra ji xabaar yi mooy umra ji nga xam ne moom la fayee umra ji waroon umra tawaa nag loolu ko léegi nag ci at mi nga xam ne mooy fukk bu mu amee ñeenti weer ci Madina la daal di dellu nag fas yéene ak moom la tuddee ajjal wala tàggoo ak boobu mu ajee war na kaaba gi xutba xutba bu gudd xamal jullit ñi ne li ma yàlla santoon jot li naa ko képp koo xam ne ci yéen dégg na sama kàddu ku mu jot na ko xamal xaw ma danaa dajee te yéen danaa wax nii wala déet dama daal di xam ne lépp loo xam ne lii su borom suñu borom ne ko aaya ji mu jawaat ci wàcc ayam ak lépp la um diina wa mun tu alaykum ñaama fi wa adid la um lislaama diina mu daal di ne diina ji tàllal naa ko mu mel ne kayit mu weex tàll leer na doomu aadama yi dañoo mel ne saxaar ñu taal ñu mel ne ay lépp lépp ak i sotee ay gunóor di bëgg yéen bëgg saxaar yi ma taxaw amee sama muukaay ak caat di leen xaj ji ngir bañ ñu dugg ci safara safara yi ñu fas yéene dugg ci safara yi mooy ni ma leen leerale lislaam léegi tey jeex na xaw ma danaa dajee teg yéen ak ñii gannaaw ak ñii wala déet daal dellu ko dimbali mu la bu mu toogee ay weer yu néew la toog benn bis amul mooy jub nga xam ne moo ko daan génne ko sa liggéeyam te di ko dugg nga xam ne dañoo xaaj bi mu leen bëgg a def mu yee ko ne ko jubal mu dem damaa war a dem bàq yaa bàq na war a damaa war a bàq ñu ma nekk ñaanal leen muy ñëwee lu mooy neen bu demee ànd ak moom it sallallahu alayhi wa sallam mu dugg biir bàq xarbat dal di ñaanal leen jéggalu leen suñu borom ak day dal di leen xamal ne yéen ñii tëdd fii suñu borom mu tëdd leen ci musiba moo xam dafa mel ni guddi boo xam ne waxtu bi jant bi foofu biir set ñoo leen dafa lim dem kën di musiba moo xam ne ku ca nekk xam na lu ci nekk lan la ci loo nekk ñu ngi ñii dund ñëpp ñu ngi ci biir lënd boobu yéen yàlla musal na leen ci génn ngeen àdduna ànd ak ngëm ak ngëmal yàlla ba mu ci jógee dal di ñaanale ko waa Uhud mais diggante bi mu wax loolu benn mel ne ngelaw loo xam ne dafa mel ne sibur daal di koy dugg ci saat yi ci la ñëpp daal di yokk bokk buy metti daal di ne ko saa ba nga xam ne maanaam campagne yi muy mel ne jaay ci mu mel ne ay màkko ci daw mu daal di wàññi ko mu dikkee daal di dugg ne Sayyidatuna Aïcha mu duggee toog Sayyidatuna Aïcha ne ko man de tant que maa ngi jàmm métti ci bopp mu ne ko déedéet man mii kay maa am métti ci bopp Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di comme moom ñoo ko daan def dox ci diggante ne ko xanaa boo dee ci sama kanam ma xam nga tàmbali ci sama loxo yëkkati la tàmbali sa bàmmee ak sama loxo ñaanal la jébbalu la yàlla dama sant ndax dafa am pexe nag mu ne ko waaw waaw man kay kayaa nga ci man ma xam rek bu ma dee loolu yëpp danga ma ko defal waaye nag lii naa ci bi xam naa bu mu demee rek loolu bëgg naa fàtte dina tax kenn ci sax ne dañ ko indi sama néeg bi mais dina ci sama xel nekk sama xel benn bi daal dama dal di moom diggante boobu mu xaw a fàtte tuuti nekk bi waaye nag lii daal di dellu seet rek mel na ay safar yu ñu koy dóor ci bopp waaye teewul rek ñu dem ci jàkka yi di jiite suñu war a seede itam ci kër soxna yi seede ko benn bis mu nekk ci kër soxna may mu nag mu ci biir jëg gi dayo ba nga xam ne xamatu fu mu nekk mu woo jigéen ñoom ñëpp ñaan leen ne leen dafa bëgg mu soog leen a seede ci nekk yi def naa ayda ñoom ñëpp ak xol bu tàlli bu sedd ñu dal ci dëkk nagal ko loolu yow li sa la war a génn kër may mu ne jëm kër Aïcha mu ne la jóg taxaw amul kàttan ibna adina ak al fadli mu abbas ñu roy ko ci tey ci mbagg la jëram ci tey ci mbaggum càmmoñ mu ngi dox tànk yi rëbb di suuf si ndax na dikk waa gét sayidina Aïcha nee na bi mu agsee ma daal ne ngeen fab juróom ñaari mbuusi wax yu gën a sedd ngeen fab ma ko ndax tàngat yi wàññi ko boo mën a jiite ji jullit ñi ko jàkka dem ñu ngi daal di fab ndox fab benn paan xeer am ko xas ko dig ko ci di ko fab ci ndox mi ba mu jummi loxoom ne doy na daal di jóg góorgóorlu góorgóorlu góorgóorlu boo xam ne def na lépp lu mu am ci kàttan ba lépp kàttanam dal di waaxu ba àgg te jàkkare dal di jiite jullit ñi jullit tisbaar mu ngi jiite jullit tisbaar wàcc ci ñu bëgg toog ci loolu dal ne yéen jullit ñi yéen moo leen damaa lay te koo xam ne kii amee na la jenn xaq ñëwal nga fay ko ba di xam ne kii mat naa wàññi sa cër sama cëram ngi nii ñëwal nga wàññi ko képp koo xam ne mat naa dóor sa yaram ñëwal nga fay ko sama yaram képp koo xam ne amee naa la alal sama li ma amoon ngi nii ñëwal nga xaq ko bala may teqale li ci dem ndax bu jëlee genn naqar wala genn mbañeel wala genn bay xam loolu du ko wóor dina yëpp kenn deful dara kenn du am benn waa di jóg réclamé ñetti dërëm kenn bi sallallahu alayhi wa sallam daal di di jóg ci foofu ndimbar bi dañu waxtaan tuuti waaye daal di xam ne am na jaam boo xam ne suñu borom tànn la na ko diggante àddina ak alaxira mu tànn la ko suñu borom yonent bi Seydina Abu Bakar daal di xam ne bokk na tax muy wax te wàññi bi mu daal di sotti ko yonent bi sama xam daal di ne ah am na ñoo xam ne dañuy ragal teqali ko seen yonent waaye bu ca kii dama fi def rek ak yéen ndax képp ku yàlla dama fi jóge ba ngeen ngeen xam lu yàlla dogal dal jóg dell ba mu dellee ca néeg ba góorgóorlu boobu ngeen góorgóorlu ak njàmbaar gi mu waree daal di koy kongaat mu daanooti li ko gën a tàmm di ànd ak feebar boo xam ne rek xamul lu muy def mu daal di xam morte bu ñu mënoo ko mu may def koy étouffé moo ci yooyu mu daal di koy muri waaye bi nga xamee ne morte na yore takk fan mu daal di ñett ñett ñett ñett ñett ñett ba jóg daal di laaj ndox ci yéene jàpp waaye mu daan ñett yoon xam mu xam li koo xam ne mu ngi dem mu yónnee ci Abou Bakar di yéene ko jiite bi nga xamee ne julli ñu gis nañ ne si naa Abou Bakar taxaw na place yéene bi jiite mu daal di xam ne rek am na loo xam ne léegi moo tax ñoom ñëpp seen mi ñu ko gis genn yoon dinaa war ko jiite toog yonent bi salaa sallam nekk ci ñetti leen benn bi ko alxames saxaaba yéen ko wër daal dina nekk ximli ko daal dina ñu indil daa ak xalima mu bindal leen téere boo xam ne bu fi leen réer mukk sama gannaaw dinaa mën naa yonent yàlla bi daal ma indi bi dañu ko alxuraan ngi nii téere yàlla la kal delloo Abdoulaye Moussa ak ñeneen ñeneen ñu bokk moom xalaat ne déedéet yàlla ngi tawat ñu ko xam ñu du dund waaye dana wax lu nga wax ñu dund bu mu tànk mu wax bu la koy bàyyee mu daal di dellu ci xamoon mel ne koo xam ne dara ñu ko ñu la ngi werante ci kaw kanam bi yàlla ci yéen génn leen ñu daal di génn mu daal di dellu ci métti itam dellu ci métti itam dellu ci métti itam ñu lay rek métti di gën doy waar ànd ak feebar bi di gën doy waar ci gën doy waar benn bi doy bi ci ñaar bu bëgg taxaw ci kanam jullit ñi kàbbal mu seen bunt nekk Seydina Aïcha ubbi ko yàlla nañ xalaat loolu nag ñu ko ñu ñu def rek ak la ci seen biir julli rek rek boo xam ne ci naaw ak dana am na dara ko waxal bu ne yoon dina génn ba di am yaakaar Allah ya sallama ak si ci naaw ko daal di bëgg a dellu gannaaw mu ñu dem yoon bi ñu seen julli ba dina yaa ko di julli daal di toog suuf min ba di ci ne yow si naaw ko naaw ko julli ba àggale julli yàlla nañ sallallahu alayhi wa sallam daal di dellu ci waare waare yi xamal leen nag li nga xam ne moom la yàlla dogal xamal leen rek ne yàlla moom dogal kenn mënu ci dara mu la am ak li nga xam ne moom la ko yàlla santoon ci kaw suuf taxawal ko لم يحب بغير الشيء مدلواتي رك لو بخم نقول قول هو نباتي رك دلو خم نتشار بخم رك لو بخم وهي نبي يمكي صلى الله عليه وسلم يمكي بي الله يم أبجو الجلس من أكرت من الله حتى دلو من قطع لك فاو من تقايم بنا في خلق mu gis ne wàllum ba tey rek moo am divan war nañu yàlla ay xale yi dañu ci boobu nag moo gis ko taatu ñu fiy dem xale bu am ñaar bu jot dañu leen bàyyi foofu moom la jiital waaye tey ci biir bi nga xamee ne dafa la jiital ne ko dañ ci yéene dem xale ji ne yi bi yonent bi tax na mel gi mënatu la dem ci dal jël ci diggante boobu ba yonent bi sama sama def leeral boo xam ne mu tey la ma xam ne mooy kilifa gi yamaana lu sonn naa ñëw sax ci yonent bi mu gisee ak ñu mu man ak yéen ak yéen ñu mu ñu fay ak ñu mu ne ñu mu ne ci ba ak yaa la tax loolu xëy ko ci mu di bëgg a wax ak yéen lettre bi bind yi yaram bi mu def ci leen yow lettre bi mu jóge ci mu tey nga xam ne yéen bi yàlla bu ci moom nga xam ne yéen bi yàlla su borom bi leen xamal ne foofu bi waa koy ci ak waa yoonam ñoo ko bokk koy ci nag bu ñu ne mukk ci bëre bu bu yemoo waaye nañu xam ne yonent la ak yonent la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal dina law ko ni bu fekkoon ne day tuur yoon ni moom mu ci la dana la rey waaye nag dal naa ko tontu dal di tontu ci leetal ne leetal bi muy ci Muhammad ibn Abdullah ibn Abdullah Rasulullah yonent yàlla bi jëm ci mëneel mi nga xam ne mooy kàcc kat bi di ko xamal ne foofu si yàlla ko moom ku ko neex la koy jot di ko xamal ne mucc ki nekk ci ndigal di ko yàlla féetalee dal di tontu leetal boobu dem waaw bi dawee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu loolu taw léegi góor leen bi ngeen gis góor leen loolu tam ñoom tam ci bind kaay ñu dellu seen xeet dañu doon wax yoon day waar yoon wax ah te it na ay sa ñeent bi ñëw ñu teg boppam ñëw kon bu ñu ñëw dara dégg dara wax dama naan naa bi ba crime dugg xana ko ci ñëw dugg yàlla nga fàttal di xool ko ci rek xam ne dafa bëgg a fas fas fas fas la te naa ay daal di fas fas bi ci Abdourahman mu xam ne moom am baax ko tudd ko fas de kat nit dafa yëngu salaat mu sotti fas bi woo xam ne mosu koo fas bam sa rek rek loxo bi mu téyewoon fas bi daal ne la tax noonu fas bi moo ko mu daal di xool asamaan daal ne ci la ko fekk naa laa mën a jàng ci soppi naa àndaale ji di gën a koy soppi naa àndaale ji gën a koy soppi naa àndaale ji gën a koy mu ne daal di jëkk ne boppam diis na lool mu daal di ko seet xam ne nekkatu bi mu daal di koy toog ci benn njëganaay daal di yoo jigéen ñëpp daje ñu soppi seen kanam yi di dagg di soppi seen karaw yi di soppi seen yére yi julli ñëpp daal di dajaloo lépp jàkkale mu ne mel na xar yooyu réer ci li doon waxte muy taw kenn xamul mu dégg yoo yi xam ne waaye mu mel ne mu mukk la yoon mu salaal fa mu jógee ci ñaaw ba moom xel bu leen mu yokk ci ko di soow rek jàpp ñu mu nekk mu ne leen ku ne yonent bi jóge na fi bàyyi yonent bi dana dellu si dafa dee yaay ji boobu nekk ni Moussa di kon bu dellu see naa fekk yi naan deel daal di dagg seen loxo daal di dagg seen i tànk te ñaa ak ñu tiit ba mën a too jóg ñu dem seet si naa mu fekk si dee loolu bu ñu ñëwee daal di xotti mbooloo mi ñu mu génn génn ñu kenn jubal ne seen naa yi jóg ba laaj ñu ko tàngee woon def ay rëbb la mu ni dal jooy ko wax fi ne ko wax dëgg yàlla yàlla seet na ne faat gi la suñu borom bindee moom mën na ko daal di génn li ci jàkka ji nag Omar dëgg moom te naa moom saa yu koy waxee Omar dëgg moom Omar saa yu koy waxee Omar dëgg Omar saa yu koy waxee daal di ko ci dem taxaw fee mbooloo mu bëri daal di ko ci Omar jiw ci la ko mu ne léegi képp ku doon jaamu moom nag xam ne moom la jóge la ku doon jaamu yàlla yàlla day dund tam dee mukk naa ma ñaar bi amu ko ko waxee loolu daal di tare fàttali aaya ji nag inna ko may ko wóor ñu may ko wóor fàttali aaya ji wàccoon ci wa muhammadu illa rasul qad xarabum ak yurul ala inna ka qadra xarabum ala xarabum wa inna qad ala aqbi qad yabur ala xeex la seen jula saa fi nag te ko xaw ba nekkee ci amul ba nga fekk yi yëgle ba si la ne muhammad lay nañ ko ci alayhi sallam ba nga xam ne saaba yi ci bari dañ leen dellu gannaaw amatuñu yaakaar ñu daal di tàllal seen loxo ne ngeen yéen wala jàpp leen wala ñu leen suñu borom yëpp lépp ne Mouhamed yàlla fekk boo xam ne yéen yéen ci jiitu woon loolu wax ju mu dee ñu ko da ngeen doon def woon gannaaw yi daal su ma di doole kenn du sa bopp yàlla day dund ko xaw ma wóor mu dee ko boo am ko waxee leen si naa ma nee dafa mel ne kenn ci mos la jàpp aaya jooju sama tànk yi ma ci maa ko yéen daal di daal jullit ñëpp ànd na yi jëmm ji nga xam ne mooy daal jëmm ci biir lëndami réer di leen tàqale seytaan di leen woo yoon jub saa si texe ko naan loolu lislaam daal di am lu wax problème ñetti problème mu doon kasa moomu doon woote yeneen loolu am si moomu woote yeneen jii xam ne nga xam ne dañu ne asaka bi ñu ko joxe ndax Muhammad rek ko jagoon kon dañu waxoon ne bu ñu waaye ñu ko rafetal xale bi nga xam ne Muhammad waaye doon na ko ak kan mooy toog balaa bi ko jullit ñi di leen tere di leen jiite yooyu nag bokk nekk na ci yooyu yi ba nga xaatim na ñoom seen problème bi gën a mag mooy waaye dañu yonent bi salaa sallam mu badee ci kaw Ali ibn Abi Talib ak ak Fadl ibn Abbas ak Qutam ñi nga xam ne ñoo di ay mbokk ñu mu gën a jege kon ñu salaa sallam jógee ci ay ne ba di talaata ji ñu toog koy nga xam ne taxaw ñu xalaat nan lañ ko mën a defee mu am jaaxle bu rëy rëy rëy ndax ki nga xam ne si la suñu borom teg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lu dul laa demee mbirum yëpp bu teg bëtam ci sama awra bu dul yàlla takk naa yërëm ñu ne nañ koy sang yàlla daal leen di roor ngëm leen ci saasi ñu daal di dégg baax bu naan yeneen bi yàlla bi ngeen ko sang ci kaw ay yéen te kenn sañ a benn yéen ñoom ci dajee ndox mi te naa leen dig ko te yëgoo Allah ak xam ci tax ko ko dee di ko tan di won ko di soxlaan tax ko ko leen jox ni ba ñu soxal mbir moomu ñu ngi leen ci talaata ji ñu leen koy julee góor ñëpp ñu ko julee kenn jiitewul kenn ku ñëw julee ba góor ñi aar bi jigéen ñi ñëw kenn ku nekk julee kenn kenn dem xale yi ñëw julee kenn ku nekk ñu dem ko ci talaata ji fekk ne waa aw ak xam rek ak muhajiroon yi nga xam ne ñoo jóge woon Makka ñenn ñi ci nekk jàpp nañ ne ñoom day ki nga xam ne mooy mu feeru te duñ ci juróomi ñu di leen tere ci ñoom la war a jóge ñu dem ci benn mbaar yi ci sàq bi ci bari saa yo bu ko waxee waxee bu mag am na ko jaaxle ndax muhajiroon yi dañu ne ñun day ci waaye bi mu feeru te ci ñun la war a jóge ndax ñun ñoo ko ñëpp sam dëggal ko ko ni ñëpp war dee nga wax suñu kër suñu lépp sàkk ci kaw sori waaye nag ñu dee ne nun kay su ko defee suñu laa jigéen ndax ba ngeen néewee amu leen kàttan amu leen doole damaa dama yëpp weddi leen noo leen gëm dimbali leen taxaw leen da ngeen xeex ba islam taxaw coow na gàññe ndaw ay di ñëw amal sidna Omar ne ko mbir mu taxaw ndax islam nga bëgg a teqali ko sidna Omar xel ñëw ak saabu mu aat ak saabu saabu mu baa dañu ñaar ñoo ko nekk kii mooy kii dafa aw kii mooy kii dafa rek mooy ñaari kii dafa arab ki nga xam ne ñoo nekk ci lay ñu dem ba ne saabu mu aat ñu ne saabu mu aat sax fekku ko saabu mu baa rek waaye booba dafa tawatoon sax mu ci bàyyi xëy si saabu moom nga xam ne moom la sëy naa ali faram la naan juróom ñetti mu xew si naa war a ñëwee ñëwoon nga bi yoon xew moo de mu xaar yoon yi ñëw ànd ak yàlla ni ci jiite jiite ci ci la bokk waaw nga xam rek nga dem di lool ñu dem ba waxante ba dem yi tàng ba am ku ne ci biir mu xaar yoon saa yi li ma waxee am wala ma joxati mbir mi delloo ko nam mewoon ci naa woo ne ko kon yàlla rey la mu ne ko loolu lay rey Omar daal di dellu ne Abu Bakar ñëwal mbir yi am mu doy waar loolu lépp sallallahu alayhi wa sallam denc bi ko ñaar bu ko daal wax baax ci ndax bu ñu jógee ay mbokk rek ñoo ko ñoo léegi ñoom ñu seet ñoom ñoo ko ak seen mais dem ñoo tuuti wax leen arab yi bu ñu topp kenn ku bokk ci xore yi yéen xam ngeen ko sax xore yi nekk jëpp ñoo amee kaaba gi ñoo amee néegu yàlla bi ci la nit ñi jaamu ci yàlla nit ñi ca kaw la ñuy teg ñoo amee ca xaaya ak si daanaka ñoo amee seen saa ñu daal xam ne xel ñu wax dëgg loolu itam sallallahu alayhi wa sallam saxal na ko ba ci mu gis jamono ba bi adduna bi tasaaroo nii waa koy ci rek ñoo xam nekk amuñ ñoo ñëw kon loolu tey tàng na ba am ñu ne muhajir yi dañuy am kilifa ansaar am kilifa ñu loolu ñu nekk nga xam ne ci naam ko wax na ne leen mun na umaraaw yéen a ubaraaw bi yéen a suñu jaaw yàlla def ñu xam ne am bu ko wax na loolu daal nga leen def kon mu daal ci ñu jaraa ñu ni ànd mu jaraa xamal nga xatal nga yëg kenn ku leen ci neex mu jaayante moom. Omar ne ko amul kenn ci jullit ñu frère jiitu sànni fa loxo mu jaayante yow ginnaaw bu ko sànni loxom ginnaaw nga jaayante moom ginnaaw bu ko sànni mu jaraat jaayante moom ñoom ñett ñëpp ñu ngi bokk ci fukk ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg ajjana ñu ne woon ñu njëkk rek ci benn jotaay ci ajjana wóor na ñu Abu Bakar Omar Ousmane Ali Talha Zubair Saad ibn Abi Waqas Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ak Abdurrahman ibn Awf ñooñu bi nga xamee ne jaayante nañu waa aw sa xasraj ñaari jiir la ñoo nekkoon ci Madina di wujje waa xasraj ñoo gën a néew aw waaye dañ daan xëccoo teraanga naka jëpp ñu daal di xam ne bu ci amee jenn giir am na ñu tàmbalee jaayante ci ahal aw ci waa aw te bu waa aw bu ñu njëkkee jaayante mbir mi sotti daañu leen xorale waa xasraj ñu daal di jiitu abu ubaat dina abu ubaat mi nga xam ne ak saabi dina abu ubaat mi nga xam ne moom lañu waa lansaar bu góor a def muy kilifa xamu taw tan ànd ak doom ci waxee si saa ñu xaw koo dëgg ak kat muy jaayal doom jaayal doom si naa liñ fekkiw ko yoo xam ne moom yàlla dafa am bu fàttee loolu ñu dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sidna alin ak abbas ak al fadl ak safran dafa ñu soppi mbiram ba mu àgg ak sidna abu bakar nag toog sidna alin demul jaayante moom ndax dafa def taawil sidna alin mu bokk ci ahlul bayt ahlul bayt mooy ñi nga xam ne muy Alioune muy Fatima muy Alxasan muy Alxuseenu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na malaan wërale leen koo boppam ne suñu borom ñii ñooy sama njaboot suñu borom sellal leen suñu borom laabal leen ba alquran jooju wàcc inama yuridu llahu li yudhhibakum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathiran wa yadkhuluna fi sabilillahi min ajlihi ahlul bayt rasul sallallahu alayhi wa sallam di ñu suñu borom sellal ñu suñu borom teral ñuy sangi bindee yi ba ci seeni sët di ci seeni sëtaat Salman Farisi mi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon Salman min ahli bayti ci bi ñu dee te ca gafam xandax ma loolu sax ne Salman ci noonu la bokk muhajir yi ne ci noonu la bokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Salman min ahli bayti Salman moomu war naa yu boole nañ ko ci ahli bayti ahli bayti képp koo xam ne sayyidatuna Fatima mooy sa yaay nga sa too ci ba la adduna tukki ñooy sharafaaw yi ñoom ñooy ahli bayti ahli bayti suñu borom sellal ne leen laabal ne leen laab boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg na ci kaaba gi ne amul jëmm jëmm joo xam ne dagal na ci yow nga am cangaaya jaanga dugg ci jàkka bi pour man ak Alioune Alioune dafa bokk ci suñu béy waaye nag bu fekkee ne ngëneel la li nga xam ne moom la jigéen ñi sax ko mooy tawxid gannaaw bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee sidna Abu Bakar Siddiq mooy ci gën ci mbindee yi sidna Omar ca topp sidna Ousmane ca topp sidna Alioune ca topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wane na ko ba tay ci li nga xam ne saaba yi dañ daan julli ci jàkka ji ci jàkka Madina dañu daan tàkk dama ci nekk foqatal boo xam ne moom lay séeree dëkkal léeg-léeg xam lu fa xew yàlla nabi sallallahu alayhi wa sallam ne subbu kulla waxatin fi masjidi illa waxat abi bakrin bépp volontaire bu nekk jàkka ji fakk leen bul bu abi bakrin mu doon ne kullu taajirin taajirin illa aba bakrin siddiq képp kuy jaay ak jënd am nga ci ci ñaata ba nga ci abu bakar nee na abu bakar ci boppam li ma ko amee ci teraanga jumma ji kenn def ko bu fekkoon ne danaa tànn benn xarit abu bakar laa def xarit waaye seen waa ji de yàlla rek ay xaritam mu ngi doon jënd yàlla nabi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom bañ na ko ba xam ne bi mu lay rañaanee léegi ñu yàlla bi mu demee ba xamulatul fotsi nga xam ne bind ni lépp lu yàlla bind ba xam ne xam ne sa bis suñu borom rek doomu aadama ji mu doon wéet ne wéetaay boo xam ne amul tiit te suñu borom dara xolam dafa dégg baax bu mel ne baax Abu Bakar ni ko xit yaa moom indi rabata risali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam junj na ba tay ne Abu Bakar mooy jiit mooy keram ba nga xamee ne dafa war a ku ko wuutu ci tawatam ji jiite jullit ñi dina ay def ne ko abu bakar day ku wax xol la bu taxawee sa taxawaay kenn ci baaxam ndax jooy ne ñu kenn wax ñu woo Omar ndax moom ku am baax la mu ne ko inna kunna sawahib yusuf mu abu bakar yi sàddi di ñaati yéen nit yi fa alayhi salaam ñu sayyidina yusuf wax ko loolu ci loolu la yéen jigéen nit yi fa maanaam da ngeen bëgg a da ngeen di seet neex loolu ci ñu abu bakar jiite jullit yëpp bokk na ci tegtal yi ñuy tegtaloo jiital Abu Bakar muy xarit bi njëkk ci yonent bi tànn gi mu ko tànn mu doy ko ci diine jullit ñi mu ne gannaaw yonent bi doyoo na suñu diine la ko doyoo suñu àddina mu xam ko mu fàttu ba tax na vraiment yi lan bëgg doyaa biñ ko laajee diggante ahlul bayti ak ñeneen ñëpp ci saaba yi ci dem mu ne boobu Abu Bakar ñëwoon ak Omar ak Ousmane ak Ali ñu sàpp ci même benn aajo aajo si naa leen laay njëkk a faj ñu leen lim amee dee ak yonente bi sax ñu ndox ci am béy waaye ma fas ne ali moo gën aw bakar ñu wàññi sama rayante na diggante asamaan si sama ko gënal ba tey mel noonu def na ci diggante werante yi nit ñi werante ci ñàkk xam dañu naan diggante naa wali ak chérif ci ñàkk xam na dafa amul sekkale kon mu ne la shérif ak gëm wàllu yi la te mu ne wàllu yi la gëm shérif ndax kenn ku ci nekk dafa am lu la yàlla mel shérif moo ëpp waa ma ci lislaam képp koo xam ne shérif la ku ko xam ba noppi ne kii ku bon lay yoon yar naa shérif dafay yoraat yow ko yàlla teral képp ku shérif wóor na ne kuy mucc ci ëllëg la te keneen ku dul shérif lu mu la gën gën a jege yàlla lu mu la gën a xam-xam yàlla lu mu la gën a ëpp man-man ci yàlla lu mu la ëpp sañ-sañ xam nga nga ndax dara fi yàlla tamit sa dara ñu ci moom yow ak yow shérif ndax képp ku jëriñ wóor na la teyam du la mu te lu yàgg yàgg ci dee ba gën a mu boo ko rek ngay mujjee wala nag xarit yàlla yàlla xaritam diggante la bu kenn xajul lu ko soxla ko defal su ko neexoon mu nekk yi bind yëpp mën na ko yëkkati may ko mu ne ay tegtal yu bari dañuy wax mooy bindu arab yi sama benn sëriñ bu ko daan diingat ba ci di ko diingat di ko diingat rek benn bis sëriñ bi bindu bindu mu rafet di ko yóbbu di ko yóbboo te Cheikh Mouhi bi ni nga xam ne dafa xaw a lu mu rek mu raatale ko loxo lu mu mu raatale ko loxo sa kii bi ko bi ko dégg bu nga xamee ne bi ne raatale mu xool mbir lépp yàqu sopp yéene sànni ca ca def ba romb Mouhi bi ni nga xam ne bi mu wax bi mu ñëwee mu daal di koy laaj mbir ma dooraat na nan ñëw sëriñ ba dañu di ko diiwaat di ko diiwaat ba benn mu àgg si mu ngi bi mu ngaa bi nekk sa gépp ak dëgg ka fekk ne bopp bi di xool jëmm ji mu ngi bi mu ngaa bi xalaat bopp ba delloo ci yàlla ci dëgg sa borom dëgg nga dëgg ba dee yow daal la solo tuuti kon nag mu ngi doon lu xool a xool lépp nga laaj ñee la ñu laaj teel a laaj xam-xam la dama dama yi ñu xam ne chefa yi ñu sa ngi bëgg ñu kon su borom nag dafa ñëpp di xaytam ci mbindeef yi nga xam ko doon ñu mu ñëpp ba sababu texe ci jaam xeeti jaam yàlla yi loolu la nëbb yi sababu texe yi ci xeeti may yi kon ci bëgg a mucc na yéene boppam di ko yéene jullit ñëpp beneen bi salaa ko ne kenn ci yéen Thank you. ñun ñu ndax daan ko ci ñoom ak ci ak ci jigéen ji xam nga xam nga ñu jëri di nekk sa bopp benn la ba ëpp ñu taxaw jigéen ci jëri ak su borom faal ñu ngi ci ndax mer ci ko te ba nga xam ne dañ ci nekk dañ dugg sama sax ba nekk ñu ne la ko xiir ñu dem ci dara ci yoon ci yëpp ñu ko tàmbalee ci arab ñi ak ci irfan nga xam ne damaa wax ne moom di jël xarit ñu ci dem ci ci nekk xam nañ ci borom ndax ne ñu ñu ne te am na ci dem ci wax rek ak ko ko Sayyidu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay di jëf di ñu ak ci moom da def fat ci ci yàlla ak da di wax ci jëf ci borom ci borom xamal ko ci xeetu sabar yoo xam ne jàmm ko ko bari loolu ndaw ñu ko yëkkati sa bopp loolu ak ñu may la ko kawal laa ko mujj am ñi mooy ñu koy balance yi ak jaam yi ñu war a dem ajal dem ajal ñu war a dem safara dem safara ñu mën a jël nga xam ne keroog ca taxawaay ba mu di toog leer nañ ñu tàngi ñay yi nga tàll amul dara buy saaw amul takk buy jël amul def kenn amul soo lakk suñ borom dara di nga def pour jàppale jaar ci ne yaa ma xel ji ñu leen ñu sawat ci moom andam bëgg naa tari sama waay wala di sant laa ko ne laa di tari yéen loolu di def ji ne ngeen mën a sëpp ci seen ci ba tax naa ngeen wax ni ba di toog nga déglu yaakaar naa ne kenn bu nga ci biir bu lay bi tey ba xam ne keroog doomu aadama yi daje nañu ca sàkk boobu jinne yi ñëw wër yéen juróom ñaari sàppe jinne yi dem seytaan yi ñëw wër yéen juróom ñaari sàppe seytaan yi malaaka yi ñëw wër yéen juróom ñaari sàppe ñu taxaw juróom jinne yooyu ma waxoon ci taxawaay dara dara dara wul ñu def ñu nekk la la jaaxal seet na saxal te xam nga loolu mujjee kenn attewul kenn dara xewul monsieur day malaaka yoo xam ne xotti nañu ci raay yi nga asamaan yi juróom ñaar ñu accès seen melo seen ratu seen leer seen dara seen dara te mu leer xool doomu aadama yi tiit dafa di nuyu suñu borom ci ba ñu ne ndax ñu suñu borom ci malaaka yi tudd bi ñu tudd suñu borom tudd leen tax ñu tiit ba tàggat seen xel lan ne subhaana rabbina ala yadina fee nañu kenn suñu borom ndax ñu borom ñëw ci ñun ba suñu borom tabaraka wa taala jalla jalalu ak sa tawaru kanam sell cet cet ban ba teew keroogee suñu borom dara di yebal malaaka ñu koy defar safaare yi juróom ñaar fukki junni càllala lañ ko jëndee càllala bi ci nekk benn jaaro ca jaaro ya juróom ñaar fukki junni seytaane ko téye safara ëpp leen doole di jëndee loolu ma nga mer gën nga fàttiku ne suñu borom gis nañu ñu rek yàkkam ci yéen bi nga xamee ne suñu borom yónnee na woowu safara ba kàddu bi mu wax ne suñu borom mooy woowu daal ci kii nag kii nag ba leneen nag boobu jaar ci naaj bu tàng ñu yor ci ko waaye bi nga xamee ne ci këram ba juróomi ba nga xam ne fukki junni ak ndax digganteem ak waa barab ba met gi mu mere borom bakkaar yi mu daal di dem ci tëb bi daal di ci seytaane bu mooy ci seytaane daal di tëb di waa barab ba foofu rek képp ku yàlla bindoon tàggoo waa sa sabab yéen daal Ibrahima alayhi salaatu wasalaam dagg la xas ci feere aadu fàtte na Ismaïla Seydina Moussa sangam ci feere aad fàtte na aad fàtte na Haruna ak Imran Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam daal di dugg làkk moom itam ci réer aad fàtte na Mariama fàtte na Yaxya moom la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu doon ne ko jural indi safara seetaane ñoom safara la ci la yéen amatu benn néeg bu mën a taxaw ci kanamam yéen bi sallallahu alayhi wa sallam waa ko ba téye ci càllale bi te safara daal ne ko Muhammad ñu def mu sell mu tedd la dugg laa laal dina sama kanam te laaj bi ne sa xala teg diinam xana xam nga kii taxaw ci yow dafa daal di dellu mel ne yëpp boo bëree ci naaj bi tàng weer Mohamed sallallahu alayhi wa sallam téye ko ci loxo ne jëraaw wax na ko ba ci kanam suñu borom tabaraka wa taala xalaate ko ci càmmoñu suñu borom daal wax ne suñu borom ñaari loxo ñëpp bi ci nekk day joor la ne suñu leen saal dafa daal di ne yokk laa ko solo dañu ko salaatee nag jëf yi jëkk fees ci jëf yi doomu aadama yi moo di jikko ju rafet la ilaha illa allah kenn ko fete nga xam ci baax yi borom daañu fete lépp baax bi ko dajee leer la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxaw ci cawnu arab yonent yàlla ibrahima alayhi salatu wasalam moo taxaw ci lëjoo arab bu ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam dañoo ko lëjoo dee gëm càmmoñ ci lëjoo ibrahima mu tax nga gëm càmmoñ ci lëjoo dafa ma ko yàq day ngir lëjoo ngir mu gisee boo xam ne bëgg naa mu timma ci ndax ñi dem safara càmmoñ arab la ñuy jaar ñi dem àjjana ñuy jëm lay joral arab wala de ñi dem àjjana jaar ci lay joral arab wala ibrahima dugg àjjana ñuy jëm safara nga buñ yombee lay tënu yoonu ci bu keroogee ñoom dem boo xam ne moo gën a tal asamaan gën a tal suuf mooy moo suuf si am ñu ci nekk jinne yeeg seytaane yeeg malaayika yeeg doomu aadama yëpp tane jëm ci ci nekk lay leeral mooy sa leeru iman sa leeru ngëm leer yam bi alayhi salaatu wasalaam mel na jant bi dara nga gis koo xam ne leeram day mel ne leer yi nga gis koo xam ne leeram day mel ne lamp nga gis koo xam ne leeram day toll ni jabar montagne bi bëre ci montagne yi nga gis koo xam ne leeram day nekk ci baaraam biir bi léeg-léeg mu ne ay yi mu raf nga nekk rek gën nga tax nga gis ñoo xam ne dañuy raam nga gis ñoo xam ne dañuy bërëmu nga gis ñoo xam ne dañuy jaar ci dëkk boo xam ne mu doon ñëw ay rënd ci pusa ñu di ca diri ko nga gis ñoo xam ne dañuy dëkk ci woddu ba gën a rafet nga gis ñoo xam ne dañuy woddu ba nga xam ne ñu dese ay dàll ñi di am tubay ñi am tuuti dëng ñi am ngemb ñi nga xam ne xaaw faxe dana leen di wëdd seen ndigg ñi nga xam ne dara di leen wëdd ba yëg ba yëg xar yëg nag yi topp ñëw di leen ree lan leen dañ nekk laa dina ne yéen da ngeen ñu daan ree ba xam ngeen yaa ko am ndax yoo xam ne mu taw te dina xam lu ñu mujjé ndax àtte bu ñu waaye daan leen ree ci nga tey dama dañ ci seen yoon yooyu li ñu jégee aan nga gis dama dañ yoo xam ne ci leeru xar kanam lu ngir ngëm ji mu gëm kàttanu ngëmam ak leeru ngëmam dafa nga xam ne ci la jaar ci àll ci kawam la ñu jaar buy jaar ca saraat safara nga daan gaaw a jéggi sax ci leeru xar kanam daa ngi fay safara xam ne kon safara ñu tàng ak nga xam ne moom la ñuy mën a jaam ñi ñu nag li woon ci càlla yi nga réew ak sàkkam ji mu am ak tàngaay yi ndegam doomu aadama yàlla dina ko wërsëgee ngëm boo xam ne kàttanu ngëm jël yaayam mën naa fay safara kon nga xam ne suñu doom suñu borom wërsële ne doomu aadama yi lool ndax keroog bu ñuy jéggi siraat leneen nga xam ne moom dañoo gaawee ne xel ñii gaawee ne melax ñii gaawee ne fusinaaru góor ñii gaawee ne kuy daw ñii gaawee ne kuy raam ñii di bañ loolu jëmm joo xam ne day ñàkk ci seet li nga xam ne moo gën a sew kaw gën a yëngatu jaar néeg bi juróomi téeméer at la nga tàllal juróomi téeméer at wàcc bi juróomi téeméer at te nit ku yóbbu amul lim loo xam ne moom la war a jàngale rek te bàkkaar nga yem di ko utee ñi nga xam ne dañuy nga gis nit koo xam ne day ñàkk soo ji xottiku safara di ko aar di ko di taal karaw bi léeg-léeg mu lakk tànk yi mu wóot ñu di raam di box mu nangamu téeméer junni ak ba jàll bu wàccee jeex xool bi mu jaar dal di sant yàlla ne suñu doom di doon ma xéwal di mu am mukk ne damaa jàll fii loolu dañ xam ne ñu fekkee bés bi jàng ba noppi am na keroog naa bi seen yàq dafa wax sax ñu tudd sax liñ foofu rek feeñ jëm yoo xam ne day ñëw ànd ak yiw mu bari bu fekkee mu yiw mu diis ba nga xam ne ci dama ne ñoo ko jëm dikk na ko man de waay man damaa wax baat boo xam ne naqar na ko baalu lay ko laa di seet ci yiw yi yi mu amoon lu tolloo la mu doonoon kee jox ko ko la mu ne ko man day man damaa xaañ wala mere mu bon ci la man day man damaa def nangam jàpp seen xàq ci lu ngeen bëgg a dara ñeneen taxaw ba tey taxaw kon naan ko fay na suñuy xàq alors que luñ leen fay ñu bokk ci bàkkaaru yoon tool yoo lan leen amee ci xàq xëpp ko ba mu ci mu diir dem dem dem dem loolu xàq ci doomu aadama yi moo koy waal lu tax doomu aadama bi nag war nga wax ñu ko sa morom parce que ko sa dëkk yoon parce que dëkk baax te yéene ko li nga yéene sa morom yéene ko li nga yéene sa bopp doo ko xam ne ci lu baax bokk ko lu ko yàlla jox nga yéene ko ko doo ko fexeel doo ko bertiku doo ko jébbale nga def sa nga def ko sa bopp ñun gëm ne li yàlla bi sa wax ne jullit ñëpp ñu ne doomi doomi cër doomi ni dana doomi jëm cër bi ci tawax wala mu ràgg wala mu yëkkit lu loola nga ràgg daal di tawax parce que mu doon bokk ci li mu doon kaw ëllëg baat laa ilaha illallah bokk na ci li nga xam ne dana mu doon kaw ëllëg xasbunallah wa ni'mal wakil laa ilaha illallah ak subhanallah walhamdulillah wala akbar bokk na ci li gën a diis ca balaa seet ñi nga xam ne nag suñu borom daf leen tegoon balaa ci àdduna ñu ko ñoom ñoom bu ko wagee seenu liw kenn mu ko feete kenn mu ko meetare kenn mu ko wëññi dañ leen koy soppi bi leen ko jóoral ba nga xam ne sa fexe woon sax bu jàlloog lañ leen jox da leen jee jóoral ba nekkee ci àdduna bi su ko yaamul lépp mu dëkk ay góor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam leen loolu ba tàyyi ndax toujours ci saxaaba yi day am ku natt natt dal boo ñëwee jàng ko mu ne la nga mën ñu koy laajee wala ma ñaanal la xataa dafa bu nga xamee ne ca xale ba dañu ko bëggal mu ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sama bët dafa sëq doo bëgg naa mu ne ko boo neexee mu fay la bëgg ci àjjana wala ma ñaanal la mu sa bëgg na woon mu ne ko man day dama am fii dëkk mais moom ci laa bëgg na dellu am na am dikk yéen bi salaa sa ma waaw tam mu koy raa sax bëgg woon benn jigéen boo xam ne dafa daan daan la bu daan day xel mu dikk ne yéen bi salaa sa ne ne dama ànd la bëgg nga ñaanal la yéen bi salaa sa la teel nga ñun ko di yàlla fay la àjjana doo ñaanee ma ñaanal la mu ne ko dem naa bu ñu yàlla fay ma àjjana waaye ni ko ma ñaanal ba bu ma daaw ma xam ko suñu ko ñaanal ko yéen bi salaa sa dafa ne ñu ngeen di ñëw bu ngeen toogee imam ñu seen xol di mel ni ñu àjjee ci yàlla bu ngeen ko mën a wéyee kon bu ngeen di def ci mbedd yi malaaka yi di saafante ak yéen te wax imran ibn hasan bokk na ci ñi nga xam ne daan saafante malaaka yi di waxante ak ñoom benn bis benn taab dal ko mu metti mu daal di koy gàjj buñ ko gàjjee ci sa malaaka loolu metti ko mu xam ne natt bu ko yàlla tegoon la te yàlla képp kum soppi daf lay nattu waaye natt bi gën a natte la ko gën a yëgale ko rek yéen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci gën a jege jaam ñi ci nit ñi mooy yonent yi seen gannaaw ci gën a metti li ko loolu mu xasee dem di jooy loolu ba taab de dellu bi mu bañ ci koo ñaar boo def di gisati malaayika yi ñu nga gisante malaayika yi loolu lay ba suñu borom doon tàgg gis na nag kon képp koo xam ne suñu borom fekk nga fii ci àdduna yonent bi salaa sallam nee aji seera mu ngi ci kew yàlla boo ko muy ñëw bu dee ca seera def te xam ne xam ne yàlla ko teg àjjana lay dugg bu fekkee ne ñoom lay dem daal daal ne ko ñu la nekk sax aji feebar maa ngi dañ koy bal guddi ak bëccëg kon it naka moom feebar lépp loo xam ne daal na doon àll ci piis mu xam ne yàlla ko teg dañ ko def moomu jaanu te mu ko te bis boobu nag nga xam ne mooy bis bu tiis bi bu mag bi nga xam ne jaar ñëpp ci jublu fekk te mu di ca fekk xam ne bu keroogee looy am mu ñu daan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen da xunu fi si faa tëjul ñu xum na fi misra bi ak awu la ñenn ñi naan Seydina Ousmane tax mu wax ñu awee ci xaar yi tax ci misaal mel na ku ne keroog yow ma xiyaam kenn ci sama xeet yi dana sonn dana romb mu toll diir ba mu rabee ak nit ak diir mu war maanaam mel na ku ne moom toll yow tukki loolu yëpp kenn day lay romb nga xam ne kon romb yow am la bu keroogee yonente yi daañu romb awliyaa yi daañu romb malaayika yi daañu romb olamaa yi daañu romb doom yi nga xam ne sax seen ndey seen baay gërëm na leen daañu romb bu keroogee keroog la la jaam di gën a romb keroog lay feeñ waaye fii ci àdduna dara feeñ bi doomu aadama buy def te dee ko yaa ngi ci dara ndax yonente bi salaa sallam nee na bu leen woon saxam seetaan seet seen roo tax ko bu leen seen yaam ndax doomu aadama kat waxtu woon tolloo ci sukuraat dana mar mar loo xam ne bu ñu ko wëggee woon géej gi ci àdduna yëpp du tax mu mën te bu tolloo ci jamono boobu iblis dana soppi ko ñaari seytaane ñaari jëm ñoo xam ne ci la am ñoo leen ci am ñoo baay bu ñu accès sa ko yéenee tàqalee ngëm rek ngir mu dee ci téeméer kii naan ko dee nee dee naa ci diine yow ndax mu ngëm ci diine kii naan ko naan dee naa ci diine nasaraan ndax mu ngëm ci diine maroo mar daal ma amee kaati wax yu set nit ne ko dañ lay jox nga naan ko naan bu fekkee nag suñu borom dina yërëm la ñaari maa ngi yërëm rek ñu wàccee seetaan yooyu ndaw mu wàll ko ci wax naa ko tari ci conférence bi doomu aadama fi roo am di tàmbalee jëm ba ñaari baaraam yi day tàggal ni tàmbalee sedd ba ñaari nag yi ba tamit bokki ko mu génn ci ak àdduna gisatul dégg li xew ci àdduna dana nekk ci beneen aadam ci yeneen mbir yoo xam ne suñu borom dong ko xam soo ko defee xew lépp doy waar ndax doomu aadama bi lu dee daaw daaw mën naa yàgg ci nit ci téeméeri junni at lu mu yàgg yàgg ci nit ñi ci saa yi mën na gaale ne xeet yu bët loolu tax na nee li ci bari li ci baax wax yoo xam ne roo mu ngi rëb fekk mu jàng li gën a bon jëlam jëfoon roo am ko ci diggante ba day daal di doon koo xam ne dañoo ñaaw njort ci moom su fekkee nag dañoo tamit li gën a def day daal di moo tax dee ba dee nekk xatam nekk lu bëri waar nga xam ne tawat bu dëgg tawat yoo xam ne dañoo ba léegi sa gëm wala mu wàññi ko moo dem dee bu bett waaye dee bu bett itam fekk naa nit ki gëmoon na yàlla te daana jaamu lu yàgg yàgg mën boobu dana bàyyi ci xol loo xam ne mën na ko sooy bu ànd ak coobare yàlla waaye li nga xam ne mooy gën a dëgëral ngëm mooy nit ki weesa bu weesa ajam ci àdduna ajam bu aj fan ci àdduna fàttali bu muy fàttali ko dee bu muy fàttali ko ëllëg bu muy fàttali ko xàq jaam yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne mooy gën a dëgëral ngëmam te bokk na ci li koy xoolee yow si yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu liggéey ba ñu fi jógee amul dara lu jëriñ nit lu takkal na leen ko amul dara lu leen ci yàqu lu dul wax ni ko ñoom leen ko ba mu jógee élément yi nga xam ne ñoom ñoo ak ñoo war a gën a ñu taxaw ñu nekk li yaram bi daan wax li mu daan tere ak li mu daan digle ngir jiw fexe ba jaam ñi mucc yaa ngi dem yenn xiyaan bu ñu deccee dem ci nekk ndëppal ni loo xam ne day xot ci asamaan si leer ko kenn du ko mën a xool ngir dara di jawaan ndax bu tawatee élément yi nee ñu ñëpp ñii dañuy tawte wala wala ajju ragal yàlla ci yenn guddi bi julli ragal borom bari jooy ragal mbéy yi toq ak ñi doon xeet ngir li tëri baax yàlla di xeex ak yéefal yi seen bees di génne ci seen yaram jooju dañ koy seetee rek war a ñëwee ak daa ji nga xam ne moom la vraiment wu ñuy wane wane diine ak di leeral lislaam daa ji ñu doon dunde ñetti ndox yooyu la ñu feetee ba xeer bu ñu ko feetee dañuy dajale deret yi ci géej jaar ak rangoon yi ci ngay bi ci julli ñu ragal yàlla wala ci bi julli nga defee wala nga ñu dañuy njëkk a feete daaji bi nga mala ji ne rangoon ji wax itam wax na daaji mais kon borom rangoon yi seen rangoon diis na diisal na seen baax balaa ci yàgg la aw ñu yoonu ajam ñu ne ba aw loolu kon daal ñu lépp ñu taxaw ragal nañu yàlla kat ba jox laa ñoo ko waay ñu leen waxul loolu dara duñu ragal yàlla ndax moo war a yor yàlla ci seen loolu loolu ñu ne kon taxaw leen yeneen ci nit ñi dafa suba daay mooy dara bi jihaakat yi yeneen dem jihaakat yi da lépp ñu doon ngir bëgg a wane maqaamu ulama wu dara bi suba daaw yi bi nga peesee daay ulama wu ñu ne dara ci suba daaw yi la wax ñu ne kon suba daaw yi dem leen àjjana ñaare ci yoonu ulama yi waxee leen daaw dañ fekk ba xalaat ñu def moo leen xamal yàlla ba nga xam ne jaay seen dara ak seen bakkan loolu xamal ne suñu borom jënd na ci jullit ñi seen dara ak seen alal ak seen bakkan kon nag ñu am loolu def ñu def ñu daan leen yéen suñu borom daf leen denc saara yoo xam ne bu ne dara leen ñëw le borom nag ñu dem leen àjjana borom dara ci dem leen àjjana te gannaaw yi ñu nag ñu tegal leen kenn ku nekk siis bu féete kaw siis lu ñu boo xam ne fii yàlla ba taxaw ca ndëkk mu loo xam ne day fàtte asamaan si la jot boo jógee ñu ne la xam ci jàng ñi ci sa xam ngay jaar nangam téeméeri junni wala ci samay càmmoon nangam téeméeri junni loolu tam bu toogee alquran ci boppam dana dig ca mel woo xam ne kenn mënu see jugee waaye ñoom nga xam ne ñu daan jàng alquran ñëpp ñoo koy topp di mbaam loolu bu daal di ñaaj jullit ñi ñu di àjjale ñu nangam moom ci àjjale wala su borom di àtte jaam ñi ñu jëggi siraat ñuy jàll ba nga xam ne mbooloo mi nga xam ne ñuy fi ñu fee ñu ngi juróom ñeent ñoo xam ne ci lañ bokk ak ñi nga xam ne seen yoon seen ay yem te amul lu leen leen xetri ñu ne leen la am miir bu gàtt diggante àjjana ak safara nga xam ne bu ñu ko nekkee ca lopp gis ba nga xam ne ñii dugg nañu àjjana ñii dugg safara laa laa nekk laa am bu la di woo dee mu mel ne xam seereer ñu def ko diggante àjjana ak safara yonent yàlla Yaxya alayhi salaatu wasalaam amee paaka bu mel nii ñu tëj dee mu rendi ko daal di yëkkati loxoom yëkkati jaasi ji deret ji toog ñu daal di tëdd waa safara leen xam ngeen kii mooy li ma waroon ñu gën a xam musiba maa ngi nii moo dugal ci lii mu jël woon fii dee mu ñëw fii yàlla ñu yàlla musal ci moom mooy ci bon ci ñun mooy suñu moom ñu daal di ne waa jëm ndax xam ngeen kee ñu ne waaw kii mooy dee waaye suñu xarit bi nga xam ne moom indil xéew bi gën a màgg teraanga yi gën a màgg dara ji nga xam ne bu dem mukk bu dakk ba saa ko loolu dee bu dakk mukk ba abadan ba abadan maa daal gis naa waat wala nga xam ne bam dee boobu lañ ko daal di leen di nag safara la qadarallah wala samahat ñu daal di ciy suuf ba mu nga xam ne pexe yi dañ mel ne mbaay boo xam ne day wàññi ñuy jëkkëm de ñu teg yàq di wëndee ci ci ñu bopp ñu ne ko ci seen kaw mu ngi seen gëy ya seen yoo ya ak seen kuréel day dem abadan ma daal ci sama kuréel nga xam ne jëpp ruu boo xam ne nangu woo amul yàlla ba abadan bu génn jëpp ruu boo xam ne nangu na yàlla am na am ko la da cay des ba ko bàkkaar set nga dem mu jëm di génne sa xar ñëw ci àjjana dana ci am lu toll ni àdduna waaye ñu ne dañuy tax seen bakkan ndax xetam ndax safara meloon melo ak raglu boo xam ne bii raglu ko xam ne nag kon jëm mi dana jóge ci àjjana ci ci biir waa safara jëm mu xam ne ko ne ko ee ci sàngam ndax xam nga ma ko déedéet man de xam nga mosuma laa gis de mu ne ko xanaa dafa fàtte ci sàngam la mar sonn ma may la dox dox la koo toog xalaat tey nga fàtte yow bu mu daal di fàttali ko loolu rek daal di wëññi bu geesu suñu borom ne ko bu demee jëlee doo am lu la xayu waa ji la borom moo xam ne bëgg naa koo xayu ndax doo ma ko génnee mu ko xatay daal di génne waa ji mu génn soxla la jëlee kon nga xam ne jëm yi nga xam ne ni ñuy saxe ajal moom amul yoon ba keroog bi ñu jàkkaarloo suñu borom buñ gisee suñu borom xam ne leer ne dem ajal li muy neex neex gis suñu borom tabaar ko taala ko tàkk bu jógee fañ ko doon gisee bu ñu dellusee dañ leen di fakk yëpp laa jënd leen di fakk ndax dañuy gàtt la woon waaye buñ ko nee bii lépp soppiku melaat na tànneef bi mel noonu safara itam nag li ma waxoon ne képp koo xam ne lu toll ne topp dara maanaam xaroon ci gëm yàlla nekk na ci saxal su ci yàgg yàgg di génn dana am jëm yoo xam ne bu ñeneen woon suuf si li mu toll ci ay topp suuf bu bu ñu fàtti benn topp bis bu jeexee ngeen génn safara dañuy dëkk nga xam ne bu ñu leen génnee kenn ci ñoom bu mu génnee safara taal taal bi gën a tàng ci àdduna fekk ko te daf cay biir dem ci juróom ñaar ci junni ak la xeet moom ñu la leer na bu ñee safara woo safara bii saxaara la dañ ko mën a dund ndax daf lay leer na safara bu xoosee tàngul bu weexee tàngul yooyu fay mooy yi mooy sax da ngay gis ne bu tàngee ba tàng ba tàng day sax benn kulo bu leer ba tam benn mu bëri wala mu leer bu leer ne kon safara yow dafa am day ñëw ñu xam ne day waale te kat kuréel naa dana def jiw bu mu dagg naan jiw bu mu xëy aadi sa safara bi la wax day ñëw te baal dañ am ba day wàcc waxtu wu ñu ñoree ñu sapp seen benn woowu nga leen def loolu ne kon jëpp doomu aadama bi nekk ci kaw suuf loolu nekk ci sa kanam la nekk adduna bi lu gàtt lu gàtt gàtt loolu leen ni ñu waxee ne ñett ñi tayeer dem ñàkk bànneex jarul bàcce adduna jarul àllaaxira ci gën a dëkk mooy adduna jarul àllaaxira àllaaxira moom bu fa yàqu rek yàqu na ko xaw bu fa baax rek baax na ko xaw ndax doomu aadama ji gën a taskare ci adduna yéen nag fu mu toll kenn xaale wu ko ñëpp di ko baaxal amul dara amul wér gu yaram mu la jege ni mu jax comme nit ñi bu ñu ko newoon kenn ci àjjana benn seconde génne ko bu ko ne ndax mën nga am lu naqari ba nga juddoo te mu ne mën nga am mus man ma juddoo ci xewal laa te gën a xewlu ci adduna dañ cee dàq nguur ëppale ci dàq ci doomu aadama yëpp am ko di ko jaamu di ko doon jëm ndax ci safara di bët di dara ci mbaam yi dara ci kaw mbaamu suuf ak suñuy xëttee buñ ko génnee da ko nanga am loola neex da nga sosoo ba de mu ne mosul am mukk mukk dama sosoo ba de ci naqar laa ma sosoo mosuma xam du naqar nag di xam ne dara ko bu may tàmm sax yaakaar naa ne dana am ba léegi xam ngeen ne loolu ba tey nag tey guddi gi moom loolu bi sallallahu alayhi wa sallam ko moom te li ma waxoon sànq yëpp daal dundal ko nga xamal ci mborom ne tey bu ñu xewee te mooy Mouhamed mi ñu indil xam nañ ko te daan ko jox xam suñu xol yëpp sopp nañ ko ba mu mat lépp lu mu am kon muy aal muy coow ñu jaay suñu ñëw ak suñu nootaay jënde ko ko te xol ko ñu yàlla soo xam ne nag boo demee da ngaa am ay àq di ko fay ñu am ay àq di ko fay li nga liggéey itam da nga sellal ko yàlla tax nga am nga yaakaar loolu la xet rek kon bis bu mel nii la ko mel ne jiwee ak ñu ko fay te kuñ ci bañ a bañ a ñëw faaw ñu ñëw léegi kon ngeen gën a ci sa bopp bu fekkee ne am na ay laaj dëgg la ñu te bu ñu gën a waxtaan rek loo xam ne rek laa ji rek.
Lalu, kenapa kita sampai yang lebih jauh itu? Bukannya kalau barang-barang dari bumi yang terlibat kesulitan yang luar biasa, yang lepas lagi, yang terkait dengan Kata wilayah Dalam ulama seperti dulu Dulu dulu Nanti yang ada di kota Yang ada di kota Karena ada wilayah Naik Jangan ada dulu Dalam kota Sama saya Nanti yang jaga Saya sudah reda Sama yang Saya akan mereka Kami melihat Yang ada kejadian Masa mungkin Yang mungkin Dari atas sendiri Untuk dia Tidak banyak Karena saya tidak akan mereka Nah, kami menerima, kami menerima, Mereka melihat Rasulullah SAW.
ñaari bor boo xam ne baaxoon na di tax ndax ñaari yëf ñu bëgg ñoo de su la def yoon mënoon guddi gi moom rek dama ko gën a waxtaane yu teg waaye itam gannaaw bi mu ne indi naa naa rahmatul murdaatun yéen a jige ci yàlla jëm ci jaam yi fu mu mën a jaar ak nu mu mën a toll sallallahu alayhi wa sallam mooy xamal ba kon ba tey ci ngëneel yonent bi ndax dañ ne xaraama yi awliya yi def yëpp ay mu'jizaat la ci yonent bi kon Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam doomu aadama yi ulama yi am na tuuti werante ci ne ndax moo tax yàlla bind bi léegi ndax am na ñoo xam ne dañu ne bu ñu woon moom suñu borom di bind dara am ci ulama wu tey ah daal ka ban yooyu ñu ne ah kay suñu borom di bind ci coono ak yàlla waaye nag xam nañ ne moo gën lépp lu yàlla bind moo gën lépp lu yàlla bind borom xam-xam yi jullit ñi ñoom ñëpp ak ñu ñu toll jur bi leen damax tey li d'accord nañ ci ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo gën jullit bu suñu borom bind damax tey moom rek wax wax joo xam ne kenn d'accord ci moom te lam wax amul mooy ne moom dafa bëgg Seydina Jibril moo doon suñu yéen waaye dañu ne Seydina Jibril ci boppam ci leeru Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lañ ko bind ci xolu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lañ ko bind te Seydina Jibril suñu borom bind na malaaka moo xam ne bu Seydina Jibril gisoon xam ba seey ndax ragal ko te mbindeef moom ci leeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la juddoo malaaka moom ci boppam am na ñeneen malaayka muy wax rooxu mënul jëkk gis ko ba ko gisal moom it seey ruux moom itam am na beneen ruux boo xam ne noonu la demee ci moom baa bi ci ruux bi nga xam ne kenn mënul leen ñëw rek bu ñu waxtaane ci moom dara bu ñu wax moom dara ñu ko ay moom kon loolu lépp Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci bind bi ñu ko bind ci xolu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu bari xam-xam ba danaa ruux moom lu dul ñaar ci malaay yi mënu la xam Raja Abdoulaye Gadda wax na ne seen naa dugg dugg nañ fanweeri junni at benn junni junni at benn junni fukki junni at di jàng bu tax mu jógee lenn ci xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmadou Boukhri nee na fa inna min juudika dunya wa ghayraha wa min ulumika ilma al-ghayb wal qalam adduna ak alaxira yëpp ci sa tabale jóge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lenn la ci sa xam-xam yi xam-xam yi ca lawxul mahfuus ak yi ca xalima ba nga xam ne moo bindal ca lawxul mahfuus ba ngay suñu borom am ay pays ulul kitaab yi moo jiitu gannaaw ulul kitaab yi al kitaab yi mujj moo ci teg moo ci teg gannaaw al kitaab yi mujj gannaaw ak umul kitaab ak xalamu laala nga xam ne mooy wax gannaaw umul kitaab bi tëdd loolu te mooy laaj ma ko umul kitaab mooy ndaje xam-xam mooy bërëb xam-xam suñu borom yi mel na daa ji ñi nga xam ne ndoxum daa ji mën na bind kaamil alquran ngi ci bind xasida ngi ci bind salaatu ala nabi ngi ci bind leetara ngi ci bind nga xam ne suñu borom xam na tabaraka taala lan toll na xam na ko ak lu mu bëri waxtu woo xam na ak xalamu laala sanko na ci daal yi fàq ba nga xam ne moo la topp ak lan war a bind nga xam ne moo nekk ci al imaamu mujj moo nekk al imaamu mujj mu al xalamu ala war a bind ci alma yi nga xam ne mooy la xol maxbo di al kitaabu mujj nga xam ne alquran ni mu toll lan ci bind ko ak xam nga xam ne lépp luy am ba dafa taxaw ci àll mu dañu koy bindee nga xam ne maa ngi ci juróom ñaari asamaan asamaan si ñëw àlluwaat def àlluwaat yoo xam ne lépp dana war a xew ñu bind ko def am leneen lu waral ñu sax ko ba te loxo maxbo yi nga xam ne di ko loxo maxbo mooy àlluwaat yi nga xam ne luñ ko bind duñ ko fa mukk am na ci awliyaa yi ak ci lenn ci ak ci yenn bi ak ci lenn ci malayka ñoo xam ne bu xalima nga sëppee mooy al imam mu biru ba lay bind ci xalima ba xam nañ ko xam nañ lañu bind te loolu ma koon mooy lu néew a néew a néew bokk na ci wax bi ñu arab yi ak ñeneen ak yeneen ak ñeneen am na koo xam ne naan def naan wax ne la mooy wax bi ñu arab yi ñoo bokk ci naan dañoo raw bu demal bu xam ne ñu ñu arab yi bu daan wax dañ ko daan weddi yeneen am yeneen dañ ko daan weddi loolu yëpp sallallahu alayhi wa sallam nee na awwala ma xalaqa allahu jël xalatan suñu borom bi mu nekk bind mu mel ne maanaam mu ñu ne torop jamaa ndax lu raw jamaa la ba nga ko xoolee mu ci set ngir leeri xar kanamam suñu borom bind ca leer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu sëmb ci juróom-ñaari géej géej bi ci nekk mu am ci ay juróom-ñaari juróom-ñaari ci junni ak di sabbaal suñu borom xeetu sabbaa boo xam ne boo xam ne xeeti géej yooyu xudra ikraam maarifa shafaa xuddan juróom xikam yooyu yëpp jaar na ci géej bi ci nekk boo xamee ne xeeti sabbaa wa muy sabbaa bi nga xamee ne set na leer ci leeri awliyaa yi wala leeri malaayika wala leeri yeneen yeneen ci set ci moo tax wala yu mën a taxaw ne jaam naa suñu borom nangami téeméeri junni ak suñu borom tëdd aaral kon suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na awwal ma xalaqa Allahu al-aqla qala lahu aqbil fa'aqbal alayhi wa qala lahu adbir fa'adbar alayhi fa'akmal bi'izzatihi wa jalalihi innahu lam yakhluq khalqan a'zama minhu wa bihi yu'tu wa bihi yahwi suñu borom tabaraka wa taala la mu njëkk a bind muy al aqlu mooy leer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ko wan ma gannaaw wan ko gannaaw dem mu ne ko dellu wan ma kanam wan ko kanam mu ne ko gin naa ci sama mag gi ak sama teddina gi ne mos naa bind te du ma bind mukk mbindeef moo xam ne dana teddee ne yow ci man te képp ku may jox ci sa ci yow ci sa dara laa ko joxe képp ku may xañ ci say dara laa ko joxe kooku moom la dëgg yàlla sallallahu alayhi wa sallam kon nag bu nekk gi bu ñu waxtaanee itam benn wàllu ak li muy génn biir di di geneen lépp ngi bokk ci tànk yonent bi comme ni Mouhamad bin Yuri radiallahu taala anhu ne ko fa inna min juulika dunya wa darrataha wa min ilmika ilma la yoo xam ne bokk nañ sa tabe adduna ak alaxira ñaari kër yëpp ci sa tabe lenn la ci sa xam-xam yi xam-xamu law ak xam-xamu xalam kooku mujj tabi sallallahu taala alayhi wa sallam ko ñëwoon gannaaw bi yàlla yéeg mais ñaar benn boobu mooy li ma nit ko jaaxal ci laaj boobu ci masal ñaareel bi mooy maam Cheikh day wax dëgg mënu ko waxtaan mënu ko waxtaan ndax ñetti mbir tam benn ci suñu borom tànn la fonk ko ba nëbb ko jàng moom ci boppam xam na ko wax na ko wane na ko kon loolu ba tey mën na tax ñu gën ci doy ñaareel bi man mënu ko seede mënu ko seede ci man waaye li ñuy wax lépp nag sama taal bàmmeel xam naa ne mu ngi jëlee yàlla dinaa ko fekk ba gaaw naa sama lay yóbbu parce que li nga wax itam waxuma ko lu ngir yàlla ak yéen bi ak yéen ñi nga xam ne soxla ngeen loolu seen xol ma yaakaar mu jël leen ñu waxtaan leen ci biir kàddu yu baax laa di wax li ci may tàmbalee moo di man ñu bu ko ma ko nekk ni jëm leen sama nopp xale bu ndaw laa waaye fàtte moom mbokk ci laay ma ñu ngi ci dëkk ba benn naa bu ñu daan wax kërtaan yi moo fi daan jaay ay jëre yooyu loolu am naa boobu jaay téere yi tey nee naa ko yow day xam nga da ngay jaay téere waaye xam nga dara nekk ndax daf naa laaj laaj boo xam ne nee na mbooleem bu ngeen mu doon da nga jaar juróomi jaar jaar yoo xam ne benn bu ci nekk laaj too buñ lay laaj ak topp too buñ lay topp too da nga dem ba dajalee ci boo buñ dem njëkk bu yëpp nga xam ne da nga jàq ba jaaxle ba da nga fàtte lépp yàlla dina mu yow da nga yow ba nga dugal waaye juróom ñaari jaar yooyu ku ci war a jaar ba noppi yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a gàddu waale ñeneen loolu jaaxal na naan la waaye dañuy wax la dara tuuti ba boobu nekk fàggu ba boobu moom foofu moom ci la ko ñu jëndee ba mu leer nga ko koy def nee na yomal xiyam de jàppandi téere baax dana bari ne ndax ñàkk dara ñàkk wut kon képp koo xam ne sa morom mu jaar ne yow fab na mbéy njëkk la rafet njëkk tax nga nangu ko mu ñàkk lay doom wala nga yàlla ku tedd la wala borom xam-xam laa wala borom jaamu yàlla laa yooyu la loo xam ndax lu tax jaam dafa xam ni boppam dara xamul ëllëg waaye ko dañu bokk ak ñuy zaar wa faaxi ko si naan bari na bàmmeel bu ñuy siyaare ak borom mu nga ca safara ñen ñi ma daal ko di naan Cheikh Bamba bi daal lu wax naan wa surtout mun taxee fi bundaay wa ba xëy la dafa naan bari na jëm yoo xam ne fu jaar àddina dëpp seen xol day naaw ñu topp ko gëm ko moom ko fonk ko di ko jox seeni alal seeni ñaq di ko waxal ngir yëkkati darajaam nee na ko mu nekk defee moo gën ci àdduna fekk moo moo ko jabootee am fekk fa yàlla moo ko wax loolu maa ngi wax leen yéen ne mu sax lan ñu ko wax ñu ko wax li may dox la moo ne nee na daal ñeme ko ko dama am fay ñeme ko ko dama am fay am na ñoo xam ne kenn du leen wax sax loolu yoo xam ne ñëwee ko wax loolu ci rek loolu ci rek tuuti koo xam ne da ngeen koy déglu seen xel teg ko yi yàlla moom lépp libéré lu ko neex lay def kenn ñu ne la ci tàggal ko ñu jëm nee naa tànk bu ko toogoon mbindeef yëpp mu may ko kenn ndax mas naa rey mbindeef suñu jigéen yëpp ci kaw suuf ngir bakkan ñu wax alayhi salaatu wasalaam yéen yàlla Moussa bi muy dugg ci kër ñëpp ci ñëwee bari suñu borom rey leen ci kraa ñu ngi teral Moussa rek ñu balaa ñu baaw rey itam def ak diggante Moussa ñu ko noonu ñu doon xam yoo xam ne suñu borom may leen mu fekk la rey la ak sa alal sa dara di leen defee ñoom ñoo ko yëngu ñoom ngeen daa wax ne boo leen presse fii ci jàng li may ko tëy bañ bañ njàng nag seen njàng ndax fii nga ne maqamul xutbaane maqamul xutbi xol dañ ko rombee ñu tëye ci dugal mu ko fii ko ci romb xabar ji dañ ci tëgg dara ji nga ci tëgg dara bi dara mus la ñu bi ñu mus dara ko ci la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waajib la ku ci romb dañ ko tëgg mu ne ah xanaa mu bàttee ci ndax la ilaha illallah mu ji mbéy ci wàllu tàngoor mi mbéy ci wàllu ma xam ko jël ko rek mooy ay farbe ay farbe nag moo nekk diggante ak su jeex yeeku Ousmane wala mu wëri tasriya ndax xamam ñaan la waaye kenn du la yóbbu ndax lay yóbbu da gannaaw ba liggéey sallallahu alayhi wa sallam ñooy ñëw dara jëge xubbi xaw suñu borom gën ko koo xam ñoom ak al al ànd nañ leen malaayika yi dañ leen la ci màgg suñu borom xam nga leen bindee bu dul suñu borom moo tax maa ngi ne maa ngi demee suñu borom muy bëgg dàkka di nekk dàkkaane garab bu bëgg ak la cay jooyee muy dàkkaane di mais noonu laa demee suñu borom ku nekk xam na ne ndox ak xolam sax dañoo dajale rek mën a ànd mu seen mën nañ ko itam caxlee waaye bés moom boo ko tàyyee rek foofu mooy yóbbu rek ba moom dàkkaane bi bëgg na ko yóbbu rek bëggul def loolu dem na ci wax mënu ko wax daal mënu ci wax daal lu bari ndax daal dana waa daal dana waa léegi daal loo xam ne rek boo rëbbee rek dem ngaa dafa loolu loolu su ma nag naa jaam yoo xam ne ñooy yërmane yàlla ci kaw suuf bu fekkee ne nag jëmm yooyu suñu borom na mën a leen a feeñal ba feeñal leen ku leen weddi na ne weddi nga yonent ku leen weddi na ne weddi nga yonent bi ndax dañ ne am na ku wóotu baax bu laaj sax laaj sa baaxu moo tax alquran lan farat dana ak ñun suñu benn yonent ci yonent yi ba ne bi yonent mun na ne yonent yëpp weddi nga leen naka moom ñu laaj itam bu ma dee ñu ne doon ni tëmm ko te lay yonent fi mu ko ne ne doon ni tëmm bu ma dee ci ko weddi nag weddi na lépp loolu moo tax Cheikh Moussa Mbaye xool ci li ma aar yàlla dara indi li day wut ak ñoom dara képp koo xam ne yaa dina ko boo demee sa màkk ñëw taaw rek suñu borom dina la mën a jàng ba mën a jàng suñu borom dina la mën loolu moo taxoon monsieur Abdou Fall Dieng monsieur Ibrahima Dafati monsieur Amadou Bamba muy ñeneen ñi demee ñoom ñëpp kenn ci nekk xanaa taxaw ne yéen yàlla noo di alayhi salaatu wasalaam ci mbënd ma nga mën koo xam ca gaaram nga sama daraja wala sama mbóot wala sama barke moo téye gaaga moo koy nit ñi ba neex wax ni Abdou Kadir Jilaani waxoon ne maa tàllal sama loxo téye gaaga sax ma téye ko ba ba wax ma wéy ba neex nga yem Cheikh Ibrahima alayhi salaatu wasalaam buñ ko xàmmee ci kàmb safara ga sama mbóot wala sama ñaan wala sama barke moo téye safara ndax nag bi nga xamee ne wilaaya mat na ci moom dafa fekk mu buwoo fekk mu buwoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu lépp mu daal ci barke yonente bi buñ taxawee sax ne maa yonente bi su boobaa dina yaa ngoon bëgg naa ko ci mbirum yooyu daal dañuy laaj laaj yooyu dañuy laaj ci mbirum saabu ci mbirum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu dem ci guddi doomu bi ba am benn laaj nga wax ndax ci daal dinaa wax wax nga ëllëg ko.
maaleykum wa rahmatulah. ñu ngi lay nuyu di la ziar. man lay laaj. maa ngi tudd Moussa Dia. maa ngi tudd Dia. li lay laaj mooy dafa am jëmm yoo xam ne yàlla dafa dalal ko fekkal ñu waxtaan waxtaan yi moom muy muy jeexital ci seen ay xol muy jooy. bu fekkee tamit ñu waxtaan comme bu ñu tàmbalee ci biir waxtaan ci yéen bi alayhi salaatu wasalaam. dana nekk seen xol ñoo ko xam ne bii suñ nawetee seen bopp dañuy jooy waaye du sax ñu àgg ci ñàkk na seen ànd ak seen sago waaw ci dina ko te buñ doon waxtaan ñu nga xam ne yeneen nit lañ ñoo xam ne duñ ay yonent bu ko defee bu ñuy jaamu bu ñuy bu ñuy jooy bu ñu nekkee seen bopp dañu sànn ko daal ko daal ñoom laaj nag ñaari ñaari jooy yooyu maanaam seen seen yaram nga xam ne ñu def lay daaneel ñu bàyyi ko ci sax ci bàyyi jëm ci benn jaam boo xam ne daf yonent ak li nga xam ne day daaneel loolu ci su ko jaay daal waaye di ko bon nag te dina ànd ak sabam di mën a déglu wax bi loolu lu koy waral.
maa del fii ci rek bi li ma wax li ma wax naan jëm ci mu daal teewlu saa si daal pour bi fàttali na ñu ñëw ñu ñëw ba di saa daal di saa di saa ma ci jaay ak ñu ñëw ñu ñëw sa ci nekk ma xaaru ci la ñu ko waxaa jël wax mu wax day jëm ci la ma wax rek ni saa ma ci jaay la nga waxoon ne xam nga ne xaaral xalaat ko ku ñëw ñu ñëw ñu ñëw xaar ci la sama ñaari tànk yi teg naa ko ci kaw wax bu bépp wala lii bu góor bu jigéen bu yàlla xat la ko tam la ci biñ koy aadam ba ko ñëw bu tëj loolu ma xam tamit ñeneen ñoo wax loolu ñu ko wax ñu ko dégg daañu ko dégg ñu ko dégg nit mën nañu ko jël bàyyi bi wala ñeneen di ko ay ko ndax ñeneen bu nit day am na dina dina man ko ma xam loolu loolu ko dégg tamit dama ko yàlla sama bopp am na ne wani yi gaaw gaaw gaaw a def àjjana ak suñu borom am na ñu ne suñu borom boole na ak suñu ak suñu dox mu yenn ñun ñëpp da waa xëy na bu ci day nangul yàlla nangul yonent bi nangul daan ndax lépp dina xam bu leer bu koo xam ne lépp lu yàlla dana jaam bés la lépp kooku yàlla rek la bëgg yàlla ci boppam fekkee moom la bëgg xaatam rek la bëgg kon sa bëgg lépp lu kenn ci nekk ni ma gën a moom yàlla bëgg nangul leen leen leen kenn ci nekk tam li ma xamal ni lépp lu yàlla dana ko def nangu naa xalaat xam naa ne ci nawet bi moom mun na mun naa wax dara wala ma xam dara wala ma dégg dara ba tax ma gën a defal dara itam loolu loolu yàlla defal waaye nag nangu naa lépp moom loolu bu nekk xam naa ne xarit yàlla boo xam ne dafa sopp noonu la war a def ndax yàlla dafa yaatu géej gi bu ñu teewoo Ndar ci teewoo Dakar ci teewoo Abidjan ci teewoo Mauritanie tam ci nekk mën nga see loolu neex mu loolu mooy nekkal doon cal ba neex nga nag ba nga dugg ci géej gi dañu jëlee nañu ak sama yàlla la loolu di wax nag ci xam bu ñu tuddee moom la dina tuddee dara dina mu gën ci liggéey yi am na ñoo xam ne daañu leen fekk na fekk dégg ñu wax xam ko mu dugg seen xol jël daan di yem bu ñu tuddee ñu ñëw mu xam ne ak ñu ci ñëw ñu ñëw rek wala ñu àgg seen tabax wala ñu mbëkk ban wala ñu yëg seen daan wala ñu yëg seen bopp ci tabax loolu loolu am na loolu ndax nit ki li ko gën a jege rek rek la nga xam loolu la koy wax parce que yàlla sallallahu alayhi wa sallam li nga li tubaab di wax mu grandeur ak mu sublime ak mu jeune grandeur mooy lu gën importance ba doy waar rafet mais nag tamit jibaar dafa laaye mais bi ñu ko nga taxaw ko xool dañu nga taxaw mu gën mu sublime mooy ci guddi nga ci xool asamaan xool bi julli mu sore nga xam ne ni sori na sori bopp doy na waar doy doy waar bopp sa xel àggu sa xol àggu sa mënuloo ko li la kontaan nga mënuloo ko rek di baroo baay nga dem na xool ba ñu la gëlaat ne mu ngi imposé ci xolu nit ñu wax ne nit loo gis nag lu xool nag la nag bu njëriñ sotti bu feesee tuur nit itam dafa gën a yëgante ñi nga xam ne ne ñu bu dee dëgg ay nit ñii benn baat bi dana leen ci gërëloo ba ñu dëkk ñii du am solo ci ñoom gisee dafa naka yi tam moom la ñu la la sant bi mooy show wala ihsaan ñoo la ci xol xol la gën a set nag ba mu yàgg ci ndaw yi bon mu la gën a nangu leer bu yàlla leer bu yàlla nag ba ñu lamu naa lamu sinaa yi fii naa jëlee bi ma laajee ko aaj bi laaj wala wala na muy mel mu lamu naa lamu sinaa yi nag boo ci sottee ndox ndox mi couleur ndox rek lay def mu ndox dina lay def bu yaata bu yaat ndox mu lay yaat bu yaata bu xaw mu lay def mu lay yoon kon aay bi lay mun loo waxaatal nan la def nan la rek la mel waaye ma aay ko rek ci boppam moo amul melaw lan ci teg rek moo ngay def taatal yi léegi nag ci déglu bu dégloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kiiraay yi dox diggante moom dafa gën a bàyyi kiiraay yi yi wàllu lu tax réew bu ëpp adduna ba xarit ci adduna moo waral suñu borom taxañ ko foofu xam ne moom mooy waxtaan nga xam ne yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ini laa di nasara maa ngi jaay mu tuddee yoon mel ni ko naan foog na xaal xel suñu borom mooy xel ci yoon bi fekk boo mooy def adduna moom moo ko yoon bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yéen laa bay ku ko gis ne ko ñaan ko ñaan ko borom ko yoon bi daan ko ji ñaan bari na jumbu yoo xam ne yéen yi xotti koy xool tiim rafle waaye borom suñu borom nan la nan la defal naan faw ne ko yéen a defal leen ko waxu xaw ni moom si na ali ak si naaw ma ñëw di ko ñëw di ko ñaan loo mu ne leen yéen yi moom la ñu wax bilaay sallallahu alayhi wa sallam di ñaan loo kenn mu ne ko yonent bi ñoo bu leen ñaan la ñaan la ñoo ñaan ko borom mu ne ah moom ñu bilaay de yéen gis leen ci moom bu ñu takk loolu ñu xaar ci naaw ah ba ak mu takk jëkk jënd jënd mu takk loolu ba mu takk jënd jënd mu takk loolu mu ne waaw yow nag ndax kon gis nga alxaqatu mu ne mu ne man ñaan naa ci borom ñoom dama wax alxaqatu mu amee yéen mu ne ma ñu ci raay mu ne ba nga jéem naa ci jënd ci raay yoo xam ne benn bu ma ci jege woon ni xaaw bu ñu fànn ci suñu borom muy tey lay tey kon moom la suñu laaj sama bopp bu wax borom toog ba def ko muy doomu aadama mu ngi la suñu ci lépp ci liir boobu mu koy liir lépp boobu mu ko nëbb mooy tax xol bu sell ak ci sell am kattan mën a jëpp leeram du la naanee waaye ñi nga xam ne seen xol aadama ji bu ñu laaloo ci guddi dem nañ ba àgg ci bu ñu mënee kaari bu sax bu ñu mënee suukar bu sax bu ñu mënee seen loxo safara bu tàng ndax topp mu am na sala taala maa ngi moo xam lenn ci nelaw maa ngi sala taala ñi nga gannaaw mu amul ci dem nga xam ne moo gën ci mbir mi amul ci aaj bi lay ku ko attan gannaaw bu yàlla bu yëyee moo gis ci yàlla bi sala taala bu tax yàlla maa ngi sala taala moo xam naa fa yàlla ñu ko def waa xarit ma xam ne xëy na alaay rab yi mu lay yëngu sa taxaw ci rab yi suuf na ñu daw wóor ma xaw ñu ñu mooy sa taxaw tabax ko seen tabax na ko ay rab yi maa waxaat sallallahu alayhi wa sallam doo ci naa di wax naa léegi bu ma gis Tuubaa di wax sargal mooy ñu koy waxee ci wàllu kàddu ñaari garaat ñaari ak tuuti bu ñu moom seetu yi xale yi ci daal waaw ndege bu ñu fekkee buur ci digg bi dana ko séddale mu ñaari xalaat waaw benn xale ji moo ma taxawee taxawaay lépp muy yàlla dund benn xale bi suñu borom tabaaraka wa taala ci mooy ñu yëg nag nekk ci bët wala nekk ci bët xaar naa wax ci loolu ñu wax maanaam suñu borom ànd gi ànd ak mbindeef yi suñu borom nekk ci bët nekk ci dara maanaam bët bu ñu ko ëmb dara bu ñu ko ëmb kon mënuñu ne suñu borom la ci ndax kon daf mel ne bërëb bi suñu borom dafa nekk toog fi ndax suñu borom mësul bërëb bi te kon bu nekk bërëb bi mën a nam kon naa mën la woon du ñu nekk bi soppi tur kon nag fépp nekk ci suñu borom waaye suñu borom nekk fépp fépp nekk ci suñu borom kon mais amul béykat ëllëg ak jëmb naka la amul béykat fii fépp lépp jamono yëpp ko teewal ak moom ak bërëb yëpp ko teewal ak moom kon nag ma xam Mohamed Salah Sow du ne la foog ñu ne arabe ñu ci minata bu dee ma xam teg ci kaw ñu ci minata yow ci yàlla yow benn maam ko yow ci yàlla yow mooy kan mooy ki ne waroon ci ne ñun di def dëkk boo arabe wax minata la ñu ci ci ci ci ba nga xam ne dem na ko téeméeri ji ñu ko leen ko moom la ko teg ñu di leen waxaat di leen waxaat di leen waxaat di leen waxaat di leen waxaat mu la tëj di ko wet di ko wet di ko wet di ko wet mu di leen di mu leen di leen asamaan ak leen di leen ko di di leen ko di di mu leen di ko taxaw naan mu leen ñu di kañ la mu leen ñu kañ la ba mu fàttal leen ci seen naa ko fekk suñu borom waxu ko suñu borom nekk ko waxtu ñu ñëw gis ñu dara ñu ko reetaan ko tey de ba mu daw génn de boobu ñu génnañ ko dugg ci gaal gaal bi ñu dugg parce que mbooloo bare ci dañ laa doon ci bi nga xam ne gaal bi dugg la dañ ko sori gaal bi ngelaw ñu ci di ko bëgg a tuwaat laata bi daal di teg ci xam-xam ne am na jaam boo xam ne day daw ndagam moo tax gaal bi ko dalal ñu ko xam nañ ko tegal ba suñu gaal ñu ko ci géej ñu tegal ba ñu daal ci ñu ñu sóob ko ñu ko sóobee waa tagal ci fii ci daal di koy ceeb wan ko daal di tëdd ca nital géej gi mu boole li nga may guddi gi dana may géej gi dana may biir laaj bi dana naa daal suñu nag mu traité mu woo suñu borom ci biir ñetti li ma yooyu laa ilaa ilaa ko xanaa ci nit dina bàyyi la su borom daal di yegg sant laaka la mu génn ba ci biti mu dëgg ko su borom yow ndax bu ñuy wax yàq ci mel ne naa yi am ay comme yaatu mu teral ko lan ci yàlla ñu feebar feebar feebar ñu ñëwee jóg lan ñu saa doon man man mën naa jënd bu mu mu toog abaay bu wet di sabat suñu borom tund yi ak kur yi di ko tontu ci loolu naan xalaat day ko yaay yunus la day ko yaay yunus yonent bi salaatu bi ne bu leen ma gënal ci yunus bu leen ma xas fekk ci kaw yunus ne maa doon yunus te xam na yonent bi salaatu xam nañ moo doon mën gën ci yunus wala maa ngi jaaxle ji bi ñu ko laajee ñu sëñ bi naan ne lu ci yunus xaaral yi nag yi ci ani daay maanaam dafa bëgg a wane ne suñu doon amul doon loolu yàlla yunus bu ñu nekkee ci biir kër yi nekk ci suuf géej gi ci guddi gi xaataa doon xaataa suñu borom bu leen boobu ñu nekkoon yonent bi salaatu ba mu gënee ci nawet bi naaj yéen ba ci xadratu suuf bi ba ngeen lekk li xaw su gunee yi ba ci xadratu suuf bi boobu ba mu gënee suñu borom góor bi nekk loolu suñu borom loolu yonent bi mu war a mën a am ko dina ay yunus naka yonent bi salaatu ala rasul bi nga xam ne suñu borom nee ci suuf nañu fa taa xaaba xaw ko yi xaw a dinaa buur boobu nga xam ne moo seddalee cercle boobu ñaari xaw ñaari xalaat am nga xam ne kon génn ñu liggéey ba suñu borom rek a def lii suñu borom rek a def mu ne mel na noonu la ci borom wala mu raw wala mu raw mooy bu mu seeyee ci mu seeyee ci ba mu jàkkaarloo suñu borom tabaraka wa taala ba seey ba nekkati suñu borom delloo si ko ci ak mbir mi loolu bi xaqaan yi delloo si ko ci yéemane mu delluwaat na mel jàkkaarloo caw bi nga xam ne ñu ne ñu ne jàkkaarloo moom nga xam ne malaay yi dañuy mel ne njéeral bu nit dal ci kaw si dëkk mu daa ngir ñaan suñu borom maanaam autorisation maanaam moo ndigal seetaan si maanaam salal gën a ci ñaar mu jàll si dëkk mu daa seetlu ko bàyyi si naa jibril moo buraat mënatu moo yëg seen suñu borom may leen kàttanu ñu dem seen naa jibril ne yonent bi yow suñu borom bi yow rek yaa mën man bu ma jiboon benn jël rek damay lakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa nee na boo bëggee xam maqaamam jàngal ko ne ni mooy moom mu nettalee dem ci leen xadra bopp bi mu ne ay fleur bi six heures chat bi gis naa suñu borom ci melo boo xamaane li koy xam ngeen ne ndax suñu borom yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam gis na ko wala gis ko loolu maa ngi bàyyi nañ ci ay wax xam nga mel ne seen ay dara bi rawan xaar nee na képp ku ne mu xam ne gis na boromam sell la waaye Abdoulaye ibn Abbas ak Qatada Abdoulaye ibn Mas'ud ak ulama yi ak sahaaba yi ñu ci gën a bàyyi ñu ci bàyyi ñëpp nee na yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam raahu raahu raahu raahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rabbahu bi ayni rasihi gis na borom tabaraka wa taala ca nam yelle ak ñaari bët yi sax ci boppam sëñ bi suñu borom tabaraka wa taala même mu nekk mu la xel xalaat ak ak booba su ma suñu daal mu ne ci yéen jublu ak alwala ko la yéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk toog yow ma xiyam la ñuy feeñal dara ji Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba kay la suñu borom boobu dana bëgg ba xaq tay ba ne ha ha ha ha bi ko defee dañuy jàng ci Alxuraan bu ko defee nag seen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day jàng mu nekk suñu borom parce que ñu ngi ngir tiire ko ngir dafa yelloo la àdduna mu indi ko ci melaw doomu aadama loolu moo tax kon li gën a sell te gën a am kattan ñoo ko mën contemplé ñooña ñoo am cër bi gën a ci Mohamed cër bi nga xam ne mu gën a ci Mohamed bu fekkee géej gi doomu aadama yëpp amuñu kattan mën a puus baa di sa tànk géej gi ci bopp ñu sàkk li wax ay ay fuddan ay xalis mooy ay doom yu alaat ci suuf si gën a nit ñi mën cee takk ñoo wala li nga xam ne ñoo xalaatal léeg yéen si biir ko àggale suñu wëri loolu moo tax Cheikh Mohamed Boussou yi ne فإن من كثرت من مريده وكل عائد أتم إكرام بها فإنما كثرت من مريده جلنا ولي وعيان في السن بط جب كوجه من إني من جدي من تبول كياري أن بس أجر من ذلك كوجه نعم نعم ولي نعم تبول كياري هذا كوجه ولي نعم من ذلك كوجه وعاري لا لا من ذلك كوجه waaye ñoom ñoom ñoom ñoom ñu bëri daal dugg yan bi xalaat na tey dama moom moom la yàlla mën a dugg moom la yàlla gën a sopp moo gën a xam yàlla kon bu xam sax lu war a daal mooy sax li nga xam ne dafa wut yoon bi ci saari ci kaw ak ci baatin di am ko benn bëri yu am sañ sañ sañ xam te ba sax ci lu ñu doon boo xam ne dañuy xàdd la waaw loolu xam ne sa laa la waaye ci yéen la yàlla la di koy nelaw yooyu nga xam ne dañ laa jaxasal moom mu def ci nit ñu bëree ci nit daan ñaar boppam dàllam di tey ci réew wax mu fekkee mbooloo toog fu mu jot rek fa man paase kay ko bu ne mu tuddee boole ko di kat ak waa këram di seet képp ku feebar ñu gën a ñàkk gën a seede sa gën a xarit lool bëri rek daf koy teg ci suuf mais yoon nga daan lekkee gis la ay bennañ gis la góor jigéen gis la bëdd kenn gis la wax lu ñaaw li koy wax moo amul nekk mu ne moo xam ne moo gën a mag ci mu ne bi nekk koo xam ne ci moo gën a nekk ci trop boo ko gisee da ngay tiit ndax ni ko yàlla bindee loolu moom nag li wax ne kaan na woo xam ne jëlaat yi ci ak kan ci ak aw ci ane waxtu waa daje moom day mel ne ànd mën ñu gën a jël ndax ni sa xol di di ci yow sa xol di fu ndax rëy di wëy ak ni mu mel ni ko yàlla bindee ak ni mu rafetee ak ni mu bëree waar boo ko gisee da nga koy rew dañ ne waay di ko ñu am soxla ci moom bi mu àttee ñu war ko ko muy lox di lox ba leen sa ne ko dalal sa xel doo jigéen bi nekk ci màkk daan lekk ay ngeen doo wala ak nit daal yow xam nga loolu waaye nag boo jaxasoo moom boo bëgg a tàggoo moom ndax moom bëgg a jikko loolu ci ëpp ci yërmande ëpp ci teggin dañ see baax lépp luy xeetu baax moom dañ koy def yëpp loolu nag mooy ne daal yow loolu tax ñu ne takk loolu rek la ci àgg takk loolu nag takk loolu nag ko wax ay nit mën na leen a dugg mën na leen a rey ku xamul jëmm jëmm xamul dara jëmm jëmm ah ñi def nag dañoo ñëw ci àdduna ak seen nag yi leen yàlla may bu tasaayoo ko yi ma tudd yi yi yàlla may yi yàlla ñàkk koo ko ñëw ñëw na waaye ñoom kenn ci nekk am na rek boo boo amee rek ci yàlla bi sama sa lu am loolu mooy yoo xam ne ñu ko wax ci ko ko ko ko tedd jëy nga xam ne nag day sax loolu ñu ne li nga waxee su ñu maam Cheikh Ndao rek bu ñu weeree woon ñu day yóbbu mais yow tey nga ma tax waaye loolu moom wax dëgg yàlla lu ne xam nga dal la. te naa loolu ñu nga xam ne